asalaamaaleykum mbokk téléspectateur de 2STV yi ñuy seetaan yëpp namoon nañ leen di leen wax ni euh, euh, wax dëgg yàlla seen émission confrontation dellusiwaat na la seule émission qui pense à vous et vous incite à regarder la télé ñun ñëpp namoon nañ leen wax dëgg yàlla waaye namoon naa ki nga xamante ne moom moo nekk sama. sama ma koy deux mois wax dëgg yàlla Mouhamadou Moustapha namoon naa la nag. deux mois gisuma la te bizarrement encore plus yi may ñëw yëpp fekk nga dem. waaw waaw du ñu. du ñu du du musuñu daje encore plus parce que dimanche yi nga doon ñëw dimanche da nga daan reposé wu. Ah, non dimanche yi dafa ma doon fekk Touba. Ah, jeex na. léegi ci yoon bi nag bëri na de. <laughs> waaw waaw waaw wax dëgg yàlla foofu la ñu am. tey am na yu bëri yu ñu waxul sax yu bëri yu ñu waxul mais namu naal naal. waaw waaw vraiment vraiment wax dëgg yàlla waaye dañuy sant yàlla rek si bi ñu toogaatee wax dëgg yàlla am contentement plateau bi dafa rafet sax ci sa diggante bi waaw non lu bëre <laughs> na yu bees parce que dañu ñun dañu dama la namoon namu téléspectateurs yi parce que ça nga xam ne moom la ñu la woon léegi c'est samedi rien que pour vous faire plaisir bi waaw rien que pour comme ni ma koy waxee à chaque fois la seule émission qui pense à vous et vous incite à regarder la télé euh, euh, ma ciy ànd ak sama rakk sama xarit Mouhamadou Moustapha wax dëgg yàlla may kontaan bu baax ci toogaat bi ah ak jàkkaarloowaat ak yéen di di jaajëfal équipe technique bi nga xamante ne ñoo fi nekk sama équipe bu bi ah tey MP laa jàkkaarloo ci ginnaaw ñoom bàcc léeg euh, tafaak ñoom ñëpp wax dëgg yàlla namoon naa gars yi en quelque sorte ah, parce que émission bi moom xam nga émission ñëpp la confrontation ñëpp ciy teg loxo waaye namoon nañu téléspectateurs yi nga xamante ne ñoom ñoo ñuy seetaan waaw waaw MP jërëjëf Pape Bey moo fi jaar gis naa li nga def nii zuwal de jëlal détail yëpp jërëjëf bijoux yi seen gold la jëlal détail yëpp namoon naa li de MP <laughs> waaw waaw defal la neex tey nag émission bi dañu indi ay ndaanaan ndaanaan yoo xamante ne dañ leen di ràññee seen originalité ak seen créativité mais laata loolu ñuy présenté ñi nga xamante ne ñoom la ñuy invité Mouhamadou Moustapha dañuy jaale li nga xamante ne ñoo fi jot a wàcc liggéey si suñu ginnaaw mm-hmm. muy émission boo xamante ne Euh, euh, nee naa la émission askan bi yëpp la. effectivement donc confrontation vitrine la ñëpp ci gis seen bopp. jóge nañu ci émission yoo xamante ne euh, gars yi ñu ngi ci doon kontaan muy encore plus di ci féliciter équipe bi nga xamante ne ñun ñëpp ñoo ko àndee woon. surtout parti di Fall ak nga xamante ne moom mooy raxu ak team bi yëpp ah comme ni ma tàmm di ko waxee Astou Dione. ah euh, clap de fin bi fekk ñu fi. waaye wax dëgg yàlla ñu ngi leen di euh, jaajëfal bu baax a baax a baax a baax di leen defal benn coucou benn big ah ñoom Pape Sidi nga xam ne chaque semaine mu woote chaque instant mu woote. ñu koy jaajëfal bu baax a baax a baax wax dëgg yàlla euh, di di masawu ñi nga xamante ne maa ngi koy wax léegi. ah ñàkk nañ seen bakken ci ginnaaw parce que insécurité bi ak actuellement ci dëkk bi. Mhm. gars yi dañ leen di woowaat ñu ressaisir bàyyiwaat seen xel. Mhm. parce que tey Sénégal ñun ñëpp ñun ñoo ko moom. Sénégal ñun ñëpp ñoo ci nekk gaal gi wax dëgg yàlla bu këppoo ñun ñëpp la këppal. Mhm. donc c'est très important euh, ñu ñaaxaat gaa yi ci ñu zen ñu ñu ñu ñu xam ne nekk wax dëgg yàlla ci yii yëpp di am ñu ngi ci mujjum jamono. Mhm. waaye yii yëpp day firndeel rek mujjum jamono ji nga xamante ne ñi ngi ko doon wax mag ñu baax ñi. Mhm. donc euh, euh, wax dëgg yàlla nañuy ñaaxaat gars yi ñu ñu ñu ñu delloo siwaat seen xel bu baax a baax bokk na ci. Tiwaawan onze bébé yi nga xamante ne faatu nañ euh, muy li nga xamante ne Mouhamadou Moustapha moom lañ doon kaas ci koor gi mm-hmm. encore plus dafa nekk émission boo xamante ne am na waaye yee nañ ay point yu bari mm-hmm. xam naa nag fii ak ci kanam loolu gars yi dinañ ci gën a bàyyi xel parce que du woon ñun kase waaye dañ doon mébét ak di indi ay sujets yoo xamante ne yéen dina leen amal njariñ parce que am émission la boo xamante ne nee naa la askan bi la fi nekkaloon ndax 2STV daf fi nekk télé boo xamante ne ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp wax dëgg yàlla la fi nekkal ku ñëpp programme bi ñu gën la jege askan bi di faj seen soxla mhm. donc comme ni ma tàmm di ko waxee à chaque fois euh, gars yi nañu dellusiwaat seen xel di jaalee xalif général des Tidiane mhm. di jaalee wayjur yi nga xamante ne ñoom ñëpp ñàkk nañ seen ay doom foofu ca hôpital bi di leen masawu bu baax a baax a baax a baax di ñaaxaat ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci santé bi ñu gën a euh, euh, bàyyi xel li nga xamante ne moom lañ leen dénk parce que Mouhamadou Moustapha tubaab bu la affecté fenn. Mhm. da lay changé poste. parce que du bàyyi du xaar ba nga miin fenn. Mhm. donc muy ay points yu bari yoo xamante ne daal nañ ci gënaat bàyyi xel. Mhm. waaw nañ ci gënaat bàyyi xel. ñi nga xamante ne moom mooy seen ay sujet muy seen ay thème émission nañ ci gën a. dimbali askan bi parce que kenn ku ci nekk ak li liñ la dénk pare woon nañ ko doon nañ ko def ci encore plus waaye confrontation laajul loolu te du suñu concept donc du lu ñuy mën a continuer donc waaye nañ ciy wastu àqre à chaque fois ñuy lancer message bi on tenait vraiment à le dire euh, bokk nañ aussi ci ci ci lépp li nga xamante xew lion yi tamit dañoo football tey te kii ñu invité tey tamit dina wax tamit yi fi jot ci xew mbir yi fi xot Lion bi ak ci Lion yi <laughs> <laughs> après waaw ci Lion bi ak ci Lion yi voilà donc tey liñ fiy wax yëpp bari na waaw tey am nañ beneen invité aussi bu spécial mhm. ah l'homme qui fait le buzz sur le net actuellement muy euh, euh, Serigne Maras ñas mhm. ñu ñu invité ko tey tamit sur le plateau ah euh, wax dëgg yàlla fas yéene waxtaan ak moom ci yu bare bari bari yoo xamante ne fi mu ne nii sëñ bi moom ku ku ne xewul rek wax dëgg yàlla dangaa dangaa da ngaa da ngaa mm-hmm. du noonu mm-hmm. léegi nag pour ñu bañ a te ne moo xew mm-hmm. non faaw ñu teg ko ci plateau yi pour waxtaan ak moom digganteem ak sénégalais du dëgg parce que euh, euh, ku ku ni ëpp fit man mosuma koo gis big taf voilà noonu la demee moom dugg seen sax day wax <laughs> dugg mais balaa loolu laataa loolu damay jox staaru émission bi tey ndax man damay kontaan ibbee ak moom émission bi waaw parce ñaari weer ñu toog tey wax dëgg yàlla ibbee ak moom émission bi si taar boo xamante ne. big taf. Uh-huh. Euh, bisu. da nga danga nga da nga da nga da nga ubbeer ku doy waar. ku ma ñemewul. waaw parce que je pense bien que ni Sénégalais yëpp ràññee nañu ko ci beneen wàllu wa mais tey ngeen di xam réellement. kii le kan mooy suñu invité bi. Uh-huh. parce que dinañ waxtaan ak moom ci lu bëree bëree bëree bëri ci moom. ak ci actualité waxtaan ak ñoom ci beaucoup de yoo xam ne jot na fi xew euh, et puis am na yéen seen i questions yu ñu yu ñu jot a gis bi ñu ne moom la invité donc questions yi tamit dañu koy recensé daal di ko koy posé bisu koo kan la. du kenn ko dul moo Gueye. jeex na Modou Gueye ñu ngi lay nuyu. asalaamaaleykum. ci nga yem. Modou yaa xam. commencé nga. teel na de. Euh, moo doo nuyoo doo nuyoo nii lan la. asalaamaaleykum du nuyoo. kese. ah waaleykum salaam wa rahmatulah. ah waaw Modou nuyul téléspectateurs yi kon. lu tax nga soof première question la. mais asalaamaaleykum du nuyu. Modou lan la lan la. Ah? lan la Modou lan la. mais lan la si lan c'est-à-dire. Modou xam nga nit ñi dañ tàmm. Mhm. buñ leen naan waa léegi exemple laa lay jox. Mhm. exemple mhm. kilifa gi ñu ngi lay ziar. Euh, di la dalal bu baax di kontaan sa sa sa teewaay ci plateau bi. Euh, euh, sëñ Mara Niass. ñu ngi lay bàyyi nga nuyoo ko mbokk téléspectateur 2STV lay jërëjëf soxna Bisou maa ngi lay fay nuyoo. voilà di nuyu askanu senegal di nuyu biir réew ak bitim réew. di jël nuyoo beeg siyaar bi nag di ci jiital Cheikh Mouhamadul Mountakha Bassirou. ayadallahu wa nasrahu yàlla na ko fi suñ borom saxal. maa ngi ñaan képp kuy sol sa di sàkku ci ñoom ñaan ñu nit ñu ngi leen di ñaanal ñu sax fi. biisu maa ngi jël nuyoo beek siyaar bi yëpp di ko teg ci sa loxo euh, di siyaare big taf mi ma dendal ak sëñ moodu mi ñu jàkkaar lool di am mbégte bu baax a baax a baax a baax ci dalal gi nag jërëjëf soxna biisu Modou la mooy sa problème ak nuyoo kon sa style la waaye bi je suis comme ça. sa style la wala loo xam ne noonu nga noonu nga mel de nature. en fait mënuma jàmm sante yooyu mënu eh. ko. asalaamaaleykum laay wax et puis mu <laughs> je pense bien que ni bisu ñun. ça va maa ngi wax wax na c'est-à-dire c'est-à-dire le problème en kon mënoo jàmm te gëm naa ne débat bi nag di nga di nga di nga élargir di nga wax lu bëree bëri. parce que Modou ñu bari dañuy jàpp ne. maanaam Modou dafa xaw a dafa changé dafa déraciné wu lan la lan la lan la moo qu'est-ce qui passe réellement ba ko tuer comme ça en fait. bon c'est le xam nga Sénégal. nit ñëpp dañu bëgg ñëpp niroo ñëpp yem su ñëpp xoolee fii ñëpp xool foofu. man je veux pas suivre le troupeau man bëgguma fi ñëpp li ñëpp def ma koy def li ñëpp gëm ma gëm ko. pourquoi parce que je ne suis pas comme ça naturellement man du ma topp li ñëpp di topp. mais da nga a topp ni parce que tu as envie wala da nga. non que noonu laa mel chaque fois dafa am lu may xalaat man li may li man du ma du ma nangu sax ku may digal. ah je suis ah oui. et tes parents. je me suffis ma digal dara j'ai grandi seul yaruñu ma. je me suis fait tout seul. comment. Hmm? comment. c'est-à-dire kenn daa ma wax bul def lii bul def lii bul def lii. non yaroo kon Modou. parce que bi ma amee cinq ans dama juddoo Abidjan bi ma amee cinq ñu yóbbu ma Diamaguène donc j'ai grandi comme ça. mais Diamaguène avec qui réellement. avec ma grand-mère qui pouvait presque rien ah, faire pour moi. ah ok yaru maam la. nga comprendre bàyyi ci la neex kon yow. non j'ai toujours été toujours dama yaru dama poli. kenn kenn réewlu ma ah. est-ce que jàpp nga ne yow yaru nga. bu baax sax. ak ak ni nga mel nii nii nii. dama ni asalaamualeykum lu ko gën a foor dara nuyoo la. Mhm. pourquoi moo war ci teg maa ngi sant diw maa ngi sant diw maa man du sant kenn la kenn dañ ne. nga mhm. nuyoo ak askan bi. waaw asalaamualeykum. loolu bu dul nuyoo lan mooy nuyoo. tout dara tout court. am problème d'accord amul problème. mais Modou yow sa soof pourquoi lu tax. du xam nga ne yow da nga soof. est-ce que def nga def nga. Euh, autocritique ah, nga nga taxaw xool moo Modou ci seetu xool moo Modou son comportement euh, metti bi Modou metti Modou lan la. mais man méttiwu ma. mais pourquoi tu es hautain à ce point non non non il faut faut bien mesurer les mots quand même. ah pourquoi. mais. je sais pas nga fuy. lu ma am bay fuy. Amadou xaw ma ko moo tax ñu lay laaj. te aw ma dara dama am da ngeen mos a dox ba dégg Modou moo moom lii wala Modou moo fi def. ah ankay ah, mais lan moo tax ma ah, siiw ma fuy. loolu jarul ah, ma ne pardon quoi mu dégg nga li ma wax <laughs> ah Modou souris maintenant. non non non tu tu me tu me à sourire dag may forcer fi ne nii mais pourquoi waruma mën a mel nii lan moo tax ma war a niroog ñëpp. mais xam nga xam nga xam nga Modou. Mhm. Euh, euh, euh, àdduna dafa am nu muy tëdde ah. muy tëddee noo xamante ne certes duñ la forcer ah nga mel nenn wala dara waaye sa personne est-ce que du exactement Modou noonu la mel est-ce que du loo imposer Sénégalais. non non pas les Sénégalais je me suis man sama bopp. loolu nit ñi nga nekkal est-ce que du yow yaa leen imposer ni nga bëgg mel. non non mais nit ñi ni ñu mel dama ànd ak ñoom ni ñu mel man ma mel ni ma mel. mais yow d'accord ci nit ñi moom ni ñu mel moom neexu la. nit ñi ni ñu mel. Hmm. non ne bu leen neexee kay neex na ma xanaa xamoo man lépp lu nit def ànd naa si. Eh, loolu loolu daawul doon sa ah wax. muur doon sa wax. may ma yeggali. allez-y. lépp lu ñuy def ànd nga ci. lépp lu ñuy def criminel bi. Hmm. ñi demoon Dubaï la ñu def ànd naa ci. ah bon mais ci naka. rey porte bi d'accord nga ci. bu baax sax. ok reykatu nit yi ànd naa ci. moo ah, Modou yow tu es pervers. mais kon yow kon yow kon kon yow Modou yow. doo ma bàyyi ma yeggal yow complice yow tu ma bàyyi ma yeggal lu nit def ànd naa ci. xam nga lu tax. lu parce que fii Sénégal. Mhm. loo wax ñu ne yàllaa ci ànd. ku jëf ñu ne yàlla moo ànd ci jëf yi. lu nit def ñu ne yàlla la. Mhm. dëkk bi Iblis sax day moytu dañuy def ñuy moytu ñun. Ah dañ koy tooñ. yàlla dañ koy tooñ. cat dañ koy tooñ ñun lu waaye def ak sa teeyu bakken bu ñu ñëwee ni ñu ne cat la. jiiñ ko cat donc tu veux la personne est coupable. mais si elle pas coupable ñun chaque fois dañuy tooñ yàlla fii lu nit def ñu ne yàllaa ko dogal lu nit jëf ñu ne yàlla la. danañ ci yàlla nii quoi. mais dama ko ci génn kay. ndax lan man moo Gueye. Mhm. lépp lu ma def sama bopp man maa ko jël sama responsabilité bopp def ko du yàlla. waa non mais yow nga xam ne xamoo ñeneen ñi. moo tax ma ànd ci li ñu def moo tax ma ni criminel bi. Mhm. ki rey nit ànd naa moom. d'accord naa ci. ah bon parce que yàlla dafa ànd ak moom yéen yéen a ko wax. ñan ñoo ko wax Modou Gueye moo ko wax. ma ne ñaata nit lañ feree ñu ne ndogalu yàlla la man on a tué mon cousin rey nañ sama cousin barki yàggul dara nit ñi ne ndogalu yàlla la yàllaa ko bindoon lan la yàlla bind. Dieu n'a pas tout écrit lu am ñu ne yàlla bind na lépp. d'accord euh, euh, kon ñun euh, te yàlla ni nañ tase ñun kenn ku nekk. alaa kulli aal moom yàlla moom bind na lépp moom. non la bind. non par A ou par bind na lépp xaar ma ñëw. Modou xam nga yow mën nga am say principe bu bopp mais yow say principe dooñu ko forcer ñun. non forcer ma leen ko yéen yéen bañ ma am samay principe bu bopp. déedéet bañuñu ko waaye am nañ droit bu ñu la fi déggee ci plateau laaj la ko. waaw moo tax ma tontu ko si ma j'ai répondu dafa am lu ma gëm nu may doxalee. mais yow ni ngay doxalee. waaw dafa bizarre est-ce que yow accepté nga ni ni ngay doxalee dafa bizarre. non je trouve pas bizarre je suis bien. bi ma juddoo ba que tamit Modou. kaay ma wax boo bien parce que dafa xam fi may yem sa gëm-gëm ma fa yegg si sama gëm-gëm bàyyi ko man. mais moom naka la sa dundin demee yow biir Sénégal comme parce que yow da nga tuuti des autres est-ce que réellement yaa ngi dund ni nga ko bëggee ni nga ko. sant ndeysaan da ngeen ni man rek ma bis bu nekk nit dab ma ci mbedd bi. ndeysaan xam nga mhm. nit tam mhm. ma bis bu nekk nit ni woo ni ma ni pourtant li nga mel noonu maa la gën a mel nii laa mel comme yow laa mel dama mënul toog ci plateau wax ko je ne suis pas li may gëme ak li may gëm. par exemple yaa ngi gëstu li yàlla wax ci alxuraan yaa ngi ciy baax. ok bu baax. Mhm. est-ce que xam nga man soriwuma ci école bi jànguma alxuraan baasin boo ko bindee xaw ma ko. est-ce que loolu ah, jàng ah. alxuraan mooy tax nekk nit nekk nit nit nit nite. mais bokk na ci base yi. bokk na ci mais man awma base bi te nite naa musuma tooñ kenn Sénégal. du ma tooñ kenn du ma offensé kenn. mais ni ngay dundee mënoo gëm gëmoon di nga tooñ kenn ku bëggul nit nooy dundee nooy tooñe. bëgguma ku bëggul kenn. non du question kenn dama. yor sa butéelu eau di faxas du moo lay tooñ. non mais du waaw nit bu tooñul kenn bu ko kenn tooñ je respecte dama respecte. mais nag Modou yaa ñuy tooñ parce que xam nga lu tax xam nga kañ nga ñu commencé tooñ bi Modou dee Modou xam nga. nekk ca ca rangé grain d'or bi xam nga foofu dafa seer. dafa cher foofu accès amul accès et puis le plus grand bijoutier foofu. Ah, ah, ci ci ci ci maa ngi ñëw ci yow ci côté boobu parce que euh, euh, Modou sa sa si sa idéologie laa bëgg ak sa façon état d'esprit. Mhm. la la la ñu njëkk a commencé mais euh, Modou dafa am ay. yoo xamante ne dafay lëbëj suñu xel te yooyu yëpp ñun dañ la koy laaj par force. bien sûr du dëgg parce que attitude bi nga am moo tax li tax ma laaj la. ndax yaa ngi gëstu ci sa wàllu diine ak yu ni mel parce que Modou da nga am ay attitude ay attitude yoo xamante ne ñu ci ëpp dañ ne Modou Gueye mi farmason la. waaw. ah waaw ngay wax da koy avoué. non gëm naa dégg naa lool. man neenaan ma góor jigéen la neenaan ma franc-maçon la ñu lu nekk bu di jiiñ la ma ko mais ah, je suis bien ah koy laaj Modou tu es franc-maçon ou pas xaw ma sax luy franc-maçon góor moom déedéet wala xam nga naa la wax benn affaire Modou damay laaj question rek question directe laa laaj dama la góor jigéen ma góor jigéen xalaatuma ko sax waaye non kuy fase tey takk tey fase suba mais dañ ma tooñ Ah, mais Modou bu fekkee yow cest ku ñëpp tuf li nga tooy mënoo takk tay fase tay takkaat tay fase tay mais est-ce que si su ma lay takk damay wax li tax ma takk am sa règlement waaw boo yan lay règlement yi booy wax règlement bi mooy góor bokk ci mais loolu c'est normal bu ci góor bokkee ma fase la la moo may ànd ak sama jabar góor di ko fóon suñ koy accolade ma koy fase parce que bala ma laa takk dama la ko wax man du ma takk sama soxna ba pare di accolade beneen jigéen suñ lay accolade ma lay fase sa yaay bu la woowee ma nekk yow xaaju guddi mu nga jóg dem ci saal bi waxam moom ba pare boo ñëwee dama lay fase parce que da nga ma génn ci famille sa yaay respecté wu ma. yéen da nga ko jàppee lu non non non non defal ndànk kii xam nga yéen yéen saa yi ngeen ma wax ma diine. wëlbatu ki ni moo di dafa compliqué. Mhm. diine lan la wax jànguma de mais damay dégg si yéen da ngeen di wax. Mhm. waxu leen ko jëkkër moo gën a foor ba kii. mais diine wax na baale itam. baale lan soo ko mu ne ah yow ah, man jigéen bu ma kii ci góor moom dama du ma la baal. kon yow yërmande zéro. yërmande fan amul amul yërmande mbëggeel amul yërmande. kon yow doo bëgg parce que di bëri yërmande ci bëggeel la bokk. déedéet <laughs> par exemple xam nga ñun Afrique on est comme ça. Mhm. mais takkal tubaab ni ko dama laa yërëm moo tax ma takk la sëy bi fa lay yem. pourquoi ñun du ñu avancer man su jigéen ñëwee ni ma damaa bëgg a yow ndax dama laa yërëm man ko du ma yow kon nagoo ma bëggoo mbëggeel nii la yërmande nii la da ngay yërëm sa yaay yërëm sa papa yërëm ay jaamu si nekk si mbedd bi mais mbëggeel amul yërmande boo bëggee kay lépp ay normal foog ñu def différence bi. d'accord euh, sànq da nga ne yow lu waay neex lu lu lu nit def rek d'accord nga ci. Mhm. ba ñu ci dem Dubaay euh, xaw ma lan di def naka la sudul noonu. Dubaay porte la porte bi. waaw d'accord nga ci. parce que non non parce que dama ni. Mhm. da ngeen may bàyyi may xam nga la mooy seen problème da ngeen may dagg. après nit ñi jël ko def ko TikTok ni Modou wax na lii nit suy wax phrase mu ci sëriñ yee ñëpp sëriñ sax bu waxee wax rek doo ñu wax bu ngeen ko daggee suñu émission kenn du xam lu mu wax. suñu style moom doo wax. nu ñu koy dama ni lépp lu ni def ànd naa ci. mais ci Dubaay porte parce que si seen wax laa basé wu. Hmm. doo leen ma dégg de. Mhm. ankay dégg nañu xel déggoo ma ni ki rey nit ànd naa ci. ki dem Dubaay def lu ko neex ànd naa ci. ndax lañ nga war ci ànd. man moo Gueye parce que dama ni man Modou Gueye ñëw bi ma ñëw ba fii du yàlla man sama baal bopp la ñëw bi ma ñëw fi du yàlla de ki dem Dubaay. waaw ah. yéen yeneen yi lépp yàlla la. kon kay ki dem Dubaay yàlla la. Modou bu ñu diñ loolu. ki rey nit kay yàlla yéen yéen a wax lépp yàlla la. Modou yow vous avez dit que Dieu a tout écrit. waaye yàlla bu fekkee bind na Modou Gueye day rey nit. man su ma reyee nit bu àllaaxiraa yàlla ne ma lu tax nga rey nit man ko yaa ko bind mënuma ci dara. eh waaye sama yàlla mooy toog foofu di la xaar ngay desante moom. ngay ngay ngay waxtaan mais bu ne ma comprendre pas la waaw defal waaw moo tax nag ñu bëgg. comprendre bu saa yàlla ni mu joxee suñu xel la ñu ñaari yoon Modou mii yoon baa ngi bu baax baa ngi nii mais Modou est-ce que est-ce soo toog ah. ah, euh, nit ne la Modou mii yow yow réer réer ci la

Moodu xam nga fii fi mu ne nii mënoo jékki-jékki rek dañu wax ci intention ak conscience yi. xaaral rek possible mais yéen di Dubaay ku ko defar yàlla. États-Unis yàllaa ko defar waaw Moodu nag. am amul nit ñi yàllaa ko defar. ah juumuñu nag ndekete de. mais laisse-moi finir invité sëñ Mara invité sëñ Moodu mii <laughs> dootul Moodu Gueye sëñ Moodu mii. sëñ Moodu léegi d'accord nga ci sëñ Mara mii dugg direct ak ki ñuy wax euh, ñu ne dafa dugg direct ak koo xamante ne euh, dañ ne kii góor jigéen la man donc du ma fi nekk di juger kii que ce soit. Mhm. mais niñ koy tënkee ak niñ ko mën a tuddee. ak niñ ko mën a waxee li fës noonu rek la ñuy wax parce que xamaluñ ko dara. Mhm. Euh, wax dëgg yàlla. Mhm. dañuy maandu mais émission bi moo koy laaj te faa dugg ci. sujet ndax moom mi ñu invité dama ni laajal lu la neex. waaye yow d'accord nga ci moom direct bi mu def ak moom. direct bi nga def kan. bi moom moom moom bi mu def ak. ak état sëriñ état marabu euh, nit ñi gëm ko ñu ne kii borom ñaari tur la muy wax ak moom ci direct que kan lañ jiiñ ñaar borom ñaari tur man. non moom ki mu ki mu dafa def appel vidéo TikTok ak kenn ku ñuy jiiñ borom ñaari ah waaw ok est-ce que d'accord nga ci loolu. mais bu ko bu ko bëggee lu ma ci mën d'accord naa ci kay. Ah. man choix waaw doomu aadama duma ko werante lu nit def ànd naa ci. ki sàcc ànd naa ci ki rey nit ànd naa ci. conséquence bu ñëwee tamit ma ànd si. déggoo li ma la kii wéru de parce que nekkuma fi di juger euh, kenn. Euh, yow yow déggoo ma. Mara jàpp nga ne kii wér na. mais pourquoi may juger du ma yàlla di juger yow maa ngi lay juger naan góor jigéen da nga xam lu ma doon man xëy na rey naa biig nit. yow da yaa raw criminel sax. kan parce que li nga nekkee ñun ni ci émission bi. xam nga la mooy problème bi Sénégal du ngeen nangu vos erreurs. man moo di damay nangu. ah non non je tu as toujours raison. waaw waaw waaw yow nga jàpp tu vous demande pas de croire si raison ou pas. buuma li man am nañ droit analyser. waaw Modou yow yow yow yow. yow cax bi nga ñëwee fii pour lan la Modou yow. yow dañ ne la yow dañ. waaw Modou yow loolu waajal au Sénégal man. yow da ngaa am. ma <laughs> eh, euh, amoon na amoon na waay. Euh, <laughs> xam nga la moo tax Sénégal du avancé. fii. Mhm. da ngay gis koo xam bi mu juddoo ba am ba keroog muy dee am téeméeri at. dafa topp groupe bi rek du ñëpp wax rek mu loolu lay def. waaw yow da nga bëgg tu veux te remarquer moo tax nga ko. je nii laa mel. am ñu mel ni comme man. Euh, soufflel en attendant ñu ñëwaat ci yow. non non franchement parler man tey. Mm-hmm. Mm-hmm. j'avoue que niveau bi muy waxee man comprendre ma ko am problème. <laughs> parce que niveau bi muy waxee nii kii wérul. parce que ko topp dof kii. <laughs> Euh, euh, da damay ñëw ci sëñ Mar non non niveau bi mu comprendre ma ko de. niveau bi yor a doy waar non kii <laughs> état d'esprit neexul comprendre sax. parce que dinaa ñëw ci li tax neexul comprendre moom mi. ah waaw dinañ si ñëwaat ci kanam. jeex na. sëñ Mara ñu ngi lay ziar bu baax a baax. jërëjëf soxna bi tey comme xam nga Mouhamadou Moustapha moom mooy kale moom wax dëgg yàlla sëñ Mara. dëgg la eh, nee nañ sëñ Mara moom mooy buzz actuellement ci internet bi. Hmm. waaw waaw ah loolu ah sëñ Mara amul un di. sëñ Mara bi ma <laughs> jàkkaarloo ak yow laa xam ne visage bi gis naa ko fukki yoon juróom. <laughs> ci YouTube bi moom xam na ni nit ñi fi mu toll nii am na yu bëri yu ñu bëgg xam ci moom. waaw parce que tey bu ñu la tegee bi xam nga tey émission bi. Mm-hmm. Euh, ñun teguñu ci émission pour promouvoir kenn. dëgg la waaye tey bu fekkee ne dangaa dem ba jaxasoog askan wi. Mhm. nga commencé nekk à la une. Mhm. wax dëgg yàlla askan bi am actuellement ñii di naan déet wala ñun dañuy teg ci plateau bi leeral. Mhm. léegi nag sëñ Mara dañuy leeral. sa digganteeg Sénégalais yi. dëgg la. ak yow yaay kan bay toj nii te toj bu am fit ngay toj dégg naa yu bari nag yoo def yoo ak yi ngay wax nii sëñ Mara. Ah, yu may def. waaw bari na de. jërëjëf wax sa bopp nag damay wax tuuti rek lu xaw a jafe la. waxal rek. mais man taalibeeb Serigne Saliou laa soxna biisu di jàmm bu xeebu nag bu manul dara xaw ma dara it ndax bi may am juróom benn at la ma sëriñ Saliou yar nàmpatal ah, ma ci jëmmam waaw daaru salaam diis xel koom ginnaaw bi ca la ma fa jëlee yóbbu ma xàbbaan fii boori mbuur ah, waaw wax sa bopp nag lu xaw a jafe la waaye man taalibeeb Serigne Saliou laa ba noppi di doomi dëkk bi nag ba noppi nekk nit koo xam ne lii ñu naan jàmm ak ñi ci bokkul ñu boole leen ci man loolu mooy sama mission ci dëkk bi ginnaaw bi ñu jàngee ba ñëw nag yàlla nattuñu ci xeet yi ñuy wax lu mel ni xeeti ñaan yàlla ak xeet yi nit kuñ jàpp ne jubul ñu jéem koo teg ci yoon donte ñun jubuñu sax moo tax euh, di doom yi Touba waaw juddoo Touba maa ngi nuyu samay woy jur ñi ngi may seetaan xam naa ne euh, di it euh, taalibeb Serigne boo xam ne li ëpp sama sama sama àdduna ak sama dund mën naa ne lépp rek ci moom laa koy delloo Serigne Saliou ndax moo ma dimbali moo tax ma ràññee moo taxit it yàlla na ma yàlla baal ci wax ji ba ñëwuma kenn sëriñ Saliou moomu kon biisu wax sa bopp lu jafe la lool. waaye daal maa ngi wax na la jëmm ju xeebu laa ci askan wi nag di jéggalooti ñépp nag di nuyu tamit ñi nga xam ne ñoom la yàlla dogal ma bokk ak ñoom lii may def ñu koy woowee xeetu ñaan yàlla. lii xew mais ñu ci bëri jubóowal xam ne jubóowoo leen xam naa dinañ ko ndax dinañ ci ñëw. Euh, di leen nuyu di leen jox seen i wàccuwaay. Mm-hmm. di leen wax ne maa ngi siyaare ñëpp di jël sama loxo. Mm-hmm. di leen jéggalu nag. Ah, di am mbégte it ci ñoom képp ku yor sa kurus daal di ñaan yàlla te muy dëgg ci yow maa ngi lay siyaare ndax it mënuma leen a ñàkk nuyu ndax damaa jàpp ne ab journaliste fu mu teew teewal na fa ñëpp ab mécanicien fu mu teew teewal na fa ñëpp ba ci ñun ñii ci lii ñuy def yow yow yow fi mu ne nii boo doon taxé sa bopp yow boo doon taxé sa bopp sa sa sa sa kii naka lañ koy waxatee sa profession lan la euh, man jàngalekat la hmm. waaw nga teg ko fan jàngalekat. ah ñaankat jàngalekat nga léegi. waaw ñaan de daanaka fi mu ne xale yi nga xam ne ñoom laa bàyyi ci kër gi li ci ëpp ñoo ma koy defal. ah ñaan. waaw. kon yow dépassé nga grade boobu nga am fit nag. bëgg naa ko am fit nag. waaw boo gisee ma wax la loolu. Mm-hmm. depuis ma jóg man maa ñëw de. 2009 ah, 2010 laa jóge daara ja Serigne Cheikh mi moo ma yeewi Serigne Cheikh Saliou. ma yàggut. waaw bi ma ñëwee it wër naa. ci gox yu fasanti ko jàngi woon xeeti ay lasraar ak fexe ba faj bopp nit fexe ba ku biiram di metti ma fexe ma faj ko yooyu nga xam ne day ànd ak doomu aadama. yooyu yaa ngi koy def ci nit muy réussir. ah waaw bu baax. Hmm. Ah, bu baax a baax a baax loolu bu fekkoon nekkul ne waaye nag ab sëriñ du yàlla. sa profession kon sëriñ la léegi. waaw ah, mën nañ ko wax de waaye xam nga sëriñ. jàngalekat bi foo ko teg. Euh, man jàngalekat la. d'accord fan nga teg jàngalekat nga. première mooy damaa ñëw ci dañ ne ab sëriñ laa. Mhm. ma ñëw ci plateau bi andiwuma kurus. non loolu pour compter la rek. waa xaaral ma wax la. Mhm. kurus moom bu nga dégg dëgg. damay jàngale. Mhm. ñëw naa ci palaato bi soluma grand boobu. turki njaareem nga. ñëw naa soluma ay maraakis. non c'est ça peccoti nga <laughs> nga de. waaw damay jàngale ne yow nante bu mag non ba man nante laa moom. damay jàngale ne <laughs> ab sëriñ du ci yëre. ab sëriñ du ci kurus. Mhm. ab sëriñ du ci du ci du ci dàll. ci fan la ci xam-xam. ak ci xel. waaw <laughs> actuellement sëriñ Sénégal yi. xel la waaw. parce que da ngeen teg nit ñi xel quoi. Euh, euh, waaw teg xel am na. Mhm. même yéen journaliste yi sax am na ci. waaw ah. ah. ndax nit koo xamul noo koy jariñoo. Mhm. rek am waaye nit ñëpp am njariñ. te njariñ bu bu déparé rek dangay ngay teg xel nag. ah d'accord pour mën cee bokk wala mën cee génn waaw comme lépp rek fi mu ne ñi ëpp xam-xam kenn xamu leen. mais seen lii ngeen di def nii dafa mel ni actuellement. Mhm. mu def benn tournée mu mel ni business ci yéen. waaw métier yëpp am business. business bi nag ñaar am. Mhm. mun na réussir mun na bañ a réussir mais métier yëpp am business ba ci journaliste bi ba ci mécanicien bi. Mhm. sëriñ nag biisu dafa weexi donc. non yéen ci raw. yéen tariyaax ah. yi. déedéet xam nga. mais est-ce que nekkul yéen seen dunq bee weex. ba pare parce que suñu gisee ci nag bi déjà. Euh, yéen yéen ci fees. tey Liverpool day dóor. kii day daan. mën naa faj li mën naa faj li mën naa faj li en en finir. est-ce que jàpp ni yéen seen dunq moo weex ba pare c'est-à-dire yéen ñu ngi est-ce que du yéen en personne. waaw pourtant toujours journaliste bind lu amul de. bis yàlla sax moo tax yow te nga ñëw sur la défense bu ñu nee sëriñ si rek nga xam yi. non non ñoom problème bu rëy. ban. comme bi Sénégalais yëpp am toujours ñu bindal nit loo xam ne defu ko àddunaam yàqu. waaye yéen bu fekkee da ngeen def nag. mais waaw d'accord noo sëriñ si dama la ne sëriñ dafa weex donc. tey tey comme ni ko waxee tey man est-ce que du moo weex ba pare. waaw d'accord loolu mun na nekk xam nga lu tax biisu. Hmm. nit ñi dañoo jàpp ne ñaan yàlla dafa yomb. Hmm. waaw. yombut te ñaan yàlla gën a jafe ci àdduna. Ah. biisu nelaw ni mu neexee. waaw nga toog ci sa sijaada. biisu tëdd di nelaw nga yor sa kurus di ko ñaanal te yàlla rek tax. tëddoog sa soxna lekkoo ba suur toog toogaay toog lu mat fukki waxtu rek nga baal ma dafa ëpp te la ngay ñaan xamoo ba xam dina sotteem du sotti. ah boo xanaa doo leen sëriñ. déedéet mais sëriñ du yàlla nekkul que ne li may ñaan day am force da ngay ñaan rek yow da ngay ñëw na ma ñaanal ma. waxuma ah, jëndal ma nga xamante ne dañ naan lii may ñaan ni dina am force. déedéet man mosuma <laughs> man man man man personnel. Hmm. gëw ma ne ah mosuma dégg sax ku koy def man ñëw daan ne lii may def dama koy def par force. ah am na ñoo xam ne ñu tax dañ naan lii waat waat bu métti ne lii dafay. ah gisoon dañ ko fi ñi fi ah ñi fi mujj ñi koy kenn ki. Ah. dem na seede nga dama fee mag bu Cees ba. <laughs> biisu. waaw biisu euh, jamono ji dafa toll foo xam ne fokk tamit tuuti ñuy waxante dëgg. Mm-hmm. Mm-hmm. foofu lañ toll sax. waaw ah, puisque erreur yi dëgg la mun na am ci sëriñ si. mun na am ci mécanicien yi mun na am ci baykat bi mécanicien bi. yow sa oto dafa yàqu xanaa sama oto dafa dafa yàqu mécanicien bi jël moteur bi. exemple loolu loolu mel ni fii da nga am problème ak journaliste. waaw ñu ne leen waaye nga da nga am problème ak mécanicien yi. non dama bañ lépp rek ñu jël ko teg ko sama kaw mbokk yi. ndax biisu waaye gis nga. yow bu fi toogee. Euh, non non man seen avocat man man boo bëggee dégg dëgg man défendre ma défendre ma benn ku fi ñëw setalal sa der rek. non non man nii ca kaw. man nga dem défendre ma sëriñ. waaye dafa am ñoo xam ne xam nga yéen da ngeen am lu ngeen di jaawale parce que bu ñu exemple fii toj de. anikun euh. anikun anikun. kuy kun. mais kan de xamoo kun borom géej gi. Ah, waaw waaw waaw mi ngi dafa mel ni mi ngi fi de. waa xam nga mais Sénégal bisu ma <laughs> damay expliqué lépp lay expliqué parce que ñooñu xam nga tey mhm. euh, euh, tey pour nga gë mën nga gis sëñ Mara mhm. mu am yàlla may ko benn affaire mhm. parce que yàlla rek moo xam kenn xam euh, tey mais balaa bisu di ko gëm balaa Modou di ko gëm balaa Big Taf di ko gëm dañuy gis ñoo xamante ne dëgg la neexu ñoo gëm naka ngay toogee sénégalais yëpp toog nga ne damay xar géej gi nga parewaat sénégalais yëpp toog kii di naan damay rey ginaar gi damay def nangam damay def billet damay def xaalis kii day dem safara <laughs> kii day dem safara léegi léegi léegi am na ku ñu yóbbu safara mhm. non kii yóbbu gars yi ni ku dem ci soirée bi da ngay dem safara waaw waaw waaw waaw eh, yàllaay kase yàllaay kase mhm. ak euh, non yàllaay kase man ma ko fàtte moom sëñ Moustapha sëñ Moustapha Dramé ñu ngi lay nuyu sëñ Moustapha maa ngi lay duyu waay sëñ Moustapha ah. billaay wallaay bu la neexee mun naa changer turu confrontation pour nga ñëw après bu jeexee mu tuddaat confrontation. non léegi léegi léegi nag jàmm la léegi euh, pourquoi. ah déet sëñ Moustapha kat sëñ Moussa Dramé sëñ Moustapha sëñ ñu ngi lay ziar bu wér dégg nga. Mhm. jërëjëf confrontation moom yàllaay kase la comme ni ma la koy waxee rek dégg euh, euh, damay ñëwaat ci ci ci fi ma nekkoon. Mhm. voilà mhm. parce que à chaque fois. dañuy gis li watatu ba ci li nga xamante ne mooy li baax. dëgg la. ñu jël yéen ñëpp ëmb parce que tey moom Sénégal. Mhm. ba nga dégg dëgg kenn mhm. mënatul gëm. Mhm. kan moo baax ak kan moo te yéen ñëpp dangeen jublu ci. ci médiatiser seen bopp est-ce que tey sëriñ dafa war a dem di médiatiser boppam sëriñ bu mën dëggantaan. waaw. ah bon. waaw man xam nga lu tax ma génn ci télé bi nii. Hmm. Hmm. man bi ma jógee daara ja dama euh, ñu bari da ngeen leen di dalal fii dama leen di seetaan. man dama leen daan seetaan. di leen gis. ma dem ba xam ne na ma yàlla baal ci wax ji ñii li ñuy wax ak li ñuy wane du loolu moom moo am yàlla rek a tax may wax. am na ci sëriñ soo xam ne demoon naa fa di ñaanlu. ah waaw waaw. te ba ma demee dama summeeku mbubb bu am na ma fa demee première ba ma toogee dama ne ko seetal ma. Mhm. mu may wax loo xam ne man wóor na ma ne kii xaw ma moom lu ko war a bàyyi ci der bii mu toog. gisu la gisul lu bokk ci man. ma dem ba xam ne nit koo xam ne am nga fit mu wóor na la ne li ngay wax ni xamoo ci dara yow mi xam nara toog ci sab der wala nga tëju ci sa néeg boo dee di nga ko di nga ko layoog suñu borom. ko yow da ngaa fipp quoi moo tax. man dam man man man. mais li ngeen def est-ce que yéen ngi seet suñu borom est-ce que ngi ciy seet yàlla est-ce que yéen a ngi xool xam ne wax dëgg yàlla. Mhm. Euh, euh, euh, mais waa ji. est-ce a ngi seet yi est-ce ngi xalaat yàlla. comme lan. est-ce que yéen ngi xalaat nit ñi. waaw nga xamante ne ñu ngi daw si ñëw ci yéen. Oh. est-ce que yéen a ngi seen yéen a ngi ciy seet seen diggante ak seen borom. biisu seet yàlla moo tax. gis nga dama la ko wax ci ndorteel dama ne la ñaan yàlla moo gën a jafe. Mm-hmm. yàlla moo tax ñun ñuy ci man sama bopp laa. waaw loolu léegi est-ce que dama lay laaj. est est-ce que dem di médiatiser sa bopp. ba ñenn ñi nga xamante ne war nañ laa gëm wala waruñ la gëm ngay décrédibiliser sa bopp. parce que tey média toll na foo xamante ne dafa ubbeeku. waaw nit ki mën naa toog fi mu toog téye clavier am di saaga mm-hmm. nit ki mën naa toog fi mu toog téye clavier am saaga moo duggee ba mu neex ko wala mu saaga biis wala mu saaga mara dëgg la léegi ki nga toog ki nga xamante ne mi ngi toog gëm la yow waay kooku naka nga koy naka naka nga koy nara naka nga ko nar a dimbalee euh, ah. gis nga médiatiser sa bopp yow bëri nga public de. <laughs> lis lan lay def fii. moom moom de moom tey mu ne. ayca. Euh, <laughs> fii bari na public tey torop euh, man kii euh, biisu <laughs> Cheikh Ibra Fall dafa am lu mu waxoon nañ ma dégloo xel nag mhm. Cheikh Ibra dane woon jëf yu baax yi nañ koy weer ni am póot gis nga bu fekkente ne yor nga njariñ tëju ci sëb néeg kenn fekku la fa kenn fëggu la te woote woo na njariñ a ngi nii damaa jàpp ne yoroo njariñ est que dégg nga ma bu baax ñun bu ñu demee bay génn dama ne la ñama doon topp mu wóor na ma ne lii ñuy def mënuñu ko mm. damaa bañ a dee di layoog suñu borom biisu ndax man wóor na ma ne bu ma nee la kaay ma seetal la bis bu ñu toogee danaa exemple waxuma kaay kenn kaay ma seetal la dinaa la wax loo xam ne danaa fexe ba xam fi nga bokk. fexe ba wax la fi ngay jaar nga dem sa yoon euh, parce que boo ñëwee fii actualité bi euh, am na yu bëri yoo xam ne laaj jot nañu leen parce que yow. Mhm. boo gisee ne am na foo jot a jaar avant ngay déclaré wu. parce que ñu bëri dañuy wax ne sëñ Mara dafa nekkoon dafa. dafa teer waaw. teer benn teer bi dafa doxoon de. dafa takkoon trop xaas bi teer teer xaas dañu ñëw dafa takkoon trop xaas balaa ñuy ñëw ci xaas teer. Euh, yooyu noonu exactement. mais teer pourquoi nga bàyyi métier boobu bëgg ñëw ci métier bi nga xamante ne yéen di saa waay kenn gëmu leen. man bi ma jógee xel koom biisu mm-hmm. Touba. Mhm. damaa ñëw toog sama waajur bu góor. mi ngi jëlee métier. sama waajur bu góor mi ngi may seetaan. Mhm. bi ma ñëwee ba toog. mais Modou Sow tele bi rafet na tey. bi ma ñëwee dinaa ko na trop. <laughs> billaay bi doo nit nag. bi ma ñëwee ba toog. Mhm. dama ne ko ah waa kilifa gi man de jàngi naa ba ñëw te Serigne seex Saliou mi yeewi na ma lu may def booba man xam naa ne am na lu nekk ci man waaye kenn xaw ma. te du ma dox ci mbedd mi jàpp kenn naan ko kaay ma ñaanal la mu ne ma nooy def ma ne ko xoolal loo ma dugal wala métier moo bëgg ma def ko ndax góor day am métier mu ne ma bëgg nga ñaw ma ne ko loo ma dugal ma def ko mu yóbbu ma ne ma kaay nga dem jàngi ñaw mhm. bi euh, biisu bi ma ñëwee ñaw maa ngi ko jàngi ci ñaari weer li ñuy def ci machine yépp ma man ko mhm. ki ma jàngal ñaw Baye Njaay mi ngi Tuubaa faatuwul dara jotu ko hélas mii nga xam ne moom laa fekk si dakaar ñëw jële ma ci place bi ñëw indi ma dakaar na ma loo bëgg wax ma ko ma la koy fay ma ne ko man duma ma fayeeku damay jaamu yàlla mu ne yow yor sa bàyyi ngay seen taaw ma ne ko euh, man soxlu ma xaalis hélas moomu mi ngi may seetaan dama daan fay ma jël xaalis bi may ko ko ma def ko ndakaaru ñaari at takk sama saak dem Côte d'Ivoire bi ma demee Côte d'Ivoire a jame nit ñi sénégalais yi fa nekk xëy di dem ci marché bi bu ñu wàccee fekk ma ma toog ci jàkk ji durus xasida mais yow ban tànkoon nga jàngee xam-xam yi diggante bi nga jógee daara ja diggante bi nga jàngee tëyër diggante bi nga yegsee fii Dakar xam nga demaat Côte d'Ivoire xanaa Côte d'Ivoire nga jàngee ko xam nga jàng xam nga xam-xam dafa nekk loo xam ne surtout yii ñuy def biisu mhm. ñun bi ñu nekkee ci daara ji sax dañ daan jéem a def naan kaay ñu liggéey nit waaw xam nga yooyu dafa nekk xam-xam yoo xam ne eh, nif waaw da ngay toog waaw loolu loolu mais nag am na yoo xam ne c'est approfondi maanaam yu xóot yi loolu jàng la koy tax mooy li ma la wax man Côte d'Ivoire xam nga lu ma fa yóbboon hmm. xam-xamu jaaro naka jaaro jaaro foqati liñ di gi mu am euh, ah jaaro foqet la de euh, biisu nag gis nga nekkul foqet mais xam jaaro lu waay yor xam nga bu ma nuyu man heureusement que sax ñu ngi door a gisante ba nuyoo duñ def dara lu waay yor nga nga jël ko maanaam xam-xamu xam-xamu xam jaaro moo fa yóbbu woon mhm. te bi ma demee xam nga lu ma fa jële mhm. damaa dem ci kër sëriñ bi gars yi bu ñu liggéeyee bu ñu wàccee bu ñee ma wax leen yoon wi ñuy jaar pour am dara ak yow yaay kan fi nga jógee ak ki nga bokkal ana diw sàngam da nga leen doon seetal quoi waaw bi ma demee ba nga xam ne damaa dem Côte toog fa mujj sëriñ ya ma fekkoon ca kër ga ne kii dañ koy génne. ndax la ndax jël na suñu client yi. li ma lay wax ni a jame la ñëpp a ngi fi. Mhm. ma ne leen ah man de du ma fi yàgg ndax bu ma amee paas rek damay ñibbi Sénégal. Mhm. ca la yi di fay seet gi yëf yi di yëngu yëf di yëngu ba ma am paas daw ñibbi si Ndakaaru. bi ma ñëwee maa jël sama téléphone loolu yàggul loolu 2000. yow tey jii tu es quitte avec conscience bu ñu doon ubbi téléphone bi nii ñu ubbi téléphone bi. ligne bi fii. waaw ñu pour ma seetal leen. waxuma ndax ñeme nga yow ñu ubbi ligne bi yow. man lu may ragal ci loolu. Karajo affiché numéro téléphone bi. man ragaluma dara ci loolu ñaara am ci ci kaw ñu ubbi ligne bi. <laughs> amuñu existence de. di ci yow de waaw da ngay taxaw non da ngay ma wax la biisu. man tamit sama image la am. <laughs> image lan. am ñoo xam ne ña mel ni sama. waaja confrontation ping pong la de. ay non non non non da ngay dégg. fii natt la rek ñu ku kuy teggi tey. Eh, man ñëwuma fi pour. wax sama bopp dañuy affiché numéro ñëwuma fi pour. non non bañu ma loolu deuxième partie moom numéro moom day affiché non nga lu tax ko bañ. non bu ko ragal sax. man bu ko ragal nekk naa nit koo xam ne. Sénégal fii ci ñaan yàlla boo bëggee dégg dëgg. Hmm. Hmm. li ma fi def ci ñaan yàlla jamono jii ñu toll gisuma ñii ñu naan ay sëriñ lañ ko koy def. première maanaam sa morom nekk ci net bi quoi. Ah, man sama morom nekkul ci net bi. ah waaw. <laughs> donc bu nekk net bi ñoom nga xam ne. ping pong waaw ñan kii. kii non non nekkul ci net bi. parce que du ma déedéet sama morom nekkul ci net bi. Sénégal ba mu daj kan nga mas a gis. Mhm. muy seetal nit na ko ana diw. Pictap va samedi prochain man maay. kale gis nga ko <laughs> waaw na. gis nga loolu. ah daa doon ci déglu ma si Pictap sa sélection daf ma jaaxal. ah <laughs> aja continuer. Euh, biisu. Mhm. dañoo tollu jamono joo xam ne. il faut ñu laaye biirante. te bañ a naxante. man ñaan waaw oui ma ñi ñi ngi commencé ndaxante nag xam nga lu tax. comme lan parce que yaa ngi ñuy sëlëm yow yaa ngi yaa ngi pes. Hmm. waaw waaw xam nga lu tax. d'accord euh, euh, euh, munoo mu da nga ne da nga jóge Côte d'Ivoire. foofu nga toj fa. def li ngay def. non tojuma ko sax waaye ba nga ñëwee. imposé woo sa bopp da ngaa ñëw am ci koo nekkal. am nekk ci ginnaaw kenn naan ko yow la yaa fi ne yaa fi toj. ah Gambie vidéo yi fàtte wuñ ko woon de. est na boon nañ ko fi bi ngay wax xaas naan ko yaa fi ne. biisu man xam nga kañ laa tàmbalee ñaan yàlla toog woo sama papa na ko bàyyi naa lépp léegi maa ngi ñaan yàlla. waaw 2000 2017. loolu yàggul yàgguma de ci yëf yi. mais lan moo nekkoon sa rapport ak xaasaloo. 2017 barki Serigne Saliou ma yaakaar. Mhm, rawal 2017. Mhm. kooku ngay wax bi ma xamanteeg moom léegi defagul at. ah bon Ablaye Diop xaas mais nga nangu woon mu jiitu nga topp si ginnaaw. musuma nangu loolu. ah vidéo yaa ngi fi de kadaajo laa lay tegal de man yërmande laa. donc lan moo doon nekkoon rapport bi. comme ah, kon amuñu benn rapport. wuy ma ah. déedéet. nañ ko rafetal. maanaam parce que fi te émission bi sa émission la. dama lay ñaan dama lay ñaan. damay dégg ay wax ñu ne diw man 2017 laa tàmbalee ñaan. Mm-hmm. ah. waaw mm-hmm. bi ma xamanteeg moom léegi daaw ci koor gi bi muy def karaamatul xay ni mm-hmm. Sénégalais yépp jóg di ko di ko di ko di ko sànni xeer ma jóg défendre ko mu wër sama numéro wooma dafa mën kat mi ngi mais lu xaaral dama lay wax rek dama lay wax lu simple loo xam ne Sénégal yëpp nañ ko déglu. Mhm. bi mu wutee sama numéro ba woo mhm. daaw ci koor gi bi mu desee bi mu defee weer ak nangam may sant Serigne Saliou mu jógee këram ñëw parcelle. loolu xam nga defagul at. Mhm. waa lu defagul at moom loo fiy toppee nit. mais xam nga dañ leen di gëlëmal xam la. Mm-hmm. dañoo gis Serigne Saliou def ay yëf. Eh, gaa yi ku nekk di jóg naan ci man la nekkoon. man gis ci réseaux sociaux yi lañ lay laaj. xam nga lan la mais man dama nekkoon foofu. non ah, loolu lañ jàpp leen gëmloo te nit ñi dañ leen dul wax dëgg. Ah. waaw yéen dañ leen di fenn te man dëgg ji laay wax. ñoom dañoo nekkoon ci ay pexe man damaa indi dëgg. kan moo nekkoon ci pexe yow xale yooyu la yooyu ngay tudd rek. xale yàlla xam na ko. mais est-ce que jamono jooju yow tamit génn si jooju wax waaye. Euh, eh, man eh, eh, plateau bi mi ngi wàcc. Euh, biisu ma arrêté nag. Euh, biisu biisu. waaw Mara ku ne danga boo yebee sa morom da nga xamut ngay jàpp ngay défendre xaalis ki nekk da nga ah, ah. doon. utiliser bëzu xaalis est-ce nga invité ma boobu da doon utiliser bëzu xaas moo tax nga bëggoon. confrontation la dinañ la woo fa sonn def ko. non non man man Euh, yàlla seere ne na bu may def dara damay jóg def ko te yàlla rek tax ñooñu ngeen di wax amuñu bës ay bës ak yooyu amul période boobu nag xaaste woon na jamono non eh, eh, ba tey mi ngi téye mhm. moom fan yi nag waa fan yi nag moom moo xew de <laughs> waaye nag kaay ma wax la euh, biisu waaw ma wax la dëgg mhm. man mosumaa ànd ak kenn ku dul Serigne Saliou man nag man nag man nag kuy ma bëgg nga bàyyil lan non non non nañ teg Serigne Saliou de ma def li ma mel teg Serigne Saliou mooy sama mooy ma teg sama bakkan d'accord ñun defuñu ni ñu mel du ko def amul problème waaw dañ ko tegee ne pour l'instant ñu waxtaan mhm. buñ buñ duggee ci base boobu rek daf may tënk man mhm. comprendre que d'accord waaw nañ ko tegee ne pour l'instant mhm. euh, euh, euh, gis nga gis nga dafa am loo expliqué léegi. te bëgguma tamit diggante boobu xale yooyu ñu jox leen suñu temps. te yàlla xam na ne liñ bëgg a développé du dem. te ay wax seen i wax. seen i wax boo sa déglu. xam nga tax jërul déglu. koo xam ne yow li ngay wax leer na la ne yow li ngay wax nii. xale kay du du du du lu. non bisu man bisu man. bisu man doxuma ciy caaxaan. non boobu fit moom mënoo ko am parce que xam lu man maa la ko maa ngi lay waatal ci yàlla. ndax man xale yooyu samay xarit ñii nga jàpp ne ay sëriñ lañ wala ngeen ngay tudd se ngeen tudd seen i tur. gis nga ñooñu man ah, bu ma ci yi waaw xale yi. ma ci bu ma ci mais man du ma la permettre moom ci émission bi moom ngay tudd xaas moom permettre ko. man du ma man ma tudd kenn. voilà di ko dimbali. bu ko dimbali. man émission bi du ma tudd ci kii bi en attendant moom mu soufflé. Karajo affiché ma ligne bi. man du ma tudd kenn di ko léegi nag wuy ma bi may ñëw fii nag. tëbu tëb ñëw fi. Hmm. waaw xool naa lu bari ci yoon bi. ci fii waaw. bul ko wax gum li nga wax gis <laughs> euh, parce que yooyu yëpp mën nañu tënk tamit. waaw euh, ba ñu war a dugg ñoo taxoon may wax kon officiel ñu continuer. officiel Karajo. d'accord euh, nañu continuer ci fi ñu nekkoon. Ah, moom mi <coughs> mhm. dafa am ci fu ñu nekkoon léegi léegi Modou bàyyi li nga def waay. dañuy ñëw ci kii parce que émission bi xam nga yéen a bokk plateau bi sëñ Mara mos nga gis kii non. kan ci Mara yaa ngi ci plateau bi yow tamit. mos naa gis bu leen topp nit ñi teg leen seen téléphone nii rek. Euh, parce que bu ñu tontoo ñii ñëpp nii. Uh-huh. fi mu ne nii eh, eh, YouTube baa ngi wàcc ba zéro. <laughs> ñii ñëpp leen tontoo moom du ñu eggale émission bi. Euh. Euh, mos nga ko gis kii. sëñ Modou waaw dama koy siifur bu baax TFM émission kàkkatar. bi daan am samedi. man bokkuma xew si ngeen di ngeen daan ay duma seetaan lii. man lépp laay seetaan bisu kii. Mhm. waa macha allah moom ñu ñu ñu rafetlu xam-xamam. ñu koy jiñ formation ci bi yaa ngi koy wax sànq Ah. ñii ne nañ franc-maçon la ñii naan moo Modou góor jigéen moom kenn du ko jiñ kenn ndax Pawlish Mbaye day dóor ci loolu. Mhm. Euh, euh, ñii naan nangam ñii naan nangam mais man moom xam naa ne gentleman la kii. Euh, waaw parce que ndaw lu ko yëkkati doom nday ndaw la xaritam la waaw ah, tey dafa setaan si te mooy coach sam dañu ko <laughs> mais franc-maçon moom. Mhm. ñu ngi ko koy jiiñ. muy nit koo xamante ne. Mhm. dafa am ay ay ay ay jëfin yu yu muy jëf état d'esprit nit ñi neexul ñu koy comprendre. koo xamante ne daanaka da ngay toog six non du six neuf mois. Mhm. yoo xam ne nii lay solo. six mois par six six six. non non neuf mois nii lay solo tout blanc. Mhm. Mhm. trois mois yi ci des yu ñuul kukk lay sol. oui. kooku lan nga koy étiqueté le mu yor xaalis nag ak di fréquenté nit ñoo xamante ne. dañoo am xaalis. moom dafa ma yoruñu xaalis xaalis yi de <laughs> yi ñu leen di jiñ. bisu xam naa ne yow. Euh, moom dafa am lu mu wax léegi te dama. bëgg xaalis yi ñuy jiñaate ñu jiital wax jooju. waaw du xaalis yi ñu moom dana lu am effectivement li mu wax dëgg yi MP di am ñu karaajo papi ñuy fayeeku chaque fin moom du xaalis yooyu laay wax suñ borom mooy borom fa xaaloo 800 millions yii réer ci kër yi laa wax 800 millions yii réer ci kër yi waaw ay yooyu waaw waaw Farba ñu ngi lay nuyu ak yeneen ak yeneen comprendre nga ah, waaw waaw waaw genre boobu la hmm. waaw nit ñooñu man nag awma gis-gis boobu ci moom sax nga baal ma ah, da yaa ngi koy gis nii maa ngi koy gis bu baax non nag yaa ngi koy gis. ci seet waaw maa ngi koy gis ci seet moom moo Gueye mi. wax ñu dara dimbali ma rek ngir yàlla. waaye dama ne borom fa xaaloo li maa yoridu. bu ñëw foofu xaaral ma wax la rek yàlla suñ borom moo ne. moom wax na wax yàlla sànq. xam nga moom dafa wax boobu moom li mu wax xam nga day wax alxuraan joo xam ne amaana mun na koo xam sax denc ko. waaye li muy wax dafa neexut a dindi. xam nga bu ne ànd naa ci ñiy dem Dubaay bu dee yow doo ndax yàlla bi mu waxee alxuraan lépp man biisu benn baat bi daf ma daf ma yitteel lool te dama koy dama koy dama koy gëstoonu ne di ko jaraboonu ne mooy yaa ulil albaab yàlla nandite la ndax dana boroom xel yi laay waxal moom tey mu yor marchandise moo xam ne tey bu ñu ko dégloo bibliothèque la or lay jaay ak jamono xaaral ma wax la mën nañ ci mën nañ ci jariñu waaw man maa lay briefé par rapport ak waaw waaw par rapport ak ñun ni ñu véhiculer ay messages waaw doo bàyyi yi ngay wax nag taxam non non non damay wax te yàlla rek tax man waaw waaw waaw Modou Gueye mii toog wala wax ma pour kii xam nga li may wax wuy waaw waaw nante nga de ci sëriñ yi di so bi nga laal nante bu baax nga yow nante bu mag nga yow nante nga de euh, euh, kaama expliqué la nag euh. teguñu la fii mhm. pour nga ngay ngay décortiquer bu fekkee da ko ragal nga wax ma waaw non defal naa moom dama ko bëgg a seetal ci plateau bi sax tey. loolu laa bëgg loolu lañ la laaj bu yàgg de. defal defal. bul la mais question laa laaj dama que duñu ko wax moom mi ni teg invité pour ne la xoolalal ma ci kii dara. Ah. mais mais laaj ko ba xam pare na pour ma seetal ko. pare na waxal sëñ bi mi ngi lay sëñ bi tamit man maa laaj. Ah. waaw dama la jox benn kii bisu damay bañ tamit di seet ci loo xam ne waaw sëñ bi dama seetal ma kii. <laughs> mais Maodo est-ce que bu la gisee di nga na nga nangu ne gis na la. waaw seetal ma nga kii laa lay tegal de. bii na na juum ba xool seetal rek amul problème. seetal rek sëñ bi. kii mbiram xam nga lu muy jàpp. mbiram day jàpp naar yu. maanaam maanaam safara. mbiram day. jàpp naar yu safara. yëfam dafa nekk ci diggante safara ak ngelaw maanaam xawaa yu. ak naar yu. kon day tàkk moo tax mbiram. Mhm. mun na jékki-jékki na bërit waaye nga baal ma day wàccaat. Hmm. waaye il faut yëfam tàkk maanaam ngelaw nga xam ne kenn du ko mën a canaliser na ko fii ngay yam yëfam fokk mu dox. Hmm. waaye day nekk nit koo xam ne tamit ba ci wërsëgam na xool. Hmm. lu dugg noonu lay def wërsëgam day faral di tàng ba noppi lu dugg it day génnaat loolu day moom euh, waxuma pour moom mais dama la bëgg a wax ka ne comme moom mii ma gis. ak liy mbiram day bokk ci nit ñi nga xam ne <laughs> force seen mbir noonu lay dox mais moom en personne. ci la bokk. ah da nga généraliser quoi. Ah, xam nga dafa am loo xam ne. Mhm. non non waxat seet ko ne seet bi. ah ne seet bi nag maa ngi wax. Euh, rek biisu biisu. bisu man ñëwuma fi sax ngir seet xam nga damaa yor damaa yor sëñ bi nga seetal kii de waaw dinaa ko seetal de waaw kon nel yow tamit digal bu kii rek day metti dugal day metti wut na yàlla mais dama la bëgg a wax ka ne su ne nii addina yi addina ñuy seetaan addina ñoo ñuy léegi yow kon nel ci kii dama la bëgg dama damay ñëw ci moom balaa may jël dama laa bëgg a wax na la ne nit ñu mel noonu kon li ëpp solo bu fekkee bëgg nañoo jariñu ci ñoom première mm. mooy dañ leen di dànd ndax safara kenn du ko ñëw waaw. nit la koo xam dañ ko war a sori. déedéet waxuma sori de. dànd mooy sori. eh dànd ma soree dand mooy sori ah. <laughs> ah bisu teg maa ma ah, te ngaa teg ma fi ma nekk bisu. <laughs> du ma ko mën dànd ma sori sëñ bi yaay wàcc suñu. déedéet ci suñu xam-xam. ñu ñëw. <laughs> xam nga lu tax sëñ bi yow yaay wàccaat teg paa nar yee ñun. puisque man li ma gis ci moom. nga xam ne mooy gis-gis boobu. man dama wóor ne message bi muy jàllale nga baal ma du loolu au fond moom lay dund première. ok mais dafa am lu mu bëgg a expliquer loo xam ne pour mu dugg suñ bopp yi fokk ñu may ko temps mu man gisuma ci moom lu dul lii. eh sëñ bi yaa tëgg seet bi nii yaa si nga. waaw loolu laa gis. moom lu gis mooy. li nekk da ngaa bëgg ma gis leneen. Modou loo gis ci lim li gis yow ci yow ndax mi ngi teew loolu. Hmm? li wax ndax mi ngi ci yow. bon man pour commencer. Mm-hmm. góobu seet. ah baax na. kii gëmoo seet ndax lan dama ko gëmul man à part yàlla. Mhm. moo nag da ngaa réerlewul sax looy seet nag yow. Ah, dama ni <laughs> yow réerlewoo dara. à part yàlla ko ne yaa ngi ko yow sa lépp. mais c'est-à-dire parfois wax la loo xam ne day day coïncider ak par rapport ak sa dundin. du ma ne da xam dara. ah da nga jàpp ne xamul. coïncidence la. ok soo ma nee suba dinga am oto bu bees ma am oto bu bees du ma ne da xam dara. dama naan dama ko waroon am. Hmm. man noonu laay dundee. mais Modou yow est-ce que yow yaa yow yow yaa ngi nekk ci dans le yaa ngi nekk ci dans le besoin di am ay tolof tolof di am ay jafe-jafe est-ce que est-ce que yow loolu ça t'arrive. yàlla dafa sàkk Modou sàkk ñu ñun xam naa yàlla dafa sàkk nit ñi sàkk Modou. non mais xam nga damay ñi yow kii dama dëkk ak ay nit. dëkk ak ay doomu aadama. man du ma waaw moo tax message yoo ma yow Edwige. man dama nekk nit koo xam ne du ma jàmbat. Mhm. du ma jàmbat bëgguma dara. espéré wu ma dara. bàmmeel sax wóoruma ndax naa ko am. je suis dans la vie. yaakaaruma dara. lépp lu ñëw rek noonu la. Modou kon yow tu vis. saa yu may julli mhm. sama néew laay teg sama kanam di ko jullee chaque jour ma jullee sama mbokk. Mhm. cinq fois. parce que wóoruma sax ndax dinaa am bàmmeel man. tout ce qui arrive rek noonu la. du ma dem ci sëriñ da ko ñaanal. lan moo la may état d'esprit bi nga am. mais dama ko forger bi ma nekkee xale ba léegi. da nga dund ci souffrance wala da nga màggee. ci souffrance waaw dama ci à peu près gisuma ko ma. jàppale gisuma ko ma dimbali ma am yu ma dund. ma ñafeel sama bopp. danga nga màggaale ak aigri quoi. waaw ma non pas aigri merewuma kenn. man su actuellement nii yéenewuma benn doomu aadama dara jàppaluma kenn dara. ñi ma tooñ nag ñi ma def lu ma metti man j'oublie pas. tu oublies pas. non tu es rancunier quoi. dama lay baal mais du la fa du ma fàtte. mais Modou est-ce que tu es social est-ce que yaa ngi dimbali doomu aadama yi ñi nga nekkal est-ce que yaa ngi yaa ngi kii est-ce que non en fait sa état d'esprit moo tax may bëgg comprendre qui est vraiment Modou quoi est-ce que Modou aime partager est-ce que Modou je sais pas moi loolu moom bëgguma ko wax ndax maa ngi dimbali ay non non loolu moom du ma ci wax dara mais am yu Euh, consistance di dundin bi jaxasoog nit ñi. kii fa bi foofu kii appelam dëgër na de jël kii big taf. est-ce que xam nga sama magasin. Uh-huh. damay jékki-jékki samay xarit. ñi may wër. Uh-huh. ma xëy dàq leen. ndax dàq leen ñoom ñëpp. ndax je vais être ñaari fan mais ñoom ñëpp ay ñëwaat sama magasin bis mu nekk day fees. la moo tax ay nit ñoo xam ne mën nañ ma jënd ci xaalis. Uh-huh. chaque jour fa la ñuy ñëw groupe. boss maa ngi koy nuyu. maa ngi nuyu sama xarit yooyu te ñu ngi may dégg yan saa yi ma leen dem lan la ma leen. yow ay xarit paa rek nga am yow mu xarit xale. yow doo xale sax ñëw foofu ñu maa leen mag. ñoo mag yow boos noo ko magee xam nga mag la. moi j'ai 57 ans. <laughs> non moom magoo ko moom. 57 la am. yow mi ah lu may yóbbu yow mi doomu ndey bu ndaw la nag mun na ñàkk. as <laughs> bi ngeen am kon yaa ngi doo xam ni may mel. taay Dubaay bi la. pourquoi man ma dund ba 57 ans. nañ jël ki ci ligne bi 88 628 14 13 allo. ah. allo. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah sëñ bi noo tudd ak foo ñuy woowee. kii de Mbaye Sène lañ defar di woote Gabon. ah. Mbaye Sène la di woote Gabon. Mbaye Pen di wootee Gambie. Gabon ñu ngi lay déglu. ah. ñu ngi leen di jaar bu baax a baax. ñu ngi delloo ziar bu wér a wér a wér. E, ñaan seen borom bi lay mm-hmm. di ziar. est que doo wàññi télé bi nga déggoog sa téléphone. s'il vous plaît comme ça ñu mën la dégg. ñu mën la dégg bu baax quoi bi kay fay naa ko. ayca yow la ñuy déglu. waaw ma ne ñu ngi ziar sëñ maarañat. waaw di wax ne maanaam moom comme ni muy expliqué ci ay débat yu ci bare bare bare dañ danañ koy faral di teew mhm. mhm. waaye nit ki bu fekkee ne yaa ngi ciw yoon di ñaan suñu borom ngay nga xam ne ci xet mi jaam ñi moo la tax a jóg mhm. maanaam ca la nga nekk da nga cee sax rek nga nekk ci te yàlla doo nga tax ndax am na ñoo xam ne tey jii nii am nañu ay yitte yoo xam ne tey jii nii ku leen ci dimbaloon ñu jël man personnellement dama am rakk yoo xam ne mu ngi topp ci man tey jii nii su ma waxee ne maanaam li ko jàpp kenn xamut lu mu doon te euh, bi suñu waajur waa génnee liggéey keroog bi wàccee liggéey keroog la la la mel lu dàqalikoo sagom ba suñu jonni day te bokk na ci ki njëkk war jël am xarum tabaski jox ko suñu waajur ñun tey jii nii yàlla mu ñuy dimbale mais suñu waajur lekk suñu ñax moom moom lu bon bon lu mu defoon suñu waajur te tey jii nii euh, euh, mu ngi ci ay tolof te xamuñu lu te moom ku jëm yu mel nii am nañu yaakaar ne mën nañ ci dara Mm. suñu yittee bopp soxaluñu guddi ñu toll waaye loolu tey jii nii kuñ ci jàppalewul ñu jël mm. waaw yàlla baax na tey ñu ko di suñu borom dénk nañ ko suñu borom te it yaakaar nañ ci ñu mel ni ñoom ah sëñ Mara mi ngi dégg ah. jërëjëf ñu ngi kontaan bu oh. baax ci sa ci sa teewaay euh, biisu jërëjëf sëñ Mara nañ bàyyi nga tontu foofu euh, jaam de moom yaakaar rek la am mm-hmm. te suñ borom moo ne ku ma ñaan ma may la sant leen ma ma dolli leen kon ñi ngi ñaan suñ borom aajo ji nga xam ne wax na ko ba àdduna yépp dégg ko suñ boroom saafara ko ci nu mu gën a gaawee euh, ndax ñun sëriñ Saaliw dañu daan wax naan ñu sàllaawde bu leen di waxantu ndax lu ngeen wax rek saa borom mën na koo def ñun Serigne Saliou dañu ko daan wax. Mhm. moo tax ku ci wàccu yoon yow la say engagement wu bopp la waaye bu dee ci lin ñu yar ak lin ñu jàngal lu ñu jéem man nañ koo man muy ñaan yàlla même bu ma doon sàcc sàcc bu expérience lay doon waaw waaw mun naa fexe ba dagg sa poche bi sa doo ko yëg. est que kon ci ci at yooyu ngeen nekk yéen di nax nit ñi. comme lan. déggoo li ma la damay jël exemple. dama la ne exemple boobu boo ko defee. yow lan moo tax jëloo exemple ne lan moo non biir yow kon cela veut dire gaw ma ne bës bi di ko wàcc de. lan moo tax parce que système ngay demee nii yow yaa ko wax de. <laughs> stratégie. waaw biisu lan moo tax gëmoo ne mën naa ñaanal nit tey jëloo exemple boobu na ma kon oriente ma ci lu baax li rek te bañ maa séentu fee. Hmm. ndax man li may ñaan yàlla même bu ma dëngee wala bu ma bonee damay ñaan yàlla di dimbalee wala ma fexee baax. damay wax ci yar bi ñu yar ak yaakaar xam nga yaakaar dafa foor dama ko bëgg wax ne ko ndax ñun suñu jëmm rek existé wul mais dafa am kuñ ñuy yaakaare ak du ñu dendaleeg moom tuuti donte sax mérité wuñ ko moo tax ma ne ñun bu ñu wàcceew yoon man la mais bu ma defee la ma war damaa war a toog tegu ci siraatal ma moo tax ma ne ko aajo jooju yàlla na ko suñu borom faj ci nu mu gën a gaawee. amiin ñu bokk ñun ñëpp rek delloo lépp suñu borom te xam ne moom la. man ba tey fi ma teg sama tànk foofu laay teg sama tànk waaye ñëwuma ci plateau pour tuutal kenn wala may ñëw pour yëkkati sama bopp ndax man duma dara am na kilifa yu seetaan yoo xam ne buñ ne yàlla defal mu def. <coughs> waaw am na kilifa yoo xam ne. ñu ngi fii ci buntu baar bi ci buntu baar bi. nga xam ne ñooñu kun lañ am kun. waaw mais biisu. Mhm. damay bañ ñu xaw leen réeral nag nax leen tuuti. Mhm. jàpp ne ku ngeen gis ci télé wala ci écran wala ci internet xamul dara. non xamul lu tax loolu cher bi parce que euh, dañu gis parfois ci yéen. Mhm. dafa mel ni clash la mel ni mel ni mel ni ringu rappeur taf ñu dellu si moom. d'accord rappeur yi mooy ping pong bi yow yaa ne ma lii kii moo ne ma lii après tontonte bi dafa mel ni que ku nekk da ngay utiliser moom pour am buzz boobu en fait. waaw xam nga xam nga xam nga dafa am ñu fi nekkoon ñoo xam ne. Mhm. dañ daan fay ñu leen di tudd. ah waaw ci sëriñ si fi nekkoon bu njëkk. xam nga booy fay ñu lay tudd. Mhm. boo amatul loo fayee mhm. kenn du la tudd te ku ñuy tudd rek da ngay jàpp na ciy pexe la nekk mhm. te fekk suñ borom jamono ju ne ak liy am yow sax da yàkkam di woon di fay mais amaana boo teeyoon suñ borom dana ñëw ak i dogalam mhm. xam nga nit ki ni nga mel léeg-léeg ma gis ñun naan ay sëriñ lan na ma yàlla baal dëgg la kilifa yaa ngi toog ci kër yi ñuy génn di décortiquer loo xam ne dañuy wax ba pare ne leer na te fekk dara leeru ci te yéen sénégalais yi pourtant da ngeen a gëm ñooñu de wala am na ci yéen ñu gëm ñooñu. Mhm. waa lan moo tax nit ñi nanguwuñu ki nga xam ne day ñëw indi dëgg teg ko ci taabal ji dafa am benn wax bu ma wax mu jur coow lu bari ma ñëw toog ne waa nit nan lay mën a ñaanee yàlla di ci fayeeku ay millions am ku ñëw toog na ma nga ne lan ma ne ko ñaan yàlla jër te fay ay millions. kon yow doo fayeeku. may fayeeku ba toog ci gaas bi. léegi li nga wax ak li nga wax ak mais du ma ci fayeeku ay millions. ñaan ay 10 millions ay 5 millions ay ñaan bu baree ba bari 1 million doy na ci biisu. alors ah, million la di. waaw benn mais benn sax <coughs> nga xam ne man nga mu wër na leen fukki fan ak nangam yi tëjul nga nit ki defal ko ay saraxam di ci joxe yow sab dépasse ci li la lew boo génnee nga waxanteeg moom fu aajoom fu aajoom toll mais sëriñ boo xam ne chaque jour danga koy dégg ci ay kër ci ay jëndum oto ci ay dig. yow boo ci am ci lan. ndax am nga kër fi mu ne nii. fi mu nekk nii waaw. Euh, biisu nag yi ngay laaj dafa xaw a doy waar. <coughs> ah dafa naqaree tontu. ah, ah, ah amagoo kër damay laaj am est-ce que am nga kër. parce que boo demee bay ŋàññi ki nga xamante ne dafa dem ci wut di wuti kër. Mhm. di wuti teene yow war ngaa fàggul sa bopp xanaa. am na lu ma la bëgga tontu waaye xam naa ne bu ñu weetoon moo may gënal. Hmm. Modou bu ree. <laughs> waaw ndax dafa nekk loo xam ne. Euh. fi mu ne li nga ma laaj nii daf maa jege lool te danga maa laaj ci samay mama tontu ma ci. maanaam da ngaa ci wutum kër. non non déedéet du lool sax. bu laaj laaj ci samay mama kay. Ah, ah, ah, maanaam non non nekkoo ci wut loolu te nit ñi nekk ci <laughs> àddina di dund pour wut loolu. non nit nekk ci wutum kër. waaw mais tey boo toogee ne yor naay kër. Mhm. wala nga toog ne yoruma kër. Mhm. lu naqaree firi lay doon ci nit ndax day mel ni damaa dégg sëriñ bu toog daal ne ku yorul kër mënoo ñaanal nit mu am kër. ndax moom tappale na ba ami kër jàpp nag kaay ma wax la ma demee fekk la ca ah. ah dama <laughs> li moo di wax. non pourtant mun nga ma biisu biisu ngay luwe ma bëgg am kër. Mhm. nga fekk ngay nga luwe location di la bëgg ray yow la nga may ñaanal yow doo ko ñaanal sa bopp. Euh, pourtant mun naa la ko ñaanal de. ñun bi ñuy jàng ci daara gën a jege gën a ñëw bi ñuy jàng ci daara ji. pourtant yéen da ngeen doon taal seeni oto ñëw ñu leen di ñaanal te boobu ñun amuñu dara. ah ah. yow eh, jàllal ci loolu. non xam naa dama ciy jàll parce que ah, bokk ah, ci non waxuma yow de. yéen étudiants yi nga xam ne waa université li ma lay wax nii daaree xabaan ñoo ko yoroon. ñi ngi fa ba tey waa daayira bi. Mhm. tey ñii ay banquier yu mag lañ mën naa tudd seen i tur. ñii ngi taxawal ay yëf yu mag ci réew mi te dañ daan sukk ñëw fekk ñu ci daara ji man man ak Ketchup ñoo bokk sëriñ sëñ Ibrahima Kunta moom la ñaan dafa sëñ Ibrahima Kunta. ah yàlla na ko suñ borom yokk. amiin da koy yokk kooku du bokkul ak yéen de. yéen biisu man foo may considéré <laughs> ci booy yi <laughs> ci booy yi ci booy nga bokk booy yi def buzz ni actuellement yow kaay ma wala nag. ah yow bisu bisu charlatan baat boobu baal ma teg ko ci suuf. man alalu Serigne Saliou laa mais mais moo tax tey ñu invité la. Uh-huh. nga mën a uh-huh. def différence entre soit su bu jeexee sénégalais xam ne charlatan nga wala. Mm, parce que ñun duñu xam. c'est-à-dire bu émission bi jeexee ñoom ñoo lay catégoriser man nag charlatan damaa desee xam sax lu muy firi. ndax man daa mel damaa mas a dégg bu doon ndax damaa xaw a ragal baat bi nga ma sax lu muy firi. xanaa xamoo boo ko bëggut boo ko déggut buñ la ko waxee mm-hmm. du la déranger mm-hmm. léeg-léeg ma tegleel la ay moo yoo xamante ne li ma neex ma comprendre moom mooy rek loolu moo boo comprendre bul xam euh, biisu euh. man daal maa ngi sant yàlla ci li nga xam ne moom la ma jagleel mu néew mu bari xala bu ma nag benn sëriñ ndax sëriñ saa ngi toog di ñaan waaye dafa am ñoo xam ne dañuy génn di feeñ te du ñuy sëriñ tey lan lañ. mais man man si sa langage tuuti damay dégg ni que. Mhm. damay damay damay gis ni que dangay xas ñeneen ñi. di gën a mettre sa bopp en non non non non non valoriser wu ma sama bopp de. billaahi lazi man maa leen gën a xeebu maa leen gën a suufu. mais pourquoi nga bëgg a def leen booy yaa ngi def xaas booy. te yow yii ne yow yaa demoon yow yaay sàkku ñu mu ñëw ci yow. yaa sàkk woon mu ñëw ci yow yii ñu nga naan ñii. dëgg man dama ko doon dimbali. man dama ko sauvé yow koy sauvé koy dimbali. ah mais dimbali moo tax xam nga ku lay woo appel trois heures de matin. une heure de ah, temps ah loolu c'est privé xëy na dama lay wax rek dama lay wax mi ngi fii sama téléphone mais ci jamono jooju amaana fekk ngeen ko. non non ci jamono jooju. Mm. kooku bu doon man maa koy dimbale. ci jamonoom. Mm. bu ma ko woowee sax du ma jël. bu doon moo lay dimbali. waaw man maa ko doon dimbali te man woote wu ma dañ may woo. Ah, ni tey dem fenn ragal fa sàkku ma kaay dimbale ma yóbbu ma. ma dimbale la mais bu ma demee ba xam ne jëroo gunge damay toog. ba noppi xool la lëj mbët la bu ma wóoree na yow mii ci li nga nekk nanga ma génn la fi yóbbu la bi toog ci dëkk bi liggéey ko koy xanaa yaa yóbbu ñoom kunkande kon man ñoo ñëpp yóbbu nga nag sëriñ national man sëriñ boo jàpp ne fii dafee nekkoon di def dara maa la fi jële moo tax ku tegewul ci wuy ma kun mais mais mais mais euh, euh, bii su damay wax benn affaire de juillet la waroon xar <laughs> non ci kii euh, tabaski yóbbu nga ko waroon am na am na lu bari loo xamul biisu nga baal ma neeral ci la noonu xar xam nga tey <laughs> jaawale assura bi muy wax naan tam xarit ci ngoon te assura tam xarit ci ngoon biisu biisu sëriñ dafa jafe te yéen da ngeen da di ku feeñ solo mbubb rek wax ma dëgg ku feeñ ku feeñ solo mbubb ku feeñ solo mbubb rek ngeen na sëriñ la te pourtant yéen ñi ay sëriñ lan même yow mii même yow mii hmm. dinga laal ci xeet yooyu ay seet ak yu mel noonu yow mii <laughs> danaa la fa gis ay biisu kum seetal ndaw ndaw. la na bu ñëwoon ngay seet yor say peta wala nga yor sa dara nga ñëw toog ne biisu sëriñ la dafa am ñoo xam ne da ma seetal ni yow te laa jëm sama avis. Ah, yow ma lay seet yow dafa am lu tey dafa am lu ma tey dafa am tur yu ma la war a jox sax yow ci. Euh, gis nga biisu. non biisu yow xamoo sax tey li nga def man seetkat laa man mi <laughs> waxuma loolu de. non da waxuma loolu mën na am nga seet waxula nga de xanaa ñemewul loolu kay. <laughs> mais seetkat nga biisu biisu. siège laay def de siège. da seetkat bu am révolution. biisu kan nga. mosoo seetal kenn waaw kay yow affaire seet yow lu tax parfois say wax dëgër fit parce que euh, <laughs> moom moom moom ay waxam dafay cax ni xam ko dëgër fit non ah. ci benn euh, interview mhm. euh, je pense que Feeling Dakar la daan ne Wally na ñaareel mi ngi ci biir kër gi di daago di sëy maa ko gis itam nga dugg foofu mais non question la bu ñëpp di laajut fan ko la ko teg mhm. non loolu yow sa yoon nekk ci lu ma laaj je demal nga laaj ko non yow la non lu man xam nga waali mënu ma ko laaj yow laay laaj. mais li ma wax noonu. Mhm. man suñu maam yi moom dañu amoon ay. mais décortiqué dañu may def jinne yow tamit. jinne nga ndax yow da xam loo xam ne waroo ko woon a xam. loolu jinne lañ ko daan gis. mooy mel ni que dafa décortiqué fi ngay waxee lu ko romb mu fàtte kon dafa décortiqué fi ngay waxee non non waxuma ne. wax waxuma ne. Ah. waxuma ne daf ko xam. mais li wér te wóor daal mooy leer na ma ne. Wally Seck mhm. dafa am lu muy àndal loo xam ne jinne la. <laughs> bu leen ma woo di ma wax ay futur sëriñ tekkuma ko yéena mhm. te mooy li wér. Mhm. bi ci topp mooy soiréem damaa waxoon ne jinne yi ñoo fay ëpp nit ñi. <laughs> di ngeen reede ndax xamoo leen li may wax. ok fi mu ne boo demoon soirée Wally nga ne kaay leen simmi leen dàll yi. ñu bari du nangoo summi seen i dàll. waaw. Uh-huh. kon xaaral moo tax benn soirée dem nag. déggu ma. Hmm? sa saar bii. ci nangootul dem nag. ah yow di nga dem bis bi nga yow da xaar bis yu mag yi rek xam naa ne mais di dem rëccëgoo. da ngay mu summi dàll yi. comme. bis mu summi dàll du moom dama ne euh, loolu dafa yàgg. même ci diina ji même lu mel ni bis yu mag yi. dafa am jinne yoo xam ne jinne kéefër mais xanaa ko looloo taxaw ñu ne képp ku fa dem ku bu safara nga jëm safara moom man gis nga yéen Sénégal hmm. da ngeen a xaw a neex a nax parce que nit ki nga xam ne dafa wax benn affaire hmm. jàpp ne looloo tax nit ñi di ko bàyyi xel hmm. chaque jour mu fay duut baaraam ci xeeti safara xeeti àjjana loolu terme de communication rek la mais nit moom li mu wax sax gëmu ko mais yow en terme de communication génn répliqué ne ku fa jëm tamit nga jëm non non dama bëgg jërëjëf Big Taf. alors parce que man dama gis ping pong bi ku ci nekk da ngay ut buzz ci ci Wally mais euh, da balaa nga koo balaa nga koo raxas fokk sa loxo day taq. wax ji bis moo ko firee. <laughs> Mm. loxo dina dem gémmiñ. maanaam. ku dem ca soirée ba ba ñëw. Mm-hmm. ne lan moo tax ñu ñu ñu ñu jël bëgg a jël nit ñi bëgg leen a dëkkal sawara mel ni ku moom safara wala àjjana. Mm-hmm. te Sénégal liñ fi jëf ci lu baax. Mm-hmm. ñu koy teg nële bëgg à chaque fois xale bu dem fecc wala xale bu dem féexal soxol wala ki dem ci baar bi ñu ne ko boo dee dem safara tiital ko ba xale yi léegi nangootunoo jaamu yàlla man méthode bi may waxee ak fi may li may jàngale mooy jombul danañ ci ñëw dafa am ñu ñu goddi ñoo xam ne dañoo bokk ci société bi. suwaare jinne kay. te loolu te loolu. fokk fokk fokk fokk ñu boole leen ci. xam nga lu tax. am na ñoo xam ne ban juddoo ba tey ñu ngi dem suwaare te jàpp nañ ne seen àdduna yàqu na. mais oh. fokk nga kay. waaw waaw mën na nekk. Hmm. puisque am jàpp nañ ne baal ma tuub passé. loolu lañ leen gëm loolu waaw jàpp nañ ne nangam jàpp nañ li liñ nekk nii dafa bon. alors que damay dem ci seen biir ban jàpp na ñëw naa bu ñëwee ma waxtaan ak ñoom ci li nga xam ne. bu ñu ko jaaree man waaw man damay dem soirée. waa jàpp bu baax xam nga ne yow yow yow drame yóbbu na la safara. ci fan moom moomu safara. jaxaan na ma de laa lay tegal de. safara moom suñ borom a ko moom moo moom àjjana waaye nit ki da war a defar sa jëmm ba ku la xool sax sa xel dem ci àjjana yow biisu ñaan nga yàlla ñu teg sa néew yàlla na yàlla yàlla na yeex ñëpp xel yëpp dem ci safara kenn ñaanu ko yàlla man nag bëgg naa bis bu ñu ma tëralee ci jaag ñëpp ne moom de àjjana rek la daan waxante. amaana wax safara bi danga nga jàpp ne daf ko war a banaan. waaw nit ki nit ki nit ki nit ki dañ koy àttee ba ci kem ni muy solo nit ki dañ koy àttee ba ci kem ay xaritam. mais moom il t'a directement. yow nga pare ne da nga ko attaqué directement. ku ma attaqué. Moustapha Dramé sëñ Moustapha Dramé. biisu man du ma kenn. xam nga lu tax attaqué waate xam nga lu xam nga lu tax du ma kenn man dama ne la xale xale sëriñ soosu ngay wax non non non pourquoi ngay wax loolu tamit di leen tuutal non ñooñu ay xale lañ man mënuñoo taxaw sama kanam tey jii di ma wan loo xam ne xaw ma ko yow wala ñu may wan loo xam ne tey ngay ñëw gis nga nit yéen da ngeen a ragal sénégalais yi da ngeen a ragal euh, nit day ñëw sol mbaxana sol garam bu ne safara lii te wax moom gëmu ko yéen gen toog naan waaw waaw parce que kii mooy wax xam nga la Sénégal xam nga fii kan moo leen tooñ xam nga Sénégal kan moo leen tooñ genre bisu gi genre Médoune Import. waay ak euh, dégg daat bi muy yónni mu taxaw <laughs> yaa ngi dégg. toog jàkkaarlook moom sëriñ bi ñëwaat nañ. <laughs> kéemaan bi ay waay alaay dégg ñëw yàlla. Euh, allahumma salli ala biisu mais gis nga xalal xaaral ma expliqué xam nga tey <laughs> ñu jël leen ñu sëñ Mara. Mm-hmm. xaw ma lan lan ñu ngandal taa wi def affaire kii ba mu ba mu ngand. affaire bi bu boosté boosté réseaux sociaux yi nag ba mu toll fi mu toll xam nga sëñ Mara xuloog Adamo fii Adamo attaqué ko bu paree ci Adamo mu dugg ak jaaba sirage direct. Hmm? def nangam ak nangam nit ñi nangam ak nangam affaire yi def tole def bës. forcément ba pare tey leen il faut que ñu ne confrontation am na ci yoon kii na ñëw toog ñu wax lan la yebee Sénégalais yi. donc ñun dañ ci daal di am yoon. bisu jéego ñun xam nga mënoon nañu toog fii ba cent ans quatre dimanche sëñ Mara du ñëw plateau la. dëgg la waaye tey. obligation la ñu am ñu teg la ci plateau bi pourquoi. leeral parce que tey euh, wax dëgg yàlla yaa ngi commencé am benn aura boo xamante ne est-ce que sénégalais yi tey war nañ laa gëm wala waruñu laa gëm. d'accord il faut nga jox ñu lu palpable loo xam ne moom la ñuy téye suñu loxo yi. mais du da ngeen toog di xasante ku ñu def sa promotion bu négatif. Mm-hmm. mais mais mais biisu. mais mm-hmm. rapidement après ñu dem ci Modou balaa ñu ñëwaat. biisu mm-hmm. yow bu fekkoon nit ku bon rek sa biir kër da koy beddi sànni. yow déedéet. déedéet sa kër ku fa xale bu fa nekkoon jubadi mhm. da nga koy génne na ko bul fi duggati déedéet est-ce que ki nga naan góor jigéen la wóor na ne la ba xam góor jigéen la waa léegi nag moo tax nag ñu invité la nii pour laaj parce que ñun xamuñu waaye yow xam nga te da nga ne biisu am na loo xamante ne xam nga waaye ñu tax ñun ñu bëgg xam parce que tamit dafa am ay normes yoo xamante ne man góor jigéen fu mu romb wala fu mu ku mu waxal wala ku mu nàngam wala mu leeral kii góor jigéen la wala nga dëkk fu mu wala nga nàngam amoo droit mais wuy oh. uñ la ngay wax ak moom sama waa ji biisu man yabuma sénégalais yi mais fan waxante léegi nag léegi nag wax ma man lan moo tax man ma war mën a jàkkaarloog koo xamante ne saa waay pose na ongle kaw mhm. yaa ngi dégg mhm. ñun ñuy wax ne kii góor la nii lañ ko tuddee mhm. nàngam ak nàngam comme ni ko sëñ Moustapha Dramé waxee kan non non eh, buy ma nag gis nga biisu. Eh, dañuy euh, xeex non non taxam wax la biisu. waaw bul gis koo xam ne dafa am jot nee day ñaan yàlla. dem dajale ay këyit bind loo xam ne lim bind bi ma liiree mbind mi ak lim ci wax damaa rus ma ne kii yee ñeme yàlla <laughs> kii lim wax. fii li ngeen koy waxal bari na de mais tamit fii internet bi am na ñu naan ci maaraam mi moo ñeme yàlla. waaw waaw loolu loolu loolu moo ko àdduna ñoo ànd yàlla mii sax chaque jour ñu sànni ko xeer woo xam ne bu doon fayantoo chaque jour nga gis ko ju mais ah, pour revenir ci Bijou waaw pour revenir ci la affaire bi jógee ba ngeen war je sais que ah, <laughs> euh, euh, dafa am benn coq boo xamante ne euh, dang ko dang dang ci dang nga ko habillé wu rek juste pour te protéger en fait ngeen baal ma dama tëb sëñ Mara pour ñëw fii parce que damay fàtte damay fàtte lool xam bëgguma dugg ci sëñ Mara il faut ma dugg si si si si moom parce que bu ma bàyyee big taf du pare ak fii ndax gars yi dañuy bëgg di déglu fii mais euh, moodu moodu dafa am benn image boo xamante ne da da nga da nekk ci biir di ci protéger wu man ndax danga nga mës a dund danga nga mës a dund lu metti wala wala dañ la mës a euh, euh, trahir dafa am loo dund loo xamante ne moo ma je sais pas moi mosoo la def dara la metti ci parce que Modou ni ngay dundee nii j'ai l'impression ko ni tu te protèges pour ne pas te blesser en fait da nekk ci benn coque nii rek pour te protéger man j'ai dama am dama am défaut bu rëy ah vous mooy man man dong mooy man balaa kenn sama bopp ba pare loolu qualité la lu def ko. ah non Sénégal nanguwul leen. maladie la sax. Mm-hmm. parce que yéen yéen a nanguwul loolu. Mm-hmm. vous ne voulez pas bëggu leen accepter nangu leen nit ki ni mu mel. Mm-hmm. nit ñi mënuñu yem. man du nit bu ñu ñëpp gëmee dara man mun naa ko bañ a gëm. man xanaa xamoon Sénégal yëpp àddina bi bu ñu ñëwoon un plus un égale deux. man ma gëm ni un plus un égale trois. ma deewaal deewaaleeg sama gëm-gëmu 1 plus 1 égale 3 moo ma gën a mani 1 plus 1 égale 2 parce que ñëpp ne nañ 2. mais c'est c'est quelque chose de concret. dama am conviction. xam dama am gëm. après wax loo mënta justifier loolu après waxu waxu waxu. kasaw la non dama ne mhm. man ni ma mel. Mhm. j'ai pas de problème man aw ma yéen ni ngeen mel aw ma problème ak yéen yéen yéen a am problème ak ku mel ni man wala ak ku mel ak man. parce que les gens n'ont pas l'habitude de vous n'acceptez pas xam li muy wax nii. man déjà schizophrénie hmm? mais euh, euh, problème euh, alors si parce que man. yéen a ngi wax ay par exemple Koukandé la xaw ma. Mhm. mais defe nga ni Koukandé li mu wax bu doon France nit ñi nit ñi dinañ ko dégg bu doon États-Unis nit ñi dinañ ko bàyyi xel parce que dafa xam ni Sénégal loolu lañ gëm. dafa jàpp ni Sénégal yi ah, ah, dañuy topp mel ni ay xar yu topp ay yeneen xar rek. léegi pourquoi c'est pour tey su ma ñëwoon li si émission bi bu ma ne woon weer bi indaale naa ko sama oto di nga gis ku ñëw denc ko buur foofu la seen bopp yem waaw moo Modou d'accord ñun fi suñu euh, bopp yem yàlla bi muy bind euh, nit ñi dafa ni borom xel yi laay waxal borom xel nag mën nañu nekk ñett wala ñeent xam nga yow euh, da am benn trouble de la personalité en fait trouble c'est quoi waaw waaw xaaral parce que xam nga lu tax hmm. moom mooy schizophrénie bi ma lay wax nii parce que <laughs> Modou tu peux di accepter nit yi ni di leen nangul ni ñu mel te jabar bi nga takk doo ko nangul ni mu mel. lu tax ma nangul naa ko di mel. mais pourquoi fase bi. daf ma toog. <laughs> kon xamoo baale yow doo baale yow. dafa ne déggoo li ma wax. Mhm. dama ni man. Mhm. sama soxna am na loo xam ne boo ma ko defee damay dem ci rajo bi wax ko. parce que mhm. defuma la ko. soo ma moyee ma la jàppee dama koy siiwal. amoo sutura yow déedéet. mooyu ma la nga may mooy. man góor mooyu ma la yow jigéen. yow jigéen nga may mooy ma baal la mais dama koy wax ba ñëpp xam ni mooykat nga beneen góor bu la takkite affaire am la après tu dégages c'est ça mon problème. lekkuma ci waaye dama ci xëpp. non déedéet du question lekkuma si man du may yuus jigéen xam nga fi Sénégal bari na ñoo xam ni fase nañ seen jabar depuis vingt ans. Mhm. ñaar fukki at fase nañ ko. parce que def na leen dara góor yooyu ñooy bon góor yu bon nag mais yéen man ngeen defe ni maa bon. man nag parce que am na góor yoo xam buñ leen wóoral ni buñ la fasee boo génnee beneen jigéen takk la duñ la fase fii ñaata jigéen ñoo fi demandé divorce ku góor ki bañ. Mhm. parce que xam na ni bu koy may baat keneen takk ko. Mhm. man su ma la xoolee xam ni du dem sax du ma bëgg a yow doom dama lay teel la fase nga dem. mais Modou kon parce que je veux man du ma dugg mais kon yow nan ngay defee choix parce que bu fekkee yow da ngay def choisir mu am sikk nga fase nga dafa choisir mu am sikk nga fa. est-ce que en fait kon yow doo def doo def rétrospective. xam sikk en personne mais mais le monde est di nga jeexal de. dama mën a jeexal jigéen mais dëggantaan sa jabar akulaat kese ko fase akulaat kese kese. bi yow man soo ma nee maa ngi dem Dakar ma gis la Pikine dama lay fase parce que boo ma nee maa ngi dem France man la demal boo ma tàggoo ma bàyyi la pourquoi nga may fen pourquoi Sénégal bëgg nit ñi bëgg. kuy fas nga ñaata. kaat kese laa fase gum. <laughs> gum waaw. Ah, dinaa takkaat te xam naa dinaa fase waat parce que fen ma fase la. Euh, euh, Big Taf. Euh, mais pourquoi nga war ma war a. mais pourquoi yéen li yàlla gën a bañ ngeen gën koo yombal. muy fen Sénégal li yàlla gën a bañ. man nag moo fi gën a yomb moom la ñëpp di naan comme ndox muy fen. d'accord fen moom. Mhm. moom pour moom ndox bu sedd bu ñuy naan. Mhm. góor ñi fen seen jabar yi jabar yi di feñ seen jëkkër yi. mais man mënuma dund ci loolu. Mhm. man sax damay dëggu am na loo xam ne ma nekk man doo moom gënal. waaye xam nga ne yow doo yàlla moo def la yow. man fi ma teg yàlla est-ce que sénégalais yi teg nañ fa yàlla. c'est Modou contre les les sénégalais. mais nag Modou man au fond. man lu ñu war a xaar la. man nag au fond mhm. seen gëm yàlla sax dama ko dama ko dafa dafa leer dafa dafa ma dafa ma dama ci am doute. Big Taf man je me au fond. il bu fekkee lu nit ki def ñu ne yàllaa ko dogal. te yàlla ni kenn ku nekk dinaa wéet ak yow. Hmm. teg fii malaaka muy bind. yéen ngeen taxaw ni nit jëfam ak lépp lu mu def yàlla la. Hmm. mais yéen est-ce que fi ma teg yàlla teg ngeen fa yàlla yéen. Maodo est-ce que yow tu ne manques pas d'assurance euh, euh, en relation en fait. man est-ce que du loolu tax yow. tu tardes à te remarier tu tardes à refaire ta vie. tu es tout temps sur la défensive c'est quoi le problème. moi je suis tellement je suis trop fier de moi. Hmm. barke alxuraanu bu yàlla tasoon àddina bi di ko defaraat. bëgguma nuroo kenn moo Gueye laa bëgg a eh, nekk. waaye ndaw Samba kenn bëggul mel ni Modou Gueye tamit. way ku la forcé te milliardaire yaa ngi fi borom xam-xam yaa ngi fi ñëpp a ngi fi ñi xees ñi njool bëgguma nuroo kenn man dama bëgg melaat ni ma mel. parce que tamit ni ma mel doy na ma. Euh, euh, façon de faire bi moo tax du ma sonn sama àddina. ñi la jege. peut-être xam nañ ma jooytu. mais tey sénégalais yi ñu ko xamee tey soo demoon ci ma jege. ku mel ni samay waajur. Mhm. ngeen ko ndax Modou Gueye mës na jàmbat. man du ma musuma wax waroo mën a jàmbat sax musuma wax ni aw ma xam nga sànq da nga ma ndax da nga am lu la musam man la man dara musuma metti kon yow doo jooy doo am lu la naqari doo Modou yow doo jooy jooy pour lan non lu tax may jooy jooytu non doo jooy am émotion am lu la naqari si dinaa jooy lu ma waree jooy naa jooy ah, mais du ma jooytu xanaa yow li ngay jooy noonu xamoon ni dogal non du may jooytu non parce que ah, loolu nit c'est-à-dire doo jooytu quoi non jooytu laa jàmbat laa dul def doo jàmbat du ma dem sax ci sëriñ di ko ñaan mais bu amee nu la metti nan nga koy réagir kokal la man lu ma metti sax mën na nekkaat lu neex ci man mhm. parce que lu ñëw dama naan noonu la Modou benn gis ni bëggu bëgg jigéen bëgg ko nii sa xol mu jaral la non non non man mosuma nopp jigéen <laughs> yow ngay takkee kat Modou yow lan ngay <laughs> am na ñu nekk seen kër toog naan pourtant ñoom noonu lañu mel waaw ah, dëgg la waaw d'accord yow léegi la lan man damay lay gis mhm. nga rafet nga neex ma ma ñëw nii la neex nga ma est-ce que mën nañu nekk nii laa mel dafa am lu may bañ. Hmm. sëy bi nag sa loxo laa koy teg. Hmm. boo bëggee mu continuer rek ci yow la des boo ma nee may ma balaa ngaa yeggali ma la demal man musuma regretter. kon yow les les choses ay galan ay duw ak yooyu yëpp fekk déggoo ma ni. Ah. man déshérité naa sama taaw. ki nekkoon sama taaw. ndax ah, dama ko effacé sama àdduna. ndax lan dara. sa taaw nga déshérité ko. barke alxuraan bu yàlla bu ñu tasee taseeti ci àddina. mi ngi dund. mi ngi waay 22 ans la am mi ngi itali yaayam tubaab la dama taggook yaayam camerounais takk yaay ji muy wër ci monde bi ñu ne ko kan mooy sa papa ak sa yaay muy di ko laaj lu mu def ci àddinaam quoi. Mhm. est-ce comment il a fait ba yegg si fii. bi muy expliqué mu ne yaayam italienne la papaam camerounais. ok man nur naa la koy topp ci doom naan ko maa la jur man ak ni ma mel. mais Modou dëggantaan yow kooku yaayam wala comme ci mënti doon Modou mosoo bëgg dëggantaan tombé amoureux. jigéen waaw non ah mais na ngeen nobbee jigéen mu ne na fi yem ngeen ko na fi yem. barke alxuraan ku mu ne na fi bala ngay yegg ci yem man la demal. yow say say say ex épouse nag yow. mais noonu la demee ba keroog may dee ku. mais expliqué fi expliqué nga fi si émission bi koo xamante ne bàyyi na papaam bàyyi yaayam topp la ndax yow. bëgg la carrément. mais ba mu kooku waaw kooku waroo koo fase boo ko fasee sànniwaat nga ko. daf ci boole góor. kon est-ce que gars yi jigéen ñi nekkul la ñuy ñàkk yow. boo jaa ci boole góor. est-ce que gars yi nekkul sa xaalis la ñuy soxla. boo bàyyee sa ndey ak sa baay ñëw topp ma. Mhm. xam nga da am fulla. Mhm. may la man de boo bëggee ba àddina tukki nga mën njaamay suul sax bu la neexee. Mhm. bu ci góor bokk. bu ci góor boo boole góor bi yow accolade bi ak bisou yooyu rek ngay ngay jël. ma yow ma yàlla lu mu wax ci accolade. wallaay waaw waaw bu ci góor bokk mooy ban façon. mooy ban façon maanaam bu nit maanaam bu tey jii bu ma doon émission ak Big Taf bu ma nuyu Big Taf. bu ma wax ak Big Taf. yow. waaw boo nekkoon sama jabar. waaw kii ñëw accolade la. Hmm. waxuma accolade. nuyu jox la ko bu ci góor bokk maanaam mooy bu ma nuyu maa bu ma nuyu maa bu ma nuyu bu ñu toog sax bu ci góor bokk. Mhm. xam nga man nee naa sama téléphone jabar. su ma nee nii di laal téléphone am mu ne ma tegal ci suuf teg beeg fase naa la bi mooy ànd. <laughs> xanaa yow suur réception bi kon nga ko fase parce que xanaa réception bi kenn akulaatu ko de. am dëgg de vraiment. voilà man naa sama soxna. deux heures ngeen réceptionné moom une heure du matin téléphone di sonné ma yëkkati mu ne ma tegal. non loolu am nañu du moom moom yow say jabar du ñu def la. mais yow c'est vice versa j'espère. 80 pour cent Sénégalais c'est vice barke alxuraan man ku ma woo sama jabar mu neen dama naan te wuyul. mais mu réew jàppoon na xale jigéen sa xaalis dañuy soxla di la use yow ko man dama am xaalis am nga kay am nga am nga am nga allah moo dubul dugg foofu am nga <laughs> nañu nañu tub loolu ñàkkoo doo fa xiir arrêteel xam nga suma noppee ñi may nekkal dañ naan Modou fenkat la man aw ma un mètre carré terrain ci aw àddina hmm. un mètre carré aw ma ko est-ce que duma woo Edwige laaj ko ko ñaanuma ko defuma ko dara yaa ko maa ngi dund xam naa ne daal li nit ñi dundi maa ngi dund. Mhm. kenn gënu ma neex dund ci sa kaw Sénégal bi. Hmm. je suis trop. Modou doo bàyyil sa doom yi dara. zéro héritage maa ngi dund. sama baay dafa ma bàyyil dara. Eh. <laughs> sama baay ngi dund am nay kër am na lépp man maay taaw maye naa sama wàll te sama baay ngi dund nee naa sama baay boo dundee téeméeri at yàlla naa dund juróom na manqué benn at yàlla nag ma gën a gudd fan ci kaw suuf. man saa yu ma yeewoo maa ngi ñaan yàlla sama bàyyi gudd fan parce que dama ñaan moom war a gën a gudd fan kon yàkkamtiwu mu dee déggoo fi may waxee. Mhm. sama yaay bi mu génnee àdduna dëju ma. waaw waaw loolu loolu si ñi demoon ci dëj bi. Hmm. xam nañ gëm la kon di war da nga est-ce que li ma wax foofu yëpp da ko wéet da ko da ko bañ. moo du wéroo de. wéru sa yaay dee ngeen làng ginaar yi daw ñi ñuy daw ñiy woyaan ñii di yalwaan ñii di coow li nga suur rek ba ngoon jot nga ne yow sa yaay dafa dee danga am naqar après ñu nga encaissé benn vingt millions euh, jaxal mhm. man bëgguma xaalis boo xam ne sama yaay moo dee may lekk xaalis boobu bëgguma xaalis boo xam ne sama papa moo dee ma téye xaalis boobu doog ñu doog maa xam donc boo amee sa sa kenn sa proche na ay genre nit yu mel dama ni man man xaw naa nduróog moom jikko sax hmm. Hmm. dama ni non am na mbuyu ma bisu kii li muy wax nii am na jikko yu baax yu yor de <laughs> nit uh-huh. un vrai homme mm-hmm. dafa war a effacer existence su baayam mm-hmm. am na ñu déggul nag dama ni nit dafa war a fexe ba bu ñuy koy wax ñu ne diw mi mm-hmm. wala ñu te bañ a wax doomu diw foo dégg ñu naan doomu diw rek tekkee goo wala rawagoo sa baay wala tegoo sa tànk fi sa baay tegoon tànkam man fu ma toog dañ naan Modou Gueye kenn du wax Modou Gueye doomu diw parce que je me damaa def sama bopp <laughs> neen sama bàyyi li mu am ma bàyyi kook moom di fi ma waxee fii ñaata nit ñoo fi toog di xaar seen bàyyi de pour ñu dond ko doog a nekk kenn doog a siw question de gëm-gëm la man à part yàlla gëwuma keneen bul sonn kon yow nekkoo bokkoo ci benn tarixa yooyu noonu murit Sëriñ Tubaa dama ko bëgg bi ma màggee sama bàyyi nekk murit jóguma topp Sëriñ Tubaa de wala ma bëgg Sëriñ Tubaa dama ko gëstul sama bopp ba mu doy ma ma xam ni kii doy na ma c'est pas parce murit la rek ma nekk murit maa gësul sam bopp ba gis li sëñ Tuubaa wax dëgg nag waxuma la nit ñuy wéeri rendoore te ñu bàyyi di dundee jëfu keneen dëkk bi dëkk bi loolu laa bëgg Sénégalais xam jëfu nit rek la ñuy dundee mmh. xam nga dañuy gis am na ñoo xam bi ñu juddoo ba léegi boo leen laajee looy liggéey loo mën loo mës a def dañ naan la sant sëñ tubaa mais sëñ tubaa ba muy sant yow la ko santal ba muy sonn yow la sonnal sa life yëpp coono Serigne Touba ngay dunde yow. si ce n'était pas les fils d'Adam je ne passerais pas. une seule nuit bi li mu daj yëpp ngay xëy di jàngale àllaaxira ñu ne loo def ci àddina yàlla nga dama doon sant yonent bi yow daal yonent bi coonam nga dundee yow ba keroog ngay dee qu'est-ce que tu as fait yow soo déggee mën naa ne nañ bàyyi waxu nit ñu démb yi suñu maam yi suñu maam yi sa maam bu defee dara da ngaa war a def dara yow. pourquoi ñu topp rek naan la fi Lat Joor defoon la fi sëñ diw defoon li fi diw defoon ñun lan la ñu def. kon Modou yow di am sérieux problème ak géej yi taxaw di la dama ni la lan mooy différence su yalwaan ak woyaan. non yalwaan da ngay ñaan mais woyaan da wax da ngay wax ay histoire. ba sax yaram da nga joxe waaw waxal lu baax ñoo yem képp. amul def am na différence nag. yalwaan ak woyaan ñoo yem. Mhm. police da ngaa fànki dama ne. dama ne kon yow géej bu ñëw di la tàggal say maam. xam nga fii dëkk bi. Mhm. dafa bëri ay hypocrite mhm. ay naafeq daf fi bari. ba pare Sénégal nit ñi ñemewuñu wax dëgg. man damay wax dëgg. ragaluma kenn ragaluma dee nee naa la bis bu nekk ma jullee sama néew gaw ma ni sax dinaa am bàmmeel man. man kenn mënuma jënd kenn barke alxuraanu karim mille milliards faalewuma ko nit mënuma corrompre bu ñu nee benn nit lañu mënul corrompre Sénégal wala benn nit lañu mënul jënd booy woo nga ni Modou Gueye la te aw ma dara duma leen maa moom terrain bi waxuma laa kër. Mhm. ah moo duggee de moom wax dëgg yàlla. soo ko waxee mm-hmm. Sénégal na boo wax dëgg dañ naan dafa am alal moo tax muy waxee nii wala kii dafa beew ku yor moo bew ñi may wër ñëpp xam nañ ñoom ñëpp ñoo ma ëppale mais ñëpp ma respecté. Mm-hmm. parce que du ma wayaan kenn man du ma tagg nit. mës nga ma dégg si télé ba may dala wax ci tele ba léegi ma ne maa ngi sag di maa ngi sant diw moo ma solal. wala maa ngi tagg yow kenn dalaa mën a solal tout blanc neuf mois blanc. gis nga tubéy ji trois mois bi. Mhm. dama ciy am fukk chemise bi ma am ci fukk di ko sol at. Mhm. boo ma nee walaa kaana la fa du faalewuma parce que li ma def moo ma neex man. waaye montre bu seer ngay takk ak daal bu seer. déggoo ma ne man même bu may def saraxe nit duma ma saraxe ngir yàlla. Mhm. déedéet su may saraxe. saraxewu ma ngir yàlla boo ma nee sarax ma ngir yàlla duma la sarax. parce que yow doo sarax kenn ñu bëri la ñuy wax. non man bu may saraxee maay xool nit ki nga xam ni am na ngor toog ma fekk ko fa bokkal ko jox ko li ma koy jox romb ko. gor du ma xaar sax mu xàmmee ma ba may ñaanal. fii Sénégal dangay jox nit fii li ñuy def lépp bokkaaleel rey ay xar rey ay nag rey ay sarax ko ay nit. ba pare di xaar pour yokkutu yow. loo defal yàlla loolu est-ce que c'est normal la. est-ce que nit dina defal nit ci suuf rek dem yoonam lépp lu ñuy def dañu koy nekk ci télé yi di taggaate. d'accord. Euh, euh, woyaan bu dul jeex <laughs> comprendre nga fi ma la waxee. Mm. muy ci sëriñ yi muy ci ustaas yi. ñu mm. ah. ci bëri dama wax dëgg rek. ñoom seen bopp. ñoom seen bopp. sëriñ mooy genre yi non dama ne. sëriñ yi seen bopp. damay bàyyi damay wax mu leer. Mm-hmm. sëriñ yi seen bopp. ñu bon ñee leen yàqal. Mm-hmm. imaam yi seen bopp imaam yu bon yi ñoo yàqal imaam yu bon yi nit ñu baax nit ñu bon ñee leen yàqal xam nga nee naa fi lu yàlla bind nit a ci gën a bon man damay jaar ci digg bi amul lu may ragal bu may wax yàlla sàkk nit a ko ci gënal dama ni xadd karam naa bari aadama wax leen a kii yéen daa déet yow kay yaay diri sa fi mu ne <laughs> maanaam dama bàyyi laa jëf mhm. soo waxee côté bi da ngay wax côté bi waaw mais Modou est-ce que nit mën na di gisee tout le temps négatif lu lu est-ce que dina di yow yow. mais li ma wax li ma wax fan la négative non euh, gis nga part de vérité bi ñun. kii sëriñ la ak mënti doon. waaye am na sëriñ boo xam ni tant que faatuwul du am jàmm. waaw xaar ma moom xam na li ma wax. waaw xaar ma expliqué la. wax euh, loolu loolu Sénégal nit ñi yeewu. loolu Sénégal la pourquoi ñu war a dof ñun ñëpp rek topp. Modou loolu Sénégal la kenn ku nekk xam nga génn naa fi télé ni man aw ma mbokk. ngay mbokk kay dama ni. yaa ma yéene li ma ko yéene kooku mooy sama mbokk. déglu ma la. Mm-hmm. am nga ay mbokk kay. déedéet ah. tëgg nga waaw am nga mbokk ma ni. sama doom bi ma bokkal benn deret. Mm-hmm. du sama mbokk bu fekkee li ma ko yéene yéene wu ma ko. Mm-hmm. am nga problème ak moom kooku am na xaalis de. xool la de. na yor ay sa doom bi am na xaalis de. <laughs> dama ni bijou il faut que suñu mentalité yi avancé. ñu dem avancé. barke dama koy waat. Mhm. yàlla du mës a ñëw Sénégal defaral senegal sama oto bii ma gaare ci bunt bi mhm. yàlla mayuma ko ah. déedéet maa xëy suba di liggéey ba am oto bi ni yàlla jërëjëf ba nga ma mayee xel ba ma mën a liggéey ba am oto il faut ñuy déggee noonu mhm. moo tax si nit daan gis mais da def philosophe jërëjëf mooy jërëjëf maos laa fi gis dafa bëri guddi yoo xam ne du ma nelaw lépp lu may wax guddi la may ñëw. Mhm. man damay gëstu yàlla. Mhm. Sénégal dañoo ragal yàlla. Mhm. ba ñemewuñ ko xool ñemewuñ ko kii xaw ma parce que loolu du ñemee yàlla. gëstu yàlla yàlla moo ne xam leen ma bala ngeen maa jaamu. dëgg la de. doo te xool dugg ci sa suñu borom xool jéem ko jege. xam nga nee naa fi ragaluma yàlla ñëpp naan Modou li ngay def ma ne kuy mooy nan lay ragale yàlla. wallaay waxtu julli jot nga nekk sa auto climatiseur romb jàkka ji. Hmm. taximaan bi ñàkk tooy xeb génn gaar tak lal tapem di julli yaa nga dugg ci Mercedes am chauffeur. Hmm. si jaare nekkul sa oto. waxtu julli bi jot nga romb. dëgg kooku ñëw ragal na yàlla. déedéet Modou xam nga tey am na ñoo xamante ne fi ñu toog ñu ngi naan euh, Modou vérité vérité dëgg yi muy wax Modou nangam ak nangam. Modou nangam ak wax dëgg ñoo fi nekk. mais dañu dañu toog si plateau yi. ma expliqué la. dañ ko euh, euh, waxaar rek ma expliqué la. parce que tey euh, bi Modou di nekk ci ci ci ci ci fële Ngor Almadi yaa ngi dégg nekk ci bijouterie euh, euh, la personne de Modou nous intéressait peu. invité wu ñu woon Modou mais tey dañu dem ba. gis Modou jusqu'à présent intéressé non non non mais bien sûr parce que tey Modou dañ ko doon gis par exemple dañ ko doon gis à chaque fois ci émission. Mm-hmm. yaa ngi dégg. Mhm. ñu commencé xam personnalité du mhm. muy personnalité bii ngay dégager. Mhm. mu am ñoo xamante ne neex na leen. am ñoo xam ne dañuy dégg dañuy gis seen bopp ci li Modou di wax euh, euh, euh, tey ñun on est pas pour di joxe suñu ay opinion parce que confrontation conception bi du loolu. ñun boo jaaree gauche normalement dañu war a jaar droite amuñu droit di bokk ak yow yoon. c'est euh, loolooy conception émission bi. moo tax par A ou par ñun même bu ñu la xamee en dehors du lu ñuy wax ci plateau intéressé wu ñu fii en fait mais tey Modou dafa am benn image boo xamante ne moom la ñu xamee ci yow ñu di la gis à chaque fois Kakatar mhm. di gis ci émission bi mhm. euh, euh, wax dëgg yàlla muy am non non non tax nit ñi di gën a setaan en fait mhm. la moo Modou gisatuñ ko ci plateau bi. bon pour commencer. Hmm. kàkkatar ban liggéeyuma fa. TFM. Hmm. liggéeyuma fa kenn mësuma jox un franc. je ne suis pas un salarié. Hmm. Bouba sama xarit la. ñu nekk suñu magasin di waxtaan. ba benn jour mu naa ma yow li ngay waxee est-ce que ñeme nga ko télé genre yooyu affaire yooyu ba benn dimanche mu woo ma ñu toog ci benn appartement nii di waxtaan dañ may invité comme ni ñuy invité ñeneen ñi. man maay dem wax xam nga nit nag duñ la jox nga lépp nga jël lépp. Mhm. dem naa quelques émissions. Mhm. buuba du ñoo tàggoo léegi. Mhm. pour nit ñi bañ a xalaat am naa droit ñëw 2STV. am naa droit dem fu ma neex waxtaan. Ah suñ ma invité man réyuma ku ma invité damay dem ñu waxtaan. te waxuma pour luy neex nit ñi wan encore une fois man juguma pour wax ay bës ak yooyu. soxlawuma loolu. ci ñi njëkk a tekki ci àddina bi. ci Dakar waaw mais muy rendez-vous boo xamante ne gars yi dañu doon xaar la moo tax delluwaat demoo dematoo. fan rendez kakatar lu tax dematoo. mais dama ne la man moom kenn moom déggoo man la man ah. kenn du ma digal saa yu ma neexee lu may sant rek laay oh, def. pourquoi ñoom ñu ne ma par exemple kakatar ñu ne ma ñëwal centre ah, ma ko may dem du ma dem kenn mënul ma def loolu ci àddina. donc dama sant ñëw bii ma ñëw fii dama dafa ma neex rek suba mën nga ma woo man la ñëwuma de. du ma la woowaat sax. waaw jeex na très bien. donc da nga sentir dem bu ma ko sax bis ma sentir rek dem. ñu xëyaat nga def déy ya. embauché wuñ ma fayuñu ma invité laa comme ñëpp. mais dama war a bi ñeneen di dem. Mhm. jeex na takk buuba léegi ñëpp la amal jàmm mais pourquoi nit ñi mënuñu comprendre nit. wala Sénégal la ñaar ñuy ànd bu ñu njëkkee def nii rek. <laughs> non non loolu du problème. ñu ne ñu ngi koy nuyu de passage. non euh, euh, non ay copain lañ. man toog naa plateau buuba nu ñëpp toog. ma ne man su ma amee milliard dootuma ànd dootuma sax gis man dama dëggu mais fii Sénégal dañu bëri ñu naa feq bis ma amee dinaa tabax jàkk dinaa def lii di nax yàlla di dóor yàlla te meloo noonu. <laughs> soo milliards du tax ànd ak boobu. kàttan ah. tax doo ànd ak moom. mais dootuma nekk fii. fooy nekk. feneen lay dem. fan feneen. fu gën a nekk ay Maldives ay yooyu. mais xam xam nga ko fi may waxee. fu <laughs> yàlla a la belle vie. oh my God a <laughs> trop fii. oh my I love you. I love you so much. man dëgg rek. really I swear to so much. parce que amul ku may tagg. Eh, man tagguma kenn si Sénégal eh, nga nga vivre belle vie enjoy ñaanuma kenn gërëmuma kenn mm-hmm. ndeysaan képp ku ma defal dara merci laa lay wax suba bu ma la defalee nee ma merci xaaruma nit di ma tagg man mm. comprendre fi ma wax je suis peut xëy na dama dof. donc différent kay da nga différent rek. léegi man la moo tax ma lay defal ba pare bëgg yow nga toog ci télé bi di ma tagg. waaye am na ñoo xam ne seen baax moo leen may loolu. seen baax moo leen. ku la defal lu baax. su ko soo ko waxul bi ay na yow day yaay noonu bi gën a moo tax Sénégal wayaan bi bari am problème. nañu wayaat y' a trop de wayaan. nañu wayaat trop de jooy. am problème trop de lii trop de liggéeyal ma kii. defal ma lii loolu la. problème amu ci nit ki boo tàmmee wutal sa bopp ñaqal sa bopp. Mhm. doo am jotu di liggéey kenn ba loolee di ko ñee. Mhm. parce que yow da ngay gëm yàlla gëm yàlla moo jafe Sénégal de. Mhm. barke alxuraan gëm yàlla bëri na ñu koy wax fii. te fu ñu wéete bu ñu leen bokkalee enveloppe ñu changé. xam nga ne euh, euh, Big Taf. Euh, billaay wallaay taalaay xaw ma sañ Mara gis na ko gis ko waaye billaahi gis na ko ndax kii nu ko neex mel kii wax na ko léegi. Mhm. ndax lim fi wax lii rek nu ko neex mel <laughs> kii nu ko neex mel <laughs> dañuy delluwaat ci sëñ Mara balaa may ñëw ci moom <laughs> dañuy delluwaat ci sëñ Mara sëñ Mara dañuy dellusiwaat ci yow sànq nga tolloon waaw ci kër gi lañ tolloon ci diggante kër ak soxna amoo ci benn ba pare ngay xaste aw ma ci benn waaw man ba démb rek fase naa kenn waaye yow la ngay fasewaate waaye yow eh, kii Moodu la di lekkete waaye yow ñiy fasewaate ñi invité plateau pour lan la am na ko takk ñaar ci benn baaku sànn ñu ngi ciy ñëw dama ko ah, ah, affaire yi big taf tey émission sëñ Mara la big taf bul dugal ñu jàmm <laughs> xale xale yi ngay bul yàq émission ndax <laughs> xale yi waaw d'accord nañu Sénégal am nañu fase vingt fois plus de vingt fois hmm. man démb rek naa démb mm-hmm. waa takk fase ki pour lan la xanaa kooku daa akolaat ku bon da nga koy libéré déedéet hmm. dafa lan mooy ku bon da nga koy libéré yow tamit ki nga takkoon dafa bon nga libéré non ku baax la waaye ki baax nag nga koy libéré tamit biisu man ku baax a baax la jëf ba nga jëf moo tax ñu lay libéré jëf euh, baa bon danaa danaa danaa ñëw ci li muy wax. Mhm. ki ma takkoon ku baax la. waaye xam nga nu mu demee biisu. Mhm. fani koor koor gu mujj gi. Mm. damaa amoon jafe-jafe wu dënn. sama dënn bi daal damaa jekki rek muy metti naan tëf. woowuma kenn téléphone ci àdduna. ñi daan gis samay mbir jamono jooju daan dox xam nañ ne doxatul. sama jur bu góor amee mettitu biir. mënumaa sax wax ak moom téléphone sama soxna sii ma fase toog une semaine dégguma téléphone yaayam ne day génn def conférence de presse wax ak senegale yi ma ne ko sa yaay day def conférence de presse ma coupé appel bi dem ba Touba wuyoo ko samay kanami jur mu waxe waat ma ko comme noonu magam bu jigéen nag mooy wax waaye amul fitu wax te déggiwu ko ci. yaayam ki war a def conférence de presse bokk la ki nga xamante ne nee na doom da koo faj ba mu tane nga euh, takk ko une semaine fase ko wala du kooku. Ah, du ëpp na une semaine kooku la wala bu dee du. xale bu rafet bi xale bu xees bu rafet. bu mel ni per <laughs> man mii maa ko takk ëpp na une semaine nag nañuy wax dëgg. booba waxaguñ waxi koor. Mm. waaye ka nga xam ne sa goro la. déggoo ko une semaine xooloo wér gi yaramam. nga ne da génn def conférence de presse. billaahi la si dama lay fase. est-ce que am loolu lal takk gi yow da ko doon faj. dama koo faj ba mu wér. nga takk ko may ma takk ma gis ko ba ci biir bi ma koy faj maa koy bëgg. Oh. bi ma ko ne ko jàkk. Oh. ak nobel lu mel ni nobel. Eh, eh, ah. waay daw sàmba mu duggee mais il est franc. bi mu duggee hmm. ma faj ko ba mu wér. sama jur bu góor mi faj da nga koy bëgg. biisu mbëggeel du loolu ñun li ñun ñi ñuy gis rek la ñuy bëgg du ma bëgg ku ma gisul. Mm-hmm. yow mi faju si ma gis la bëgg la. Mm-hmm. dama lay takk. mais est que parfois yoon nag la ma masa dal ci sama àdduna waaye sëy ba yàggul ndax démb la sëy ba tas. <laughs> yàllaa ko dogal def na ñaata weer nga yaakaar. ah def defu sër bi yàggul nag de. Ah. yàggul de kenn laa des mi ngi mi ngi mi ah, waaw. <laughs> <laughs> d' accord ñu ngi. <laughs> léegi Modou Fassé bi du ngeen ko tuxal feneen. waaw non tuxal nañu bi du dem Père Gaston nee na Modou Fassé. <laughs> sa question yooyu yëpp. xam nga sénégalais bii su léegi dañu ñoom ñëpp a ngi message sa parce que maa ngi maa ngi ñaan ngeen jàppale ma Père Gaston Mbengue may ma doomam quoi. Ah. parce que dama ko bëgg. ngeen ngeen jàpp ci quoi. foofu na moo fa des kan moo ah, xëy na waaw xam na li may wax. waaw yow minim yow mënoo bàyyi game yi ngay bëgg game yi ngay bëgg mënoo ko bàyyi di toog di des sa bopp gamee am 57 ans 17 ans tige yi. dama la yóbbu 17 ans dooraa l'explorat lan la lan la mënoo bàyyi gamee yi nabu moo fa des. nabu la moo mënul mënul takk nabu man. la xale. buy jàng nekk yaa bi lan la xelam nekkee ci nabu. père Gaston de la yëgal nii moom fa ngay teeralee. kooku sama rakk te bëgguma benn problème. non ci père lay teeralee naboo fa des te dama la xam. doom day dama la xam da nga bëgg ñu minime ñooñu. Ah. da nga bëgg gamee léegi Gaston man moo ma neex moo tax ma bëgg. goroog moom ngay wër yow en personne dama bëgg goroog moom daf ma neex quoi seen dendandoo boobu seen lekk ba pare. <laughs> Euh, léegi euh, dañu am fu ñu point bu ñu nekkoon muy jeexal muy point euh, sa live bu jëm ci yow ak Jaba mu mu mu créé débat est-ce que doo ñëw ci cas Adama ba pare. mooy foofu la cas kon foofu la juddoo tu comprends cest à mu nekkoon lu lu ñëpp di ne pourquoi ngay woote sëriñ ba pare di live ak moom déjà fan la live yi lan moo ko wundu déjà. di live ak kan. Jaba Sira. du nit ku ma war a live-al. non lu tax. parce que ñu bëri dañ ne borom ñaari tur yi la. te amuñu ci lu leen leer. am nga ci lu leer yow. waaw leeralal. est-ce que fii la war a reere. ankay ah, ah, plateau confrontation la de. non non wuy ma sëñ bi xoolal YouTube bi xoolal nombre waa léegi déglu. sa émission dañ leen di monté ngeen seet leen neex ñu di ko daggal lii direct la. d'accord xoolal nombre de personnes yi lay seetaan. ñaata la man de gisuma sax ñaata ñooy seetaan. ci direct bi. 7000 nangam. ak lu teg. waaw léegi ñi wu wuñu réponse waxuma ñi ñii rek la di. non ak ñi nekk ci dugguma Facebook dugguma Instagram ak ñi jàkkaarloo télé dugguma ñi nga xamante ne ñi ngi jàkkaarloo télé télé parce que nga ci jamono joo xam ne leeral jot na parce que itam ku ci nekk mi ngi fii daal di wax maak yowee wax fii nag moom soit plateau bi day continuer wala mu arrêté ah bisu na arrêté da da ñuy leeralal nag <laughs> leeralal ñu nag euh, biisu euh, nga baal ma hmm. mas nga gis fii ci Sénégal ku ñëw fi ma lay baal ñëw non non dama ci ci ci affaire u jàmba laay wax ku ñu ne góor jigéen la papaam nekk imaam am na fii Sénégal mën na bañ a fës mën na am te du leer lan nga bëgg a wax foofu mas nga gis fii ci Sénégal kuñ ne góor jigéen la sa famille jàppal la say tànk di la ñeewante ci nattu bi la suñ borom bindee ak yàlla ni mu la def ci melokaan maanaam muy jàbb siraam yi du góor du góor jigéen lan la kon man nag du ma xaaw wi xaaral ma wax la tuuti waaw waaw ma mais mais nag quand même ngaa xam nga la bisu bisu xam nga sëñ Mara dañuy euh, waxtaan ci foo xamante ne mën ngaa setal sa der setal deram moom mhm. xam nga lu tax parce que ñun ñi mhm. xamaluñ ko dara wóoruñu mhm. ci TikTok lañ koy gis comme tout le monde mais yow am nañ occasion di saafanteeg yow ñenn ñoo xamante ne am nañ luñ la yaakaare yaakaar la te am ay principe yoo xamante ne accepté wuñu loolu seen esprit ñooñu ngay dimbali jàbba sira nee na daf may gént ñaari at li tax sénégalais waxuñu ci li tax mu may gént. ah daf lay gént ñaari at ñaari at li sabab direct bi laa la wax. Mhm. dafa am feebar bi ko suñ borom ni mu ko bindee. Mhm. moo tax xale bi am cardiaque première. kon kooku bégul ci boppam. ni ko yàlla bindee. Mhm. li ma lay wax nii hôpital bi mu juddoo. boo fa demee nga gis te maanaam yàlla na ma yàlla baal ci wax ji. man tëbu tëb rek dugg ci mbir. bu émission bi jeexee léegi wala bu la neexee ma génne ni mel wan la ko foofu nga xam ne suñ borom rek a mën a bind ba ma dugalee samam loxo ci biir ba xam ni ko suñ borom bindee damaa téye sama gémmiñ d'accord ko ko nii nii nii nii. waaye est-ce que waaw waaw kaay ma wax la dama lay dagg. que sutura waaw waaw ma xaar ma expliqué la. maak yow ñooy waxtaan nii ñoo dend. est-ce que doo ko wan nii. comme ça man man ma mën a. man man ma mën a non non ma man man mais man. xanaa nag man am naa fulla gu toll ni xanaa ndax wax dëgg yàlla bu la buñ la buñ la gëmut war nañoo gëm ne confrontation yi fukki at ci ren ah. Mhm. ah dara jaralu ma may may may may wax naka sudul noonu de. dëgg la. mais man naa ko gis pour mën a continuer waxtaan bi. Hmm. pour am lu ma leer. biisu di nga ko gis. waaw dama bëgg gis waaye li tax ma lay ñaan yaa ngi caméra caméra baa ngi. takk takk rek di tourné du ñëw ci yow. loolu moom xoolal <laughs> euh, euh, ba nga dégg dëgg. Uh-huh. non lii privé la mais man dama bëgg soulager wu sama esprit mën a xam man maa lay ñaan du ma xaar émission bi jeex léegi nga ma. waaw léegi laa la koy wan ñu mën a continuer. dinaa la ko wan léegi melokaan wi ko suñ borom bindee. ak ni mu ñëwee ci man ci ab nattu. Mm-hmm. non ci gént la ñëwee yaa ngi koy wax sànq. kii yàlla ku mu booleeg jëmu ji yàlla nattu na la. Mm-hmm. ndax koo xam ne ñëpp ngi naan lii nga. Mm-hmm. te ma dem ba xam ne du loolu. ma gis ni mu mel xam li mu doon. am na sëriñ su su ndaw bopp soo xam ne bu wàccoon si ñu ba tey dof nañ. man la yàlla eh, nattu bi maa ko attan. waaye. waaye ah ah eh, yëf yow waay. waaw <laughs> non non non kon ay ca. biisu. Ah. lii nag maa la ko ñaan. bu kenn xam li mu doon. ah ay d'accord. li ma la sumalee awra wi. waaw. gis nga awra wi. <laughs> gis nga fii. nde yàlla ba ma aw aw lii du awra xam nga lii ku xamul awra awra wi lii ak bokkut ak awra wi c'est gis nga lii te lii koo ko wanul du ko xam te nii la ko suñ borom bindee man nag damaa dugal sama loxo ci loo xam ne sama digganteeg yow la maa la ñaan bu ma sàmba yëg bu ma dem ba yëg opération am ci yoon bi eh biisu <laughs> bul laal ci loo xam ne dañoo yokk ak dañoo wàññi dama ne biisu nag biisu nag it biisu nag it del del del gëm dara tam jom <laughs> bismillah nga biisu li tax <laughs> waay confrontation tey laa koy bàyyi Big Taf xam nga dem je voulais laisser depuis longtemps ah oui mais j'en profite pour laisser attention non kenn gisu ah, biisu dama la bëgg a wax foofu nelaw la. bisu sa lees toog ñoom. dafa gis nga gis nga ni mu jommee nii man man damaa nelaw yi dama damaa nelaw de. te papaam mi ngi fi nekk imaam di jiite yaayam ma ne ko ni la suñ borom bindee te tiim la ta duma fen fenn suturaal ma. man donte xaw naa suturaam waaye na ma baal sama der nag moo ma gën a lu ma am. non sutura bi génnul am sutura non génnul génnul déjà lu génn parce que. te lii ay film yoo xam ne lu ma sabab la wala lu ma programme la. Cheikhul Khadim laa la génneel uh-huh. wuy ma wuy euh, ma sëñ Mara yaa ngi koy protéger moom. Ah, Mara ñi gën a maandu ci nit Mara wuy ma man Cheikhul Khadim laa lay génneel ni que. Uh-huh. lu leer moom bëgg a dégg dëgg. Uh-huh. Euh, sama borom kër bi ma gën a fonk sama àddina tamay dend ak moom. Mhm. sax duma ko ci wax lu ko leer. non mais que jàpp yow parce que confiance la en fait. ça c'est professionnel. voilà je voulais le faire non non non je voulais juste. assurer téléspectateurs yi nga am man assurer sama conscience en personne. Ah oui. parce que tamit bu ñu accepté ne que euh, euh, sawaay ji di euh, góor jigéen ñëpp ne par exemple aadamoo defal la direct ne la sëñ Mara ñi dañ la fonk nangam ak nangam góor jigéen bi ngay waxal nangam ak nangam moom amaana bu gisoon bu gisoon non non non bu gisoon peut-être moom li ko li nga gis. xëy na lu ci bari du ci du ma ci développé. Mhm. duñ ci wax. Mhm. mais tey. Mhm. yow naka nga nar a def pour dimbali kooku nga xamante ne nee nga. loolu laa wax déjà. da ngay jàpp ak lan ne. mi ngi jàkkaarloo yooyu di def live. di taxawal tamit sénégalais yi pour di leen xool dafa wax da nga koy yow yaa ngi koy dimbali fi mu toll nii pour gars yi mën a téye ci moom lan mooy objectif bi li bii wax dinaa wax ci sëñ Modou mi nga xam ne lim njëkk a wax première mooy man dëgg la nattu la te dimbali naa ko ndimbal gu njëkk gi nag mooy damaa dugal sama loxo ci lu sensible. ba tey foofu bi ma toogee rek bi nga ne ma looy def dama ne damay jàngale. ba tey maa ngi ci méthode boo xam ne. ñu ñu goddi. ak ñun xamut lu ñu doon. man dama pare pour wàcc ci terrain bi. pour delloo si leen ci société bi. d'accord jàbba Sierra mii nag ci la bokk. ndax li ma gis ak li ma ci yor. ku ko gis nga xam ne yàlla bind na nu ne. te yàlla bind na ku ne. man nag. li ma war rekk laa mën a gëm li ma wax rek laa mën a gëm kantaan nag may jëfandikoo sama xel naan ma lii yëg man soxluwuma ñëpp gëm waaye damaa bëgg ñi nga xam ne ay boroomi xel lañ xam ne suñ boroom bindul lii kese bind na leneen bu ma parewuloon nag pour jàppale ko jàpp naa ne combat bi duma ci dugg yamuma ci moom kese moom kese du sama cible de dama pare pour wàcc ñi ci baar yi di naan mais déjà bi nga am projet bu luur la boo xam ne. war nga ah, ko mën a ah. mais est-ce que yaa ngi ci doxub jéego pour mën ko mën ko jàppale parce que itam koo xam ne da nga ne gént na la ñaari at. ngeen def live mu wax la liy jàngoroom. Mhm. ci naka nga ko mën a jàppale nar a jàppale yow ci euh, naka. mun naa ko jàppale man. ci naka. mun naa fexe ba. li mu doon mu fésal ko ba àdduna yépp xam ko. ci tënk moom li mu doon. Mhm. mu fésal ko. te ñëpp xam ne suñ boroom a bindee nii. Mhm. ñu bàyyi ko ci melokaan woowu. nit ñi accepté ko. waaw parce que kii ku gis ni ko yàlla bindee. dañ ko war a bàyyi mu doxal. waxuma kuy dox waxuma waxuma ne gis nga euh, jàppalewu ma ko ci am am gu man boroom ñaari tur yi. Mhm. xaw ma leen xamuñu ma. Mhm. waaye nag damaa dem ba dugg ci loo xam ne bu ma ci amuloon ay preuve ba ta ba daw naa génn bu yàgg. parce que lu mel nii biisu lu muy gis di tëdd ba xë ba kii loolu am na doole. te moom mu ne la dara mais ah? man moom bu nga dégg dëgg. mais loolu lu yéeme la nga gis nii. Mm-hmm. ba pare moom nee na nee na du loolu. Mm-hmm. moom nee na du loolu. du borom ñaari turi moom. moom wax na leen du ma góor jigéen. wax na ma ko man kon kay en personnel. ba pare tegaluma ci loolu de dane ma. Mm-hmm. li ma dal nii moo tax ma am cardiaque. kooku kooku ni mel met néewu ko. médicalement ndax dimbali ndax yow. en personne ak ni nga xamee situation mhm. ndax orienté nga ko ci médecin yi parce que tey xam nga dafa am tendance bu xew. nit ki euh, mën naa dem dindi sexe am. Mhm. changer sexe bi mu bëgg. waaye opération du mais ñooñu dañ koy accepté day fekk ñu accepté ko te opération du am perfection bu mel noonu. xam naa li ma wax xam naa li ma gis accepté waaye euh, euh, <laughs> tey. biisu da ngaa da ngaa wax li nekk ci xel yi xam nga mooy lan. Hmm. parce que tey Adamo jàkkaarloo na ak yàlla kii dafa def opération way juróom bu jigéen mi hmm. xale bi am na ko jege ñu bëggoon mu def leneen yaayam na ko suturaalal yàlla suturaalal sa bopp hmm. yàlla mi la nii moo tax moo xam lu def la nii bul yokk bul wàññi xanaa mu leer ëpp na kooku man am na loo xam ne bu ma ko soxna def sama kanam duma def li gën a jafe bàyyi li gën a yomb ngir yàlla. ci yoon. ci yoon mais il faut ñu xelu bàyyi bu ma gisee ma jàkkaarloo nit rek ngeen di tëb di utiliser li tax mu wax ak moom da ngay teey ba xam yaaram li nekk ci suuf. fi ne ñu bari ah. est-ce que yaa ngi avancé ci jàppale gi koy jàppale. bu baax puisque lu ma ne ko def ko mu def ko koy gént ñaari at hmm. bu nee la wattu jul nga wattu ji te sénégalais am na sëriñ su génn nee nañ man damaa takk man bu ma demee man. man jigéen nag nim neexee may takk góor jigéen. ah nangu nga ne ko góor jigéen. déedéet exemple laa la wax bu doon góor jigéen. góor jigéen la wax. Hmm. xam nga dañ ne sëriñ bi dafa takk góor jigéen. Hmm. grave. te loolu nit wax ko nga am famille ñu koy seetaan kenn waxu ci ñëpp di la ñëpp nit ñu ay góor yu baax jur la ñu bëgg na yow. Hmm. danga takk góor jigéen. nit sol daraam woo ay ay ay ñu yor ay caméra ay waxkat luñ ay waxkati dëgg. ñu ñëw ñu ne diw sàngam mii dafa mariage ak diw bu ngi te li garaaw mooy ki doon wax loolu dama ko wan sama visa ba waroon a tukki nga xool xoolal fi ñuy inspiré woo billaahi la si looloo fomm samaw yoon te kee fam nekk ak te maa ngi waroon a dem parian ah. nga xam ne ñoom dañuy dox ci sa ah, maay yow ku la tegal kaamil nga wàcc ci alxuraan ni que amul benn combine boo def ak kooku billaahi la si laa ilaha illa huwa jàbb seeraa mii xam nga suturaaluma ko ndax war naa ko war naa ko sa mbir jël ko ci suuf bu fekkente ne am naa moom benn lien sama oto laa yor bu ma génnee yàlla naa def soog. yàlla bu ma yàlla baala. comme dee am na kilifa gu am baatin di ñu seetaan wala réew mi am na dara boroom xam-xam. bu dee mas naa laal ci kooka. so naa faatu léegi. billaahi lisi du ma fenn. moom moo la contacté direct. moom moo ma contacté. Mhm. moo ñaari fan la nekk ci réseau yi di wax. gis naa diw ba ma géntee kii ndake mi ngi senegal sama raw la. pencu mi mu ko indi nag moo tax ba may wax ak moom ma ne ñii. loo ko digal ndax booba xaw ma woon lu mu doon loo ko digal. li ma ko digal xam nga mooy lan. Mm. toogal te daal tabul tontu. ndax suñ borom nii mu la bindee yow sax waroo feeñ buñ ko tegoon ci yoon. waaw kon loo conseillé nag. li ma ko conseillé mooy toogal te déglu ma ndax dossier bi dafa xaw a dafa xaw a doy waar ci biisu man man affaire man lii ku ma ci jàppale rek laa bëgg puisque lii daf maa ëpp doole. Mm. mais est-ce que na nga jàppale ko est-ce que nekkul feerul ci li mu doon moom nga yaakaar. bu bu bu nangu ma jàppale ah. kooku kooku moom moom moom lan la la laaj lan la la diis. lan la la diis moom lan la bëgg en personne. lan la bëgg en quelque sorte moom bëgg xam nga mooy lan. waaw. ma jàppale ko. te yàlla rekk tax ci naka. wax ko première mooy li mu doon. parce que lu naqare. yow doo médecin ah, non non du question xam nga am na loo xam ne du affaire médecin. yow ci lan nga basé wu man ci li ma basé wu mooy lan. Mm-hmm. xam naa ne ko yàlla binde li ko sénégalais di wax doonut loolu jàppale gu njëkk gi mooy il faut nit yi comprendre ne kii du góor jigéen ba ñëw ci société bi ñuy wax waxi médecin ay médecin ay ay. waaw parce que parce que tey aadamoo daf ñu leeral si bopp nit yi. jàppale ko kii euh, euh, dafa def opération. Euh, bisu changé sexe muy Adamo woo muy Alpha woo muy Serigne Fall. Hmm. gis nga nit ki lépp looy wax dafa nekk wax yoo xam ne wax ju wóor la war a doon. man lii tëbuma tëb dugg ci dama ne la mënumaa saasef sexe di am jafe-jafe ween ci yoon bu dee mbon rek ma neex exemple. mais wax wax yomb nag. munu munu ma mu ñaari awra xam nga non non munu ma am ñaari awra. dagg benn bi. Ah, dagg bi gën a sensible. Mhm. téefa bi ci des. Mhm. exemple laa lay wax. Mhm. te yéen a bëgg ak a bari ci dëkk non ah? aussi. te wuti wu ma dafa naturel doon jigéen. dafa waaye léegi mais moom ci ay mbébétam dafa bokk ci ñëw Sénégal. gën a yomb dëgg la. ay mbébétam. Hmm. waxuma ci ak moom nag loolu. mais dinaa ko indi Sénégal. yow waaw. xanaa loolu ci kanam la fekk lépp leer. du ci kanam de maman bii la ku moom réew dafa mës a exister. Ah, dafa am sax non Modou wuy ma dafa am. am na am na ah, ñoo am ñaari sexe am na ñoo xam ne bii matul am na ñoo xam ne du ñu góor jigéen mais jëfinu góor jigéen la ñuy def. Ah, parce que hormones yi jigéen ñi dañu am ay hormones. Mhm. waaw mais man man sama wàllu bopp man ku ma xool. Mhm. def commentaire ni moo duggee góor jigéen la. Mhm. waaw mais loolu day am. <laughs> man maa ngi nii dama sikkim damay sax sikkim ba xaw a ah, man ku ma xool xam ne man mii boo may xool di ma xool yi bëtu góor jigéen dama lay yërëm sax man damay ree pourtant nit a ngi def commentaire ni Modou Gueye góor jigéen la ah, am na ko def commentaire ni moo Gueye bi ma ko xamee ba léegi dañ koy dimbali allahu akbar mais nit boo nekkee sa ginnaaw tablier mais wu la neex nga saaga ku la neex fii kan lañ fi saagawul ah, kan lañ fi waxalul lu bon mais amoo preuve dëgg la góor jigéen actuellement nii. Mhm. fi ak dix ans vingt ans. Mhm. ñàkk bañ a nekk góor jigéen yaa ëpp problème ñi nekk góor jigéen. ndax lan man Moodu Gueye maa la ko. ndax lan yow Moodu. Mhm. parce que dañu am doole. yor alalu àddina bi. dinañ dem ba ci àddina bi fii ku bëgg a nekk dara. di nga nekk franc-maçon wala nga nekk góor jigéen wala nga nekk illuminati sinon lépp lu ñuy jiita doo ci teg sa loxo yow. mais bu fekkee da nga nekk ci dëkk bu toll ni Sénégal ñëpp ne foog ñu criminaliser ko. <laughs> ma na Sénégal fii loolu. ay góor jigéen waaw dañu waxante amul dëkk bu mu amul am na ci dëkk naar yi. ci naar la ëppee yow la nga xalaat ci ñoom. ci naar yi la ëppee. moom mi man. lu nit def ànd naa ci. parce que Idrissa Gana Gueye euh, euh, dund na ci loo xamante ne euh, ñu bon. match contre Montpellier. voilà gis nañ beneen joueur encore. Hmm. mu sol ko tey jii xam nga mën na nit mën na bañ a toll ci ora boo xamante ne obligation la ci moom mu sol ko pour mën a évoluer comme ni nga koy waxee léegi. tey est-ce que par exemple benn Bamba Dieng dañ ko war a pardonner accepter li nga xamante ne moom la gànn gay def. xam nga nit ñi mën nañu. ay nit mën nañu bari te duñu nuroo man tey loolu gànn ngay def man soo ma xoolee xam ne mhm. noonu laa mel. Mhm. Mhm. xam nga niñ may nuroo léegi moom chaque jour ñu ne ma loo bokk gànn gi. mais maa ngi doog am réponse mooy conviction gëm-gëm. gànn gi dafa nekk ak ay moroomam yuy fayee ko ay deux milliards par weer. nangoo sol dara. mu waroon am complexe. ni gars yi ñoo ma ëpp alal ñoo ma gën a siiw ñoo ma gën a di bu ñu solee naa sol defu ko. mu am ay principe mu am jabaru tubaab bu rafet. Mm-hmm. man gis naa Europe laa nekk naa fa presque vingt ans yàgg naa Europe. Mm-hmm. gis naa fa ay jullit yoo xam ne topp nañ tubaab ba yàq seen life ndax complexe. Mm-hmm. complexe la nit warul def. gis nga nag nit sànq yaa ngi tàllal sa loxo. c'est un complexe moomoo sa bopp. dañ lay def loolu. kayitu immigré ak réfugié yi bari na fi de. dama eh, ne kayiti réfugié yi li mu def bari na ci dëkk yu de. c'est tellement noble yàlla na continuer noonu. Mhm. parce que am na risque. ndox ci mbedd bi ñu song la. am na risque sa contrat yàqu. kon xam nga ni xoolu xaalis. Mhm. yàlla la jël teg ko. Mhm. am conviction. man bu dee ñëwee naa dee mais yàlla gëm-gëm bi ma gëm yàlla. kenn du ko dindi. mais qu'est-ce que vous pensez que ci dëkk bi ñu toll ñuy wax foog ñu criminaliser ko ba léegi loolu antogul. kañ leen. foog ñu criminaliser lu jëm ci wàllu homosexualité ba léegi antogul. ba léegi antogul. waaw mhm. xam nga man j'ai un problème ak euh, sénégalais yi parce que dañ naan loo wax ñu ne yàllaa ko dogal yàlla lii. Mhm. pourtant yàlla nee na ku sàcc dagg leen loxoom bi xam nga nee naa fi yàlla amul yërmande ñëpp naan lu Modou Gueye di wax. Mhm. ci kaw suuf si ci àddina bi ñu nekk. wan yàlla yërëm. ku fi yàlla yàlla yërëm. xanaa ñun jaam yàlla yi. yàlla daf la yërëm. waaw yàlla ñu nekk en classe d' di examen examen yi résultat yi génnagul nga bëgg a ñu ñu repêché moo duggee sabab dafa am ci lépp. non dama ni da nga laaj dafa laaj déggin. ma ne. yow ci dama nit ñi boo leen bëggee dimbali da wàcc ba tolloog ñoom ci niveau bi ñu nekk nga jàngale waaw pourtant am na parce que yow jàngaloo kenn yaa ngi dofloo nit ñi su ma ŋaangee rek am na koo xam ni balaa may na li ma wax parce que dafa am dafa use xelam waaw ñun ay dof lañ moom su ma nee yàlla amul yërmaane ci kaw suuf fii mhm. pourquoi yàlla du ñu yërëm daf ñu fi wàcc pour jàmm yàlla newu ñi ñu damaa xañ seen morom xel jox la xel mhm. ni la defal lu ma neex yàlla musul forcer kenn defal lu la neex loo bëgg nag yàlla mayewul dara te yéen a koy wax boroom xam-xam yi yàlla mayewul ah contrat CD yi amul yàlla dalay dénk xel mi da koy nangu ruu gi da koy nangu sa yaay da koy nangu sa baay da koy nangu lu fi yàlla kan la fi yàlla may. Mhm. loo am taabal jii sax boo ko jëndee dina leen la nga ko jëndee foo ko jëlee ak foo ko dugal ma ubbi sama baar di jaay sàngara dugal samay caga ci biir def lépp ni yàlla la tëdd jabaru jàmbur. Mhm. mu ëmb ñu ngénte baas ñu ne yàllaa ko dogal. ah yooyu kay yàlla dogal ko doom daal. non yi ngay wax ni yu ci ëpp yàlla dogal ko non non loolu am chaque jour nga dégg ko fi. bis bu nekk nit def fi lu bon ne parce que bis bu ne ñu tooñ da nga koy ñëw. lan nga wax mhm. comme question. maanaam ci période bii ñu toll ñëpp naan góor jigéen dañ ko war a criminaliser. fii ci ah, réew mi waaw te léegi antoogul. waaw ban xalaat nga ci am. pour ñu criminaliser ko. waaw. man de. Mhm. du ma laal góor jigéen. Mhm. du ma ko jege. te soo ma waxee ni góor jigéen la nekkal président de la république nekkal buur. soo ma joxee sa loxo du la ko jox. mais lan moo tax ba léegi ko criminaliser. mais ñoom la ñoom ñi gàdd. te fii la ñun sénégalais yi toog ni yàlla mooy fal président. Mhm. ma ni yàlla falul président. Mhm. déedéet. Blaise Compaoré yàllaa ko fal. Poutine yàllaa ko fal. Hitler yàllaa ko fal. gisuñu ku rey ay nit ñëw jël pouvoir bi toog nekk président yàllaa ko fal. wala ñun ñoo war a nekk ay nit am xel lépp lu nit mën a defal boppam yàlla du ko defal ay yàlla jox ñu xel ñu war a xool ci ñun ñi kan moo mën a moo ñu mën a jiite ñu ne yàlla la ñuy xaar mu ñëw wax ko ah. ñëw bi ma ñëw ba fii yàlla moom fi indi yàlla kay bu may indi xanaa bu may yóbbu dafa may yóbbu dama war a dem ci jàkka ja. Mm-hmm. am déet dafa laaj déggin ñu ñemee xalaat Afrique boo gisee du ñu dem du ñu xalaat. Modou say xalaat kese. léegi lan moo tax ñuy topp tubaab bi. pourquoi lan moo tax tubaab di gis nga bu du woon tubaab bi. Mhm. ñun Afrique balaa ñun africain ñu ñëpp dee nañu. fii sëriñ bu fi am dara boo feebaree ci tubaab bi ngay dem faju dëgg loolu dëgg. Mhm. ku fi cancer fi ngay toog Sénégal boo amee cent millions sa poos dangay dem France faju ji. kii lay faj xëy na sa gëmul yàlla mais yàlla yoonam nekkul ci doomu aadama yi ci ku ko gëm ak ku ko gëmul liggéey la wax yonent bi danaan la liggéey Serigne Touba ni liggéey alaaj maa ni liggéey ak jaamu yàlla pourquoi ñun ñu jël yàlla def ko ouvrier ñun ñu nekk patron lu am rek ñu ne yàllaa ko war a def tubaab yi raw ñu di jé yi ba amu ne laa fi ñu raw man gis naa ñoo xam ne bu ñu suñu yëkkatee dara bu daanoo sax yàlla la ñuy saaga ku weddi doo na la wool waa Italie waa itali ñu ngi may dégg mais yàlla dafa jugé gul kenn ci kaw suuf il est patient ku ni yàlla yërëm na la rek da xamul kuy yàlla. ku xam kii ndeysaan kii ku ko xool ci kok bi. onze bébé deewuñu fi ki dem ngay réer ay liir yu amagul bàkkaar yàlla di leen xool ni ñuy lakk ba jeex. yàlla bu yërëmul lii dina ma yërëm man Modou Gueye. genre gi boo leen gisee. ñoo mhm. dàq jooy. gaana gaaw a bëgg. ñoo gën a sensible gën a sensible ci muy def nii. kook la bu xamante ne daf ci dugg. mu euh, jeex tàkk di ci imposer ba sa boppam. bii ma wax la benn affaire dis-moi qui tu fréquentes te dirai qui tu es. ma wax la benn affaire yaa ngi dégg. Mhm. kuy ànd ak El Hadj Diouf est que war ngaa gëmee li nga kii gëmee. non non non El Hadj c'est une très bonne personne. Mhm. xaritam la. ma la yaa ku baax. waaw dama bu la apparence nag xam naa sax xam naa ni li muy bon bon lu nii bonul de day bon bon lu nii ci plateau bi di bon bon lu bon li ma wax du bon bon lu lii dama bon waaw Modou xaaral ma expliqué la lii damay bon bon sévère bi ci sa bopp bay juger sa diggante ak sa borom te moom mii rabbi sama waati muy borom yërmande bi mm. yow nga bëgg atte sa bopp te deewagoo Modou yow bonoo mm. ndànk lu ma atte sama bopp bul wut dara nag ku bëgg a dëkk Maldives bul jënd un mètre carré fii ci réew nan laa atte sama bopp <laughs> mi ni Modou Gueye sax ndax dinaa am bàmmeel mm-hmm. parce que xaw ma fu may deewee. Mhm. du dëgg. dëgg la bis bu nekk maa ngi yaakaar ni ci kanam tuuti ma faatu. parce que dama ko teg dii comprendre fi may waxee. boo def nga bi day peer. wérul day fàtte. <laughs> d'accord sérieux. parce que jinne bi mu kii jinne bi euh, kii di wax parce ni ngay waxee. c'est-à-dire ma wax la benn affaire. fii du ko akatar de. fii amul thème. lu ñu neex la ñuy wax. Sénégal j'accepte. Bijou da nga ma. dama gis yow dëggu moo tax ma ñëw da nga ñeme wax. pour man sax di nga gënoon daan di waroon nga gën a wex nii. Hmm. je m'attendais à des questions plus plus plus graves. ça de émission bi kenn ku ci nekk ak sa plateau bi kenn ku ci nekk ak façon bi nga indi. man damay accepter samay défauts. chaque émission marche à l'image des invités en fait. accepte ba tey maa ngi wax xel lañu am tey rek maa ni di ko may man xaw ma ñaata nit laa lekk. nga ñaata nit laa lekk bi ma juddoo léegi. dëmm nga waaw dëmm ok man de tey maa ñëw ak kër ga. la <laughs> doo ma fi bàyyi. Ah. du baale ma de léegi lan nga fan nga teg nga dem nga. ok yéen ñi jàng alxuraan. mooy <laughs> lu tax ñu recommencé nii man la la pourquoi confrontation mënuñ def émission ne day normal rek. pourtant dafa ñu ne waxtaan nañ waxtaan bu ñëpp dem. <laughs> mais dafa laaj dafa laaj dégg lu tax ñu mënuñoo def heure normale. mais moo tax mu ne yow tey bu doon tubaab dafa ma naan moom moo explique toi am na soog a Moodu waaw Moodu suba. Mm-hmm. Moodu explique toi suba. Mm-hmm. internet bi yëpp dañuy dagg li ma. ciy teg nga nag yaa ko wax Moodu dëmm la point. <laughs> waaw léegi la moo tax nga dëmm nga <laughs> léegi la moo tax nga dëmm nga. am na foo ko dëmm la. <laughs> Uh-huh. yow dëmm nga ah, dëmm nga kii dëmm la ah, ah, man dama ko nangu te nanguwu leen ko. waaw léegi waaw explique toi waaw léegi. fii nañ dëkk ci réew mi. kan moo ñu gën dugub soow kase la xam. ah dëgg la de. kan moo ñu gën. kan moo ñu gën. ki tax ñu bind ñu. kenn gënuñu. yonent bi gënuñu. ma ne déggoo li ma la wax de. yàlla nee na yonent bi mooy gën gi mindeef. waaw léegi waaye yàlla nee na. lépp lu ma sàkk. doomu aadamaa ma ci gënal. waaw waaw léegi may ma yeggali wal insi sàkkuma nit ak jinne lu dul ñu jaamu ma waaw est ñu ngi jaamu yàlla ñun waaw gi ma la wax moom laa nekkee foofu laa jëm waaw yow dëmm nga bul xam na keneen dëmm la bul tudd ma ni man Sénégal man rek maa fiy dëmm mais wax naa leen wax li tax ma nekk dëmm wax ñu ko xam nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam fa toog ak njabootam yéen a ko wax man jànguma mhm. ñi jàng ñoo ko nettali daan ni ci njaboot gi dafa am ku romb benn ci doom njabootam mhm. ni diw ma lan yonent bi yootu ko xoj ni ko tiflil mu tifli dëgg la muy deret hmm. loolu ci jëw lañ ci wax jëw mu baax ak mu bon lépp jëw su ko deful woon noonu xam nga daana ko wan na waaw lu mu lekk yàpp lu mu naan deret deretu nit. Hmm. deretu nit ak yàpp du benn mais Mourou pourquoi chaque jour ñu wax naka su dul noonu. laisse-moi finir képp ku fi nekkul ñu tudd sa tur jëw la. non laisse-moi finir. nga muy feeñ ak mu ñàkk na. waaw léegi man. Mhm. man moo duggee. ñaata nit laa lekk. ñaata nit laa jëw. waaw pourquoi tu bokk na ci li tax émission bi la. Mhm. waaw waaw jëw kenn. nit ki jàkkaarloo nga xam ne ñu ngi wax parce que la ñu la dàq ñu ñu fi nekk. non mais c'est-à-dire parce que Sénégalais il faut que ngay wax fu mu mettee ñu ubbi seen bët fii depuis deux cent cinquante ans ñi ngi toog fii avancé wuñu mhm. en Afrique on n'avance pas mhm, mhm. ba tey rek maa ngi wax naan Sénégal maa ngi wax sama kaay ñuy waxtaan fi mu ne damay wax nii ci ay waxu yàlla yi mais gis nga côté développement luy doxal àddina xoolawee eh. parfois je me pose des questions maintenant nañ dugg sax ci leneen yenn saa yi dama nga waxal ci dem bi ba pare est-ce que Sénégal am na ay ingénieur xam nga ingénieur mooy doxal àddina mooy boroom xam-xam yi savant yi. Mhm. mais est-ce que ñun am nañ ko. fii ñu bëri dañuy wàcc kaamil cinquante fois amuñu xam-xam. lu ñu bind nga ko parcariser ko. kër ko di ko nettali. loo def yow. Hmm. tu n'as rien fait. ah fii kat gaa yaa ngi fi waxtaanee sëñ Tuubaa jàng kaamil bi moom mat du seen œuvre di. jàng kaamil ba di ko tari. li mhm. ci nax ay nit. dëgg la. Hmm. ba fi yàlla di waxee lii. Hmm. yeneen bi def lii. Eh, ay waxal de. dëgguma. ma ne yéen lay waxal. déedéet dama ni moom koy xanaa day moom koy sëñ Modou moom xam-xamam moom ñëpp a ci bokk. non dama ni. ndax moom. Mm-hmm. Mm-hmm. dama ni. Mm-hmm. li may wax. man nag su fekkee damay wax ci wax ak téeméeri nit. bu ko juróom-ñeent fukki yi bàyyi wax ci parce que amul solo kon. waaye kii xanaa mooy kii. kooku noonu. parce que dama nekk foo xam ni du ñu utiliser seen xel. borom wax yi egg daf yoo ko moom. 1 pour cent bi nga ah, xam 88 628 nañu jël ci biisu biisu biisu biisu biisu biisu sa ligne bi. 88 628 14 13 bi lëndëm na de. ligne bi dafa lëndëm. allo oui. lan lëndëm. dafa lëndëm lool sa ligne bi. allo bi. ñu déglu salaamaaleykum. salaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam. Euh, sëñ bi noo tudd ak foo ñëwee bu fekkee mën nga yëkkati baat bi tuuti te dégloo ñu ak sa téléphone. waaw da may baal nga ma ma ma leb tur bi. waa est-ce que mën nga fay sa télé bi s'il vous plaît ñu déggante bi gën a leer. waaw fay naa ko carrément de. waaw ci bisimilah. waaw émission bi maa ngi koy déglu. Mhm. allo. waaw ñu ngi lay déglu waaw kii toog noonu te ni Modou Gueye la tudd. Mhm. wax ji dama bëggoon mu man bëgg naa ci jariñu mais li ngeen di wax day wax da ngeen di wax ci lii ba mu yàgg ngeen wax ci lële te dama yaakaar ni pour mu tegu carrément ci yoon il faut ñu xam thème bi lan la wax d'abord li ma bëgg a xam mooy moom comme professeur la ndax dafa am soxna dafa bàyyi soxna ak njaboot kër kër am na jabar parce que damay dégg ci dëkk bi ñu naan Modou Fassé eh, ñu bari ndax loolu ñu koy laaj ndax dëgg la wala du dëgg beneen bi ci topp mooy lu tax faseem bari ndax mi ngi wax ci yàlla rek man fi ma ko doon xaar tey mu wax ci mooy lu tax mënut a yor jabar ci kër loolu moo ñu ëppaloon ñun ñu jéem a jàng ci moom pour yor jabar ndax jàpp naa ni wax ci yàlla te doo génne aaye moom day yàq wax waaye lu tax mënut a yor jabar ci kër lu tax fase bi bari lu tax mu gaaw a énervé yooyu daal lañ ko doon xaar mais yàlla ji moom mu bàyyil ñu yàlla ji ndax yàlla ji moom wax dëgg yàlla xamu ci lu bari xam naa ni moom loolu moom am naa ci lu ma leer naa ñu ne xamu ci lu baree baree bari ndax bu ci bu ci xamoon lu baree bari mhm. dana xam ne jigéen dañ ko war a muñal yaa ngi may dégg waaw ñu ngi lay dégg yaa ngi may dégg ñu ngi lay dégg bu baax ma ne dana xam ne kon jigéen dañ koo war a muñal te moom du muñal jigéen. Hmm. loo wax mu ni. laaj ko rapidement ndax moom soxnaam bu ko boole. jaawale waxal ak moom direct. sëriñ bi. nga baal ba waaye dama ni. waaw wax dafa leer dama ni. waaw. sama soxna bés bu ma jaawale góor. waaw. duma ko baal dama koy fase. waaw ma laaj ndax yow bu la yow bu dee yow. xëy na mën nga ko hmm. muñ baal ko mais man mënuma ko. est-ce que loolu yàlla dama ciy bindal bàkkaar nga ni bu dee sama sox nga ni bu dee sama soxna. dama ni man sama soxla bu sama soxna. waaw su ma jaawalee góor dama koy fase léegi dama lay laaj ndax loolu dama ci am bàkkaar wala du ma ci am bàkkaar. non man aw xam-xam man yow la laaj laaj bi yaa ko moom. ah. lu toog mu ñëw muñal jigéen. ah mais muñal jigéen ba ci mu lay mooy. wala nga foog nga ànd mu fóot góor di ko fóot. wala di ko teg loxo man waxuma loolu. Ah, ñun ban Sénégal lañu nekk. waaw fi ñu toll nii nag yow yor nga waaye mooy yenn yi nag ku ko mën a muñal sa jigéen sa jab sa soxna rek mooy dangaa yomb wala sa dépense matul. waaw loolu moom moo bi dafa xaw a moo bi dafa xaw a mën a fase di ma bëgg laaj Bijou may ma ma laaj ko moo hmm. Modou ndax yow actuellement yor nga jabar mu ne ndax actuellement yor nga jabar yow actuellement déedéet yoruma jabar fase na mais mu ma neexee takk suba non est-ce que non non non kon d'accorduma bu fekkoon da nga yor jabar bu fekkoon da nga yor jabar karaajo alxuraan bu mat fukki jigéen ñi ngi taxaw pour ma takk leen suba suba non non non loolu d'accorduma bu fekkoon ni da yor jabar di wax ci dama lay mën a Sénégal mooy lii waaye waat loolu la bëgg man ma mel waaw loolu mënta du ma ko mel sëñ bi maa yow mënuñu nuroo yàkkan mu ne nga ni yàkkan mënu leen nuroo maa yow mënuñu nuroo bu fekkee yow mën ngaa jéggal sa soxna bu la jaawalee góor man mënuma ko. man man maa am na kilifa sëriñ yu jàng alxuraan de ñu ngi ñi ngi wàcc yeewu jigéen boo xam ne la ñu ko sant waxuma sax mooy dañ koo sant defu rek ñu wàcc ko. waaw loolu. loolu loolu man fase naa damaa toog ak moom. yow conférence de presse woon ma fase ko. mais sëriñ bi yow yow yow ban lan lan nga d'accordul ci Moodu lan. li ma d'accordul ci Moodu daf li muy wax te d'accorduma ci dafa bari. mais loolu sa conviction la. maanaam li tax d'accorduma ci. Mhm. allo. waaw ñoo ngi lay déglu. dafa mel ni man li tax d'accorduma ci li moo dégg bi dégg bi dégg bi leerul man ni li tax d'accorduma ci li moo wax allo allo. waaw. ñu ngi lay man ni li ci li moo tuy wax. Mhm. mooy. Eh, dafa cohérent wut ak man parce que ni mu jikkowoo bu nu jikkowoo dafa war a mën a muñal jigéen. Mhm. te nee na du muñal jigéen moom. déet waxuma lool de sëñ bi dee leen dégg waxu doomu aadama yi. lan nga wax dégg bi ma dalee wax ba léegi ma ne mënuma muñal jigéen. waaw. wax dafa mu dafa am importance. baat kàddu waaw. waaw bi nga bi nga dal émission bi mu commencé ba léegi. dégg nga ma fu ma nee man du muñal jigéen. déedéet. waaw mais jabar boo ko. ñeenti ko fase waaw ma ne waaw léegi. léegi. waaw. man musuma mooy sama soxna. ñaata nit ñoo fi am jabar loolu yaa xam yaa ngi yàlla. ah. ma ne loolu yow yaa ko xam. Ah, yaa ngi yàlla Sénégal boo fasee ñu ne dafa mën a fase mënul téye. mais du ñu uh-huh. am jabar ñaar fukki at mooy na ko fanweeri yoon wala téeméeri yoon. kooku dañ naan uh-huh. dafa baax dafa muñ dafa mën a téye mais njaalookat la. ah Modou daal man wax dëgg nga baal ma nga baal ma waaye man euh, ku la sopp laa mais de temps en temps say wax daf may réeral. mais da ngay jël naa la jox sama numéro ñu waxtaan. waaw say wax daf may réeral. te bu ma sañoon li ngay wax ma di ci jariñu ndax de temps en temps danga ma convaincre. Fallou foog naa mi ngi ci ligne bi de Fallou foog naa mi ngi ñuy setaana ah. kaw kan. xam nga sëñ bi. way allo. waaw maa ngi déglu dafa mel ni coupé na de. ayca réseau bi la. Euh, merci beaucoup jërëjëf sëñ bi xam naa dañoo déggantewul waaye du émission boo xamante ne pour thème la. Euh, confrontation c'est normal ñuy cuuc cap parce que dañuy cuuc cap dañuy ah, invité ki pour parler du tout et de rien. Euh, gis nga àddina bi. du lu ñuy fixé xam naa Moodu nag moo thématique. Mhm. àddina bi ñi ko tabax ñëpp. Mhm. dañ leen a rey. dëgg la. ñi defar àddina. Mhm. dañ leen a rey parce que ba ñu njëkkee wax seen xalaat nit ñi dañ ñu kii dafa dof yeneen yonent bi salaas moom mu njëkkee ñëw di wax newuñu daf ci wérul waaw ah. Sëriñ tubaa li mu def am na ñoo xam ne koo ko wax mën na la loolu mënul nekk mhm. Omar Foutiyou Tall li mu daj keneen na kek keneen ak keneen mën a nekk kay ñooñ duñ ñun noo dama ni dama ni les ñi gën a am les un savant mhm. xam nga la mooy savant xam nga la mooy nit ku am xam-xam nit ku am xam-xam mooy koo xam ne dafa créer dara mhm. def loo xam ne il la le premier à le faire mm. yow jàpp ne ci ñooñu nga bokk man man ba léegi déggoo man. non man maa posé question. façon bi muy def nii. yow man la man maa dàq mooy Sénégal man maa dàq gën a bon gën a naa yóbbu foofu sama bopp mais dama accepté dama ubbi sama bët xàmmee kuy naxe ak ku def ku dul naxe. comprendre fi ma waxee. mais est-ce que sëñ Modou yow euh, pare nga pour def ay livre pour puisque sa xam-xam bii nga yor comme waa ji li mu wax nee na moom. livre am dina naqaree naqaree livre de la fan mais. du la comprendre. c'est que maanaam loolu bëri na. Euh, man li ngay wax am na tuut lu ma ciy xam. man xam naa tuuti li ngay wax. non Modou waa Régis sax ñu koy émission yi waa Régis sax ci jarul def ko ci lu mel ni lii wala koo xam ne fa nga ñuy orienté. pour li nga bëgg expliquer dëgg dëgg mu leer ci suñu bopp. kii livre am du neexal parce que li ngay wax dëgg la. xam-xam <laughs> xam-xam du alxuraan du téere yi fi mag ñi bàyyi. xam-xam mooy nit ki nga xam ne ñëw na teg dara yow foofu nga ñuy woo mais tamit wan ñu loo xam ne après dañ mën a étiquer. waaw. bisu <laughs> bisu nag bisu kenn du topp ni ba ah, ah, ndongo laa man xaw ma. waaw ah, dinañ ko mën a étudier dëgg la kay. a étudier <laughs> xam nga li may wax yépp uh-huh. du dara. Uh-huh. man am na nee la bari na ñu toog seen biir kër su ma ŋaañee xam nañ fan laay commencé ak fan laay wàcce. dëgg la man li may wax ni du xam-xam du dara. gëstu la logique la xam nga luy logique. Uh-huh. mooy loo xam ne dafa war a ne noonu la. un plus un égale deux c' est facile. Mhm. loolu rek la. Mhm. dama fi nii lekk ci bool benn bool nit ñi wër ko di ko lekk. Mhm. dama ni c' est pas hygiénique ma ni ñàkk la <laughs> ñàkk. Euh, Mara. ok dama ni ñàkk bool bu ñu ci wëree ak yërmande bi ci. bi ci suñu borom di wàcc ah, non dama ni. dama ni. bokk bool. pauvreté la. ñàkk la. Modou kon ñu ñàkk Sénégal bëri nañ de. Sénégal ñëpp dañoo pays pauvre la il faut qu'on <laughs> accepte. kon yow bokk bool da nga jàpp ni ñàkk la. Modou bàyyi Modou pour yeneen plateau parce que man dama ci. ñeneen jël seen wàll. non dama ni. Eh, man nag moom da ngay tànk ba doyal desal. xam nga man moo Modou bi ah, boo ma gisee ah, may wax dafa yaatu. man musuma wax dara lu ma dund. wala mhm. lu ma tegul sama bët. dëgg la gis nga bool boobu may wax. Mhm. dama ko dund souffrir ci ba màgg. comprendre nga. yow da nga yow Modou est am ay affaire yu bari yoo détesté. Mm. màgg dañu ko forcer bëgg ñu détesté ko mais nit amul jaar jaar. yow da yow yow fii kenn ku ci nekk ma set yow lañu invité bu la neexee nga wax say jaar jaar mais Modou yaa ngi wax bool bi ñi doon dank ceeb di ko def seen yére yi nag ñun ñuy weer di xaar mu wow. waaw mais ñàkk la. waaw d'accord amul problème ñàkk la rek. yow mën nga ko jàppee ay ñàkk ñeneen ñi jàppee ko tarbiya. waaye yow mën nga jëf jëfu ñàkk jëfu ñàkk la. am na ñoo xam ne ba ñu juddoo ba léegi suuf la ñu lekk ba dee mais dama ni. ceeb weex bi doo ko lekk bijou. Hmm. bu ñu waxantee dëgg tey sa chambre à bee doo ko bokk ku dul sa jëkkër. sa salle de bain doo ci xajal beneen nit bu la romb ni la may ma dugg ci tuur douche bi ngeen ko demal dugg. ban nga teg sa bool du ko ñëw dugal loxoom. bi ñu nekkee xale. loolu am na ñu te dañ daan teg boolu laax. lii ci de mënuma ko contrôler ak. ma <laughs> sama kër gi. <laughs> quartier laa leen bëgg a wutal. mu ah, ah. leen di waxante dëgg. <laughs> gis nga ku jóge ci pauvreté. ba dugg ci yàlla nga ñafe. ba yàlla jàppale la ba nga am dara. boo amee Maldives ngay dëkk Maldives wax ko sax beneen beneen dund. dëgg la pas ñu ñuy ñu ñuy nax. dëgg la moo dëgg la loolu man d'accord naa ci yow d'accord naa de. non dama ni la. Mhm. man dama soo amee Maldives ngay dëkk dëkk ma ne la man su ma amee ay milliards sax mën naa bañ a tabax jàkk ñu naan yee moo neen du tabax jàkk mais am na lu gën jàkk junni yoon. Hmm. defar benn doomu aadama moo gën tabax jàkk. Hmm. Hmm. dundal leen sax moo gën tabax junni may waxee. tey man ma ma nekkee jàmm gën daan nekk Pikine yi na ma daan dunde mais tey dama yàlla rey suba mais dootuma ko dunde parce que am naa loo xam ni. mën naa tax ba duma dundee dundeeti loolu. waaw Modou loolu am am la rek kon yow. waaw kon dama ni la. ñàkk boobu nag yow quoi. la jeunesse bi war a ñafe génn ci. mais Modou am na ñu am ba ëppale la yow. waaw te ñu ngi dund li ngay wax ni ak pauvreté la xam nga dañ ni dañuy. yow léegi pauvreté ban définition nga amee yow. ma ni pauvreté lépp loo koy def te mu am salte te mu manqué hygiène. Ah. pauvreté la. ah ok. corona bi mu ñëwee te dañ ne na moytu kenn. na ku nekk mm-hmm. mais am na xam ne woon moytu parce que yoruñu dara foog ñu bokk. mais benn boolu ceeb benn jën fukki nit dugg di lekk mais da ngeen pauvre. Mhm. jaar naa ci. moo tax ma xam ko gis nga gis nga. mais pourquoi duñu euh, accepté dëgg. mbaax gi ñu war a dundee. Mhm. wala ñaa ñi nekk ci pauvre ñaanuñu yàlla ëllëg nekk la ku koy déglu. waaw doo ko def. lan qu'est-ce que euh, jàppalante bi ñu war a def. Mhm. gis nga kii moom mooy genre nit ki nga xamante ne day dëkk ci koñ toog ci quartier am. nekkul ci ñooñ di sone naan ko ndax kay nuyoo si koñ bi ak danaan leen sama yoon nekkul ci yow. genre boobu. yaa yaa ngi jum man du ma romb lu ma war a defar te defuma ko. waaw mais Modou li nga fi expliqué mooy genre nit. ko li nga expliqué ak benn la rek. parce que mais yow koñ booy dëkk doo dem di nuyoo di di di xut jàmm. bëgguma ku ma nangam. waaw kon kenn li la bii wax. bëgguma ku ma nangam dama ni dama ni xam nga dañu war a bàyyi planiche bu ñu demee Europe. fa ñooñu tekkee di daw suñuy njaboot yëpp dem fa di wëti dara di oh, ñëw. man kii Père Mbaye Ngoné laa waroon invité tey ah, ah, ah. xam nga Bijou y a une chose. dafa bëri ñu ñuy dégg. mu ne la barki barki Ahmadou Bamba. gis nga civilisation arrière deux pas en arrière taxaw écarté. mais sëñ bi leer na. dama juum mais dama war a invité ku la écarté fii. Mm-hmm, mm-hmm. biir Makka. Mm-hmm. nan la fa or ba mel. wallaay. jullit lañu de. lu tax jëluñu or bi ñëw Sénégal. Moodu léppam da koo coincé. sëñ bi du xam nga ne oto deux portes lay dawal deux portes. kooku siis la xam nga mooy kenn du yéeg ki may àndal rek moo ko soxnaam man dama siis ci lu bari waaw mu baax dama siis ci jabar. waaw sëñ Maodo non jabar moom c'est normal loolu siisu leen ci jabar yéen seen jabar mën ngeen ko bokk. ah ah yow ngeen dama gaaw a fase. non comme dama gaaw a fase. yéen bi ma fase moom àndu leen kon na ngeen mën a bokk seen jabar. waaw yéen a ngi doxal lu neex de bisu. <laughs> waaw non le temps ñu ñu def yow sëñ Mara lay daal marié du bokk wuy <laughs> ah, ma kaa wala sëñ Mara ma pourtant mi ngi doxal de moom bëgguma ñëw ci moom <laughs> waaye ci yow lay ñëw waxtaan neex non non non que moom dafa fase nga fase uh-huh. sa coowal fase uh-huh. fala fa lañ war a nekk nii parce que photo yaa ngi daw ci réseaux sociaux yi uh-huh. ñii ñi ngi yor nangam ñii ñi nee nga waaye jur ku jigéen ki moom mooy def nangam mooy def nangam waaye moom version yi muy joxe mooy yow da nga faj doomam ba pare utiliser ko ba mu neex la nga fase ko parce que ñi ñaani woon ak ñi teewoon ñëpp ñu ngi fi. takk takk dagan na. waaw mm-hmm. waaw fase dagan na. dagan na kay mm-hmm. looloo xew sama diggante fase est que. <laughs> déggoo li ma la gis nga biisu waaye fële gi nga indaaleel ku la ko wax. biisu fële bi nga indaale pour biisu man damay bëgg dafay am yàpp booy ñëw. biisu. yé da nga yàpp xanaa yow. <laughs> non gisoo équipe bi bi nga <laughs> fële bi lan la tontu yu gaaw yi pour lan la. biisu sénégalais yéen dañ leen di napp. dañuy gis na yow nit xaw nañ la xam tuuti rek. Mhm. nga def benn affaire rek ñu daw wuti télé ba. Mhm. man ku ma ko def jàpp ne danga may da danga may pour loolooy tax ma reculer. Mhm. man nit laa koo xam ne damay dama ma bàyyi damay topp. li nga jàpp ne boo ko defee ma ba boo ko defee loolu dama dama lay ba. yow yow yow nit ku nit ku nit ku feebar. laajoo ko wér gi yaramam nga naan da looy wax ci conférence de presse bi. mais parce que ko de presse conférence de presse moom bi mu na. li mu ci war a wax. mooy yow ba pare da nga xiirtal doomam ci sa bopp muy daw di la wut si. ma mais bàyyil doomu jàmbur bi boo ko fasee bàyyi ko nag. ay man biisu man loolu loolu loolu xam nga biisu bëgg nit bu mu tax nga koy waxal loo xam ne sax du jikkoom. Hmm. moom bu ma bëggee. ah amal yërmande ci moom yow waaw waaw yërmande ak ma am yërmande man ku baax kee ma yar mais dafa am loo xam ne yërmande fekkiwu ko. sama wér gi yaram mooy première yërmande bi mais yow ñoom yow li ngay que li nga expliqué nii dafa mel ni nga ne dafa mel ni am nga loo gis ci moom mais est-ce que xamee ma man naa nekk de man yooyu yëpp du ma ko daw man fi ne jigéen bu ma la xeemee mee nii dama lay takk bu ñëwee ba ci biir man am na yoo xam ne aw du sama problème Modou ñun ki la yoo xam ne yéen ñaar la <laughs> man yéen ñaar et yoo xam ne xam nga bu leen koy daw mhm. biisu man fi mu ne nii bu ma la xeemee moon nii mu leer na ma ne baal ma damay jël exemple rek biisu baal ma amoo soxna waaw amoo borom kër nga xam ne dañoo génn nii mu wër na ma ndaw teg na ci loxo ndaw ah waaw ndaw moom dëgg la mais biisu teg na te da biisu nge ndaw day ndaw gàddu koor la biisu yàlla mën na dogal kaw xeemeem euh, waa <laughs> biisu yàlla mën na dogal kaw xeemeem googu mhm. yàlla mën na def ay mbiir bu fekkee ni nga ñëwee yow yàllaa tax ma bëgg la mhm. mais nit ki warul la bëgg ba noppi yow nga koy fitnaal man ci yoon képp ku ma ñëw na la bëgg naa la rek bëgg naa la mhm. mais man dama nekk nit koo xam ne dama dof mas nga koo dégg damaa dof. nañu jël dernier appel bi après ñu damaa dof ci nga tolloon nañ teg foofu suñ loxo 88 628 14 13 allo. allo allo oui. waaw Bijou Ngoné Khadim Samb. ah sëñ Khadim ñu ngi lay ziar na mun nañ la papa. <laughs> maa leen raw. waaw Bijou daal man euh, du ma yàgg ci ligne bi. waaw. waaye Modou Gueye bii daal. Mhm. Euh, wax dëgg yàlla man maa ngi koy seetaan mais fonk naa ko trop. ndax maa ko mag fuuf dafa am ay qualité yu ma gis ci moom xam naa ni xamuma ko mais nit la ko xam ne ku siggi la xool xam nga nit bu bu ràññee danañ ko tuumaal ci lu nit ku ràññee ku yeewu ku fendi ku ñor mhm. li tubaab bi wax pingre boo pingree ma dañ la tuumaal ci lu ne mais Modou Gueye mii ñi leen dafa war a bind livre war a bind livre. parce que li wax ci soxna yi euh, soxna. papa wàññi sa télé. so waaw ma ne soxna jëkkër bu nawle sang la mais li mu wax ne nga toog ba deux heures du matin sa téléphone soxna sonné. Mhm. nga jël mooy tegal foofu mais loolu match bu jeex la. amul benn jigéen moo xam muy sëy moo xam muy ngoro bu neex boo amee luy nëbb ci la yàlla boole rek am lu dëngalooy def mbaa lu jubul waaw waaw barke Mamadu Rasulullaay ñi jub ci téléphone la feeñ ñi dëng ci téléphone la feeñ émission bi nag émission bu am solo la maa ngi lay nuyu di wax ni namoon naa la parce que émission bii Euh, mënees na cee jànge lu bare bare bari parce que xam nga man du may woote ci télé parce que def naa télé vingt cinq ans. waaw ah, dëgg def trente ans. Mhm. kon xàmmee naa kuy wax lu mu gëm ak kuy wax lu mu gëmul. Mhm. xàmmee naa ko am xam-xam xàmmee naa ko amul xam-xam. Mhm. mais Modou Gueye yàlla na yàlla suñu borom lafal ko cat. awa xaw ma ne sax danaa dugg mais sànq laa woo euh, sama doom euh, karaajo ne ko fexeel ba amal ma numéro am. parce que xel mu rafet ak dëggu ak ràññee ak di yeete. puso la mag. dinaa la ko message dinaa la ko message incha allah parce que am na te niñ lay seetaane kenn du leen ko seetaane parce que eh, man eh, boo invité nit di wax ak moom dëgg ko ngay dëggu xam nga fi mu ni puso yi ngay dem gars yi ñu wax yaa leen di wax lu ah, am na ñooñu du ñu indi argument mais yaay tax ñu am argument <laughs> maa ngi leen di gërëm di leen sant. <laughs> jërëjëf papa. mais papa di xari Euh, coupé na xar yi xàmme na xar bu góor bu jigéen lakkul o oh, papa dem nam nañ daa a génn papa nam nañ la nag ah. si côté tabaski bi faaw ñu kii la kii mu wax xar yi waaw waaw waaw waaw papa faaw ñu invité la mhm. euh, mooy loolu aja cheikh bi yaa ngi tolloon ci ci ci ci ci takk Modou mi maa ngi ñëw ci moom xam nga Modou mi ñi ngi wax sànni ko bay bayal dafa am déception boo xamante ne mhm. du ko wax mukk te du ko fàtte mukk kii looloo ko jàpp ñëw ñu ko dafa am traumatisme de euh, <laughs> nañ continuer ci liñ ci liñ nekkoon. Eh, eh. ci fan lañ nekkoon. damay fàtte ci dof. am na moo boo wax de. ci lan. karaajo ci ban moo lañ tolloo. Oh, kii mu ci fasoon ci fas takk bi la tawaloon fi a ne la yéen dañ leen di napp. Mm-hmm. xam nga luy napp ci bi nga nekkoon waaw. Ah. maanaam yéen. Mm-hmm. fi mu ne tey jii biisu ku amoon ak moom problème la sa xel di njëkk dem mooy damay dem ci média bi. Mm-hmm. waaw ci yoon. ci yoon. te loolu du yoon. puisque bi may lijjantee yow ku ko amit demal. bu samedi ma tontu la. non waaw chaque samedi mun naa laa tontu fi ba koor gi. te li garaaw mooy est ce que xam nga ne ñiy yàq sëy yi ñooy takk sëy yi. Mm-hmm. man audio bi ma dégg jigéen boobu di circuler ne. audio yi jot naa ko sax waaw xam nga xoolul loolu. teg li garaaw mooy ay sëriñ lañ ko jox. Mm-hmm. ñuy ñaan ko man. nga xam ne sëriñ si léegi am nañ jot. Mm-hmm. sëriñ si danga. <laughs> waaw parce que yow tamit dañ la joxoon ba porté la plainte. da nga fi defoon ñàkk surul noonu dëgg la. yow xaas porté la fi plainte yóbbu nañ la fi fële kii. <laughs> biisu biisu. bisu man damaa baax. Ah. waaw man ku baax laa. parce que xam nga lu tax boo mooy tudd di tudd yenn comme ñooñu ngeen jàpp ne ay sëriñ lañ damay am lu ma metti ñoo la ci jiitu de te ay sëriñ lañ. waaw jiitu wuñ ma ci de. sa bos leeraguñu. jërëjëf man ñëwuma fii ngir leeral sama sëriñ xam nga lu ma indi fii dama ñëw pour lan. pour nga leeral yow lan nga yebee askan bi ba xew nii. <laughs> loolu lañ lay invité de <laughs> barke yàlla. ah. <laughs> Euh, bisu. ba téye internet bi nii chaque instant. maa ngi lay waatal ci yàlla suñ borom. musuma bootu ci ginnaaw kenn tey nit musuma tëj kasu. Hmm. nit musuma man. donc lu waraloon porte plainte bi. Euh, plainte xam nga lan la. Hmm. plainte nañ la fi bu fekkente ne exemple laay jël. Hmm. da ngeen di ànd. senegal laa lay wax de. xam nga bu may ànd ak yow jàmm di am. lan moo tax du ma wax ci yow lu baax. ci yoon mais bu la leeree na dañu tàqali ko bu ma waxee ci yow lu baax da koy denc. wëlbatiku na nit wax na ba yow boppam dootuma ba ba noppi wëlbatiku de ko def lu bon te nit kenn du ko topp ba mu sës. man fay nañ nit waaye nag kaay ma xam bi fan lañ toll. nit ki bu ngeen di ànd di defante lu baax. Mhm. nga koy waxal lu baax. Mhm. bis bu ngeen tàqalikoo di defante lu bon nga yàq ko musiba. Mhm. njaajaan njaay ba terkeetu ci kawam foofu lañ toll de. ah foofu la toll ah boobu doo non réew mi laa moo toll foofu. ah li xam ngeen ne ñi ngeen. jàpp nit bon bis ko biisu. wis laa wax wis lis da denc di xaar pour. wis ko bisu sénégalais yi lis yow xam nga. <laughs> ah kon baax nañ def tere attention xam nga lu tax jamono ji képp koy waxal te dafa am phénomène bu xew jeunes yi nga xam ne dañu nekk ci TikTok bi ay jigéen ak ay góor nañu moytu di jëm ci sëriñ si nga xam ne dañ fee nekkoon yàlla jële leen fi ñu leen di fay pour ñuy wax ci ñoom wala ñuy jël ay nit pour mottalikoo leen ndax ñoom sénégalais yi fàtte nañ leen. mu jaral la nga taf photo Mara di wax ci moom loo xam ne xamoo ko. ci benn cinquante dañ leen di utiliser quoi. leen di utiliser loolu ndaw ñi maa ngi leen di ñaan nañ ko ba jaru ko te ki lay fay nga def loolu bu la wanee ginnaaw soxla soosu boo ko fajalee dootoo ko mën a jot ëllëg ngay defaat ay vidéo naan moom nangam. Mm-hmm. ku fi nekkoon man duma fi yàgg maa leen fi jëlee mais du ma fi yàgg damay dem léegi. <laughs> ah kon accepté ngeen dañ la fiy jëlee. wala yow dafa am loo xamante ne mooy sa objectif. waaw da ngay am néew looy viser rek après dem. bu ma fi defee ñaar fukki at ak ñaar te ki ma fi ki fiy nekk après maa ko fiy indi de. ñaar laa koy teg. non tegoo ko ci siraatal mustaqim de immigré yi ñu ngi caas ne yéen a ngi leen di dóor. yow dañ lay envoyé sa xaalis. pour nga defal leen nangam après bu ñu lay woo doo leen jëlati. biisu man ku ma xam-xam ne nit day ñëw di ma ñaanloo ma may ko xaalis man ñi may ñaanloo ñëpp maa leen ëpp xaalis man ñaan fayu ma xaas bi ngay am fu ngeen ko looloo jaral lijjanti nag. est-ce que amuñ beneen business ci suuf. man ñaan fayu ma man biisu ku ma mas a ñaanal. billaahi la si ci tele laay wax nga jàpp ne damaa lekk sa xaalis ñëwal boo ñëwee ma fay la ba may la. est-ce que mais émission yi ngeen def si internet bi da koy fay. Oh, man nag léegi yàlla daf maa dimbali génn ma ci xale yooyu man dama yor sama support yoo xam ne lu ma bëgg a wax xale yee ñëw wax loo ma liy farata lii sunna ma ba ko ñoom dynamique bañ tollu ñoo fa toll di wax ak di kekkantoo mais. banaan mais yow bon su ma déggee ngay wax cest à ma def am ci fauté parce que bi nga ñëwee yàggul nga bëgg a jël ñi fi yàgg def leen xale c'est quoi le problème lan la pour bu ma nangu ko xale lañ nag. dama fee fekk ay xale lañ bàyyi na ba xale yi ñëw tontul bopp moom xale moom mu nekk moom mu dellu ci xale man man xale man xale du tontu ndax lan mooy lan xam nga biisu damay wax loo xam ne dafa xaw a reetaanlu mais affaire bi mooy dëgg xam nga lu tax hmm. biisu nan nga nax nan nga nekkee ne yow nga ne baal ma nga ne sëriñ nga dangay ñaan exemple sa moroomu nawle di def li ngay def mu jarala ngay fay ay nit yaa ngi dégg ñoo xam ne da ngay tijj lu mel ni ay paas wala nga naan dem leen xam diw ba xam yor na xaalis wala yorut xaalis xam ngeen ne man ñu ngi may toppalu hmm. barke alxuraanu karim seet gi moom xam naa ne ci kanam di nga ba bu topp bi boo jàllee di nga seetaan loo man xam nga lu tax seetu télé yi xam nga lu tax seetu télé yi sawaruma ci ah waaw YouTube bi nee na nga mujj leen seetal balaa ñu ñëw ci d'accord man sénégalais yëpp la si trois mois yi ñu passé hmm. aw ma benn une minute boo xam ne téléphone bi du sonné te ñëpp dama leen di seetal waa loolu bu doon ay kàcc la wala ay li ma gis ci TikTok bi ñooñu di woote nga leen wax ay tur dëgg la loo manigancé la wala man bi may am juróom benn at laa doon def loolu sama papa ngi dund sama yaay ngi dund xabaan na ngi nii ndongo tarbiya yépp nga fa demal nga laajte dama fa gàmmu ji ne leen balaa déwén jumaa day taxaw fii loolu du xam-xam mais am nga fitu borom euh, am nga fitu faj nit ne ko kaay balaa nga maa fay ma faj la ba nga wér nga doog maa fay am nga fit boobu man li garaaw mooy da ngay man man sawaay man ñaan fay man ñaan bu la fajee lay takk de waaw bu fekkee nopp naa la wala nga rafet yow kon kay nay ñu ñaaw rek di ñëw. Eh, kii ma waajal <laughs> non mais damay. <laughs> mais moom ci góor ñi la bokk. mais ci góor ñi laa bokk damay takk di fase te li garaaw mooy man nopp dafa maa jafe. Hmm? yow yaa ngi Modou Gueye de damaa yori rab damaa bëri rab. nun laa mel. fi mu ne da may jéem a bëgg rek comprendre ma ñu ànd. bi ay rab jàpp la de. waaw non c'est dama dama damaa bëri rab. parce que li garaaw mooy man damay. tëdd fi mu ne nii guddi loolu loolu doo ko mën a faj moo tax may faj gaa yi. fi mu ne da tëdd ba guddi nga ne bërit xam nga loolu borom borom mi bagage la. loolu mm-hmm. ay yëf a koy def. Mm-hmm. kooku nag jigéen joo nekkal mënu laa comprendre da nga koy def lu ndaw muy tëb di dal bëgguma li yëgle da ngeen di toog te dal te xam ne ñëpp mënuñoo sëy ak Mara. Mm-hmm. mais danaa ci jël ay benn benn dimbale leen. ñi ma ci war a denc ma denc leen ñi ma ci war a tàggool ma tàggoog ñoom mais Mara takk na fase na loolu du actualité. ndax ku ma neex takk ko ma neex fase. waaye doo ma sa dégg bi mu ko yoree ba tey diggante bi defalu ko lii. ndax kooku ngay wax kori tegil ay waaye ma maa mën a teral jigéen jigéen ñi ngay takk xanaa ñooñu amuñu ay copain comme lan bii su damaa neex a nopp puisque yërmande la waaw yërmande kese laa te boo ñëwee li li amul fenn laa lay defal moo tax ku ci dem bëgg a ñëw musuma fase jigéen man ba ma juddoo ba tey te néewuma koŋ-koŋ wala mu topp ngir di bëgg ñëwaat bu yor ba baaxul woon loolu du am waa waa waa mais il faut ñu xam ne ànd ak tàq tàq ñu ñoo ànd mais nit ki bu mu tax ngay wax lu ñaaw wala ngay def lu ñaaw wala ngay audio menacé na ma nee na ma lii wala ngay sos puisque loolu taxul nit ki man bu dee ñaan yàlla xëyit yi ñuy am bu dee teraanga àdduna la wala ñu jàpp ne kii la wallaahi bu fi yëf yi yamoon sëñ Modou. Mhm. man lijjantiku naa. dëgg la dëgg la. te billaahi la si sama alal jógewul ci ñaan. d' accord seet bi moo ci def parce émission bi jeex na 5 minutes moo ci def kan kan ngay seetal. yow laay seetal. man mii waaw waxal. gisuma ci yow dara jeex na. jeex na émission bi. non non yow la ñuy xaar seet bi dañuy xaar gisuma ci yow dara. lu ma la wax du dëgg. lu tax seetal naa la de. wax ah, dëgg mën na nekk seetale bi taf kon. moom it gisuma ko de. <laughs> waaye tey xanaa fas yéene gis kenn. ah mais affaire yi du chaque jour lay ñëw. ñun ñoo gis ci tàmbali bi laa doon gis sëñ Modou. ma ba ci kanam affaire yi xaw a dawaat. dawul wala da nga ragal a gis. non ragaluma sax. mais bu waxoon nga ne man jinne laa benn. Ah. nga man dinaa seet. yow ci seet ngay mujj moom man loolu man xam naa ko. Hmm. ndaw seetkat bu mucc <laughs> seetu pétaaw ndax seet ndaw seet kat sax bu tàng xol. ci ngay mujj de moom toog bi bi biisoo may seetal cey loolu. loolu plateau lay doon hmm. loolu nu mu demee dama la cee gis yow biisu boroomi yëf biisu bu ma wax loo xam nga lu tax mën na la bu ma wax man damaa nekk nit koo xam ne nga baal ma lii mbër yi naan bëree téléspectateur dañuy yow waxal rek lii mbër yi naan bëree dañ koy fowe man ay seet xeet yi di am dama koo fowe ay ca waxal maa lay dégg tëbuma tëb nag pour ñëw di la seet waaye yàlla may na ma loo xam ne tey mhm. yàlla rekk a tax may wax bu ma jàkkaarloog nit ki am na as tuut lu ma yàlla di wan ci moom ma xam ko par rapport nag ma ñëw toog naan biisu yaay li yéeg di kàcculoo sama bopp wala may dugg ci yoo xam ne day critiquer mmh. loolu dara duma ci dugal mhm. du koom-koomu àdduna ndax jaru ko nit ñi fuñ la teg ëllëg ñoo lay xam ndax mën nga mën naa loolu nga teew ñi xam nga du ma woo euh, naan la diw ak seetal nga Modou Modou bu loolu nekkee ci moom xayru Modou xam na Modou dina am bët bu mu lay xoolee mais dama bëgg xam man ban bët laa la war a xoolee yow man benn bët rek nga mooy dëgg ji ma la wax lu ma la wax ci seet fi mu ne du dëgg ndax non non non non non yow yow benn du ah, du ma jënde benn du ma doon seetkat man xam naa loolu nga ne lan yaa kon yow xam nga sa ëllëg kon loo may seetloo waaw déglu ma expliqué la yow tamit uh-huh. seetal ma ma ah, xam ku xam sa xam xam nga sa ëllëg di kon kay bul ma fen loo ma nga bëgg kon. ah seetal mooy kon fen naa. seetal gisuma ci yow dara. waaye xam naa ne ëllëg daal da nga tënni ji daal damaa gis ngay fawee ay petaaw xaw ma loo ciy def xaw ma da nga ciy seet xaw ma da nga seet lii ma la wax nag boo demee da nga koy bind nga denc ko. ndax bis bu ma waree seeti fii laa koy tane dinaa ko wasaare fii biir sax fan dina ma xëy dina ma invité <laughs> waa léegi wax ma. biisu gisuma ci yow dara biisu doo ma wax loo waaw waaye mais seetal ma nag yow tamit nag. billaahi mënuma laa gis lu ma la non waa xam nga sànq dafa am ci problème mu ah, bële. lu ñu waroon billaahi tëj na wax. waaw loolu lu tënk lu ma la wax du dëgg. jeex mënuma laa seetal gisuma la gisuma big taf. waaw mais faut pas bagage yi ñëwuñu tey. voilà gisu la kay. Hmm? bagage tax. Hmm? ñëwul tey. place bi tey fii du bi du ñëw fii. waaw xam naa nag puisque gars yi day ñëw fii fii dafa mel ni da nga koo <laughs> tey dara laa gisul man te dama daan gis ci plateau jeex na tak mais il faut nga nangul ma nag loolu yow Pawlish lay def ci yow. kan Pawlish mi. Pawlish eh, nekk bul wax noppi seetaanal. eh tudd loo ko fi tuddee. non c'est que bi mm. sëñ bi noppi yow. sëñ bi ñu yeggale. waaw ah, ñu yeggale. seetal ma sëñ bi dama bëgg nga xoolal ma. waaw dama bëgg mu xoolal ma parce que liñ ma ko wax dafa bari trop. Euh, biisu nag yàlla xam na ne de ñëwuma tay fii billaahi yàlla rek a tax ma ñu wax la sérieux mënuma mënuma la mënuma la xam nga li tax kii léegi mët am lu ma wax ci moom mm-hmm. sëriñ fii seetaan yow kii sëriñ yi ñu ngi seetaan sëriñ Mbacke Seck mm-hmm. Ousmane Diouf mm-hmm. xaw ma lan sio xaw ma lan Mouhamed Diop Basirou xaw ma lan ñeen ñi nekk si Khadija Diallo man maa bëgg mu seetal ma yéen du ngeen seetlu tey euh, ah ñoom dañoo bëgg ku leen seetal xam nga li ma wax ci kii na mu Mouhamed dafa am tur yoo xam ne da koy këru wala da koy xam ba buñ nee diw nàngam la tudd rek da xam fi mu bokk. masalan. maa uyu naaru yu xawaa uyu turaabi yu. fu mu bokk. kan nga ne. fu mu bokk. déggoo li ma wax yow xaw ma yow du la wax maa uyu nga duma la wax naaru yu nga waaye kii. dafa am lu ma la wax boo xam ne xam nga nag maa bëgg a fendoo ba tey. fi ne lu ma la wax rek fi mu ne. même seetal Modou. Euh, seetal sëñ Modou. waaw man dama lay seet bi dama da seet rek ma tëj man. wallaay bëgguma laa seetal. te bis bu ma la seetalee nag di nga xam ne seetal naa waaw dimbali ma ci kon a amul may nëbb téléspectateurs yi sa tur dëgg nan la man nga koo joxe ci télé bi Bijou Ngoné Bijou Ngoné jagana laa tudd amul may ragal de moo nekk ci say këyit waaw ah ci yëg far farle far non ma lu wax mën naa laa génneel léegi sama permis jox la nga. te mooy nekk sans sax xam naa dara wala carte d'identité biisu nag danga maa waat ah, loo ba bàyyil ba caméra yi kii ma fa ma kii damaa eh, a gis ci a jàkk waaw ngi door a gisee waaw ci télé la ñu toog mais bul émission bi moo ñu moo ñu kii eh, mhm. ah, waat jàpp ci rek non non non ma yow tamit Modou génn ci émission bi fii du kàkkatal ama parole de jàpp ma rek te yàlla tax. non waaw jàpp na rek man maa la ko ñaan ngir jëmmi Serigne Saliou nga seetal ma. <laughs> ah non biisu. jàpp ci waat dañ respecté tuuti ñi may seetaan. waaw man ñàkk respecté ñi ñuy seetaan. Mhm. moo tax ma ne la balaa ngaa jug ci plateau bi comme seet lañ la xamee nga seet balaa ñuy jug. te li ma gis sax ci yow Karajo régi ñëpp a ngi wax seet bi lañuy ñuy bëgguma laa seetal ndax li ma gis ci yow baaxut. bul wax bul wax. waxal. bul wax bàyyil noonu waaw waxal yow tamit nag moo Modou nee na ma bàyyi. da ngaa waat waat damaa waat de. waaw du bàyyi kii. biisu bul ma forcé xanaa da ngaa yor loo xam ne day wax loo nit ñi. waxal li ci Modou li ci ñun bàyyil kii wérul. jàpp ci rek jàpp ci maa la ko ñaan waxal deux muy def yëpp du loolu lay def <laughs> wax yëpp du lay def. maa ko ñaan ngir Serigne Saliou bu ñu wéetee naa la seetal. biir 17 gele ma ngi koy xaar ci bi te léegi ngaa wax <laughs> man ngay waxal bàyyil kii. jàpp jàpp jàppale ma rek. aywa déggoo li ma la wax. bilaay lu ma la wax du dëgg kii doomu nday buuba la doomu nday El Hadj bàyyil kii. yow lay gëmloo ay waat bi nii ba ñooñu. su jàppale ma rek man xam naa ne. benn nit moo baax muy ñëw ci at di kii am foofu. moom boos Amadou Samba xam naa ne boo ma toppee. <laughs> mais boo ma toppee dinaa dinaa seet. seetal dinaa kàcc te damaa waat. bul kàcc waxal li nga non di nga buy ma nag di nga ma wax nga wax de wax ma de <laughs> waaw wuy ma nag rusal téléspectateur yi nag wax ma benn wax benn moo damaa bañ rus leen moo tax ñëwul ma ci waxal benn moo rek benn moo du ma ko wax ci yow xam nga mooy lan mënumaa gis ci yow kay passé na moo. gis nga parce que sànq da nga ne am nga lu bon loolu li nga gis baax. non maa mais bisu waat na il a juré bisu dimbala ma ngir yàlla waat sëñ bi bul waat boobu. mais dimbali 8000 téléspectateurs. non mais na nekk 100000 bisu dimbala ma yow ñii ñoo lay ñaan waaye yow maa lay ñaan dimbala ma. man may ma benn moo man ñii laay defal. damaa juum ba waat te waru moon a waat. non ah, man ñii mais nag dimbali ma rek man dama la ko ñaan ngir jëmmi Serigne Saliou. maa la ko ñaan ngir si yow. waa tuub loolu rek tuub bu ànd ak tawasul yaa ngi dégg nga ah. tuubal ko suñu borom nga seetal ma benn xoolal lii xanaa nag duma la sacrifié wu jox la sama tur bi dëggantaan nga ma yàq di ma yàqal baal ma 1 ba 7 jëlal benn chiffre sëñ Modou. Hmm? tuubal naa suñ borom tuubal nañ ko ñun ñëpp na yàlla nangu tuub bi. amiin yaa tuubal nañ ko ñun ñëpp. te dootuma waata a ci si yow. amul benn problème. baal ma 1 ba 7 jëlal benn chiffre. cinq cinq nag wéradiw yaram lay dox li ci ëpp. chiffre 5 moo tax fi mu ne ci li nga war a njëkk a jóg mooy sa wàllum yaram. d'accord ndax jóg dina la jafe surtout ci mama yi génneel saraxu yàpp te bañ di rendi d'accord te guddi yi hmm. d'accord ah, ay waay guddi yi biisu est-ce que xam nga man damaa mën a seet kon nel nag bul tàgg sa bopp kon nel booy reenaan këq këq ma koy bax puisque fayoo ma dara taman nit ñi dañ may fay ma leen di seetal bàyyi naa reetaan bi il faut ñu respecter lii may def mooy sama liggéey de waaw kon nel kon yaa ngi ñuy not not nga ñu fenn jëlaatal beneen chiffre ah cinq bi benn boobu rek la jox da ngay jëlaat beneen. puisque seet gi dafa yàqu deux. Mm-hmm. relation lay xibaar. ñagal sëb sëy balaa moo yànq. Mm. naa la ko wax de. Mm. relation. nga baal ma bu nëx lay xibaar. moo tax sëb sëy booy boo nga ñax ko ba balaa ay détails di ko yàq ay coow waxuma nag sëb sëy day tas. Mm-hmm. loolu nag sarax ba koy fànq ci li ñu wax mooy yére. mun na doon comme sa yére boo génn saraxe ko. ndax daal deux bi day xibaar ñàkk a déggoo ci sa coté relation baax na nag ci li nga xam ne mooy ay bunt danaa la di nga toll ci sa biddiw waaw maanaam ndaw luy sëy ba noppi am kàttan nga xam ne lu mu yóotu ji da koy jot waaye mbiram ba tey moom day naaw rek pour mu toog day jafe waaye nee na xawdu sa biir day nëx moo tax boo ko manee lii ma leex bàyyi ci xel na nga génne yàpp bu ñorul nga saraxe biir bu nëx mooy lan ma euh, biisu nag dañoo nekk ci télé te mënuma wax lépp ci ngir ngir biir bu ndax mooy la ngir ngir biisu sa sa sa yëf yi nga nar a teg ci table ji ni wóor na <laughs> bàyyi noonu est-ce que yëf yi du lu ci rek waaw ce que may gis mm. loolu ah mais loolu yow la yaay wax moo tax ma ne yow waxal euh, biir bu nëx boobu laa la wax bëgguma tamit nga baal ma wax loo xam ne damay kàcc ci li may def bul kàcc fexeel bu kàcc lu muy signifier <laughs> Euh. biir bu metti la wala biir bu. biir pour doom toog ci day jafe. Ah. waaw. pour doom toog ci sa biir day jafe. day doon tawati biir joo xam ne fii ak raxasuñ ko pour sa yëf déju day jafe. waaye waxuma ne mënoo am doom wala doo ëmb waxuma loolu de biir bu nax lañ fi xibaar waaye dañ ne la saraxu yàpp dafa bokk ci say sarax bi ci topp mooy. VAR. VAR. VAR dina am tuuti temps. ay déglu ma kenn kenn du yow. kon am na ku ma digg seen seetaan nag ndeysaan sëriñ bu ma neex ñu VAR ko moom ay waay kooku yàlla na gudd fan ku ma neex la. <laughs> Ah, takk jàgg yi xam naa la mboq. aadama moo sax mi ngi laajte seet gi dégg bisu waaw. li ma la mën a wax ci tënk daal mooy sa biir am na tawat te na nga jóg fii à partir de aujourd'hui nga dem nga faj ko. d'accord ci lu gaaw nag boo ko mënee dégg nga. ok waaye. tawat ja la ca ëpp ci liñ ma wan cib sarax nee naa la yàpp bu ñurul la tanga moytu rendi ndax say gaay la yow deret ju ju ju ju ju ju ma deret la xaw a a rey dégg nga d'accord chiffre mm, cinq wéradiw yaram sa tawat daal mi ngi ci sa dig digal boobu mhm. biisu baax na nag mhm. doy na jàpp ci rek doy na bëggoon eh, seet gi dafa jeex biisu jàppale ma rek seet gi dafa jeex laa man damay seetaat beneen chiffre biisu ma rek waaw seetal un bi lan lay joxe euh, un ba seet nga laa baaxut nit ku jiitu la di dem ca kanam ñooy gor say tànk xeexu mbokk bëgguma tas famille bàyyi ma nag. <laughs> waaw ayca après. bàyyi li ngay def waaye biisu. Eh, kon neen. Oh, oh. biisu jàpp ci yow it. mais après sama mbokk buy gor sama tànk. <laughs> Eh, biisu bul ma dugal de biisu. xam nga ñi saal bi ni muy rëy rëy rëy dafa am ku toog fii te xam li may wax. <laughs> waaw. yow du dëgg. yow du rek leen.

astafurlah <laughs> presse mi lay nuyu bu baax a baax presse euh, promoteur gars yi ñoom ñëpp ah, ñu ngi kontaan bu baax ñu lay bàyyi tàggatoo euh, émission ñu finir ko emboté ah <laughs> ay Ngaaka Blindé Idi gars yi ñoom ñëpp dëgg yàlla ñoom ñëpp ñu ngi rafetlu émission bi mi ngi mi ngi mi ngi Adamo Adamo ñu koy big bu baax moom it boobu ba tey mi ngi di rek borom kaay waaw borom kaay bëggoon na dugg na dugg mais xam nga rek téléphone bi mënatuñ ko kii donc ci ci ci régie bi rek la ñuy duggee yor naa vidéo boo xam ne mi ngi circulé ci dëkk bi bis boo ma kaawee baax na. bàyyi ko dama koy damay tooñ rek benn vidéo. <laughs> day laaj na am jot la am léegi. bisu am nañ am nañ mbégte nuyu mbokku téléspectateurs yëpp yi ñu doon seetaan ah, ah gars yi ñu ngi leen di béggee bu baax a baax a baax parce ñoom ñëpp ñu ngi ci xaaj bi yëpp même chose ah Modou Gueye ah, ba si Papa Ndiaye Ngalgu ah, kontaan bu baax Père Gaston ñoom ñëpp ñu ngi toog di seetaan émission bi gaaw moo di Edwige ñoom ñëpp gars yi ñu ngi ci plateau bi. Mhm. kontaan bu baax ci ci dalal bi nga xamante ne dalal nañ ko ñu bàyyi la nga tàggatoo mbokk téléspectateurs yi. waaw sant ak gërëm ñëpp rek bisu di am mbégte ci sa palaato bu am solo bi Aboubacry Samb nee na mi ngi lay nuyu bu baax a baax di nuyu bu ju itam Aboubacry Samb Aboubacry Samb waaw ñu ngi koy fay bu baax a baax a baax di am mbégte di nuyu sama wayjur yi nekk Touba mooy sama kilifa gu góor ak sama kilifa gu jigéen bëgguma jox <laughs> maa ngi nuyu sama docteur hmm. docteur Samba Ndiaye ñu koy nuyu bu baax a baax professeur docteur Samba Ndiaye waaw ah, euh, nekk seen TV di def émission seen sa euh, euh, donc ñu koy nuyu bu baax a baax baax docteur ñu ngi lay <laughs> ñu ngi lay jaajëfal émission bi yëpp ñu ngi ci <laughs> sama problème biir bi kii day wax lu ko neex rek ah, <laughs> ah bisu problème biir am fi sax ayca. bisu moo tax bëgguma woon ngay seetlu fii. ñuy ñuy seetaan ñuy ñuy yàlla la ñu te yàlla la ñu yaakaar. yàlla moom mooy donc. Euh, euh, ñu ngi xaaral ma ma balaa ñuy tàggatoo ma koy fàtte. Hmm. may nuyu bu baax commissaire yëmbal. Hmm, hmm. waaw jëmbal waaw commissaire Sall parce que nit la ku baax koo xamante ne wax dëgg yàlla daf ñu aider lu baree bari bari bari ci suñu liggéey mhm. di ñu aider lu baree bari bari bari di aider surtout mhm. population yëmbal ASECNA côté commissariat bi côté boobu mhm. te et puis insécurité bi am ñoom ñëpp dañ leen di jaajëfal parce que tamit ñoom lañu yaakaar te ñoom la ñu fi teg pour ñu dimbali ñu ñu leen di jaajëfal bu baax a baax a baax ñoom adjudant ñoom ña fa nekk ñëpp ñu ngi leen di jaajëfal ñoom ñëpp wax dëgg yàlla euh, di leen nuyu Euh, bokk na ci aussi Malaw Pikine ah gars yi ñoom ñëpp ñu ngi woon ci émission bi ah euh, Souleymane Ba waa ADLS euh, AD ALDS sécurité ah, ñoom ñoom it ñu leen di jaajëfal mhm. parce que tamit ñoom ñoo jàppoon ki nga xamante ne waa ji romboon tey këf Euh, saag bi ba te mu intercepté ko jël scooter bi. Hmm. waa ALD sécurité la woon. ñoom la woon agent yooyu. ñu leen di jaajëfal ñoom it parce que ñi ngi jaajëfal ci ñi nekk ci kaaraange yi parce que. Hmm. dëkk bi actuellement dafa doy waar. Hmm, yu bare bare bare di xew tey lu ci mel ni concert waroon na am. ak Diamond donc insécurité bi am Sénégal bokk na la ci li tax. yooyu yëpp amul. ndax wax dëgg yàlla ñoom wóoluwuñu ñëw si suñu dëkk. bu ñu demee ba loolu am day xaw a compliqué. Euh, ñu ngeen def ci dara rek yéen ñi nga xamante ne jàpp ngeen ne mën ngeen dara. no bul ne jàpp ngeen gëm ñu rek bisu ñun la la yàlla gëw ma leen waay yàlla dina fi nekk ma lay gëm Mara yow tamit bàyyi si caxat mais yàlla moo ne boo gëm ci yow doo ma sant wala xadd karam naa bari aadama xaw moom boobu noonu muy wax noonu <laughs> kaay ma wax la euh? du yow de du yow déedéet mais da ngay gëm sa bopp. lan shakartum la azidannakum mais nit du xeeb loolu benn mais da gëm ne man lay wax nga tax nga nekk ci support boobu waay man nag damaa gëm ne yàlla bu ne àjjana kenn na fay dugg Sénégal gi yëpp dama leen fi nit nga nit laa lu ma sàkk nit ma ci gënal yow nit nga man nit laa ah, mais il faut ñu gëm ne ñun loolu ñun la lan shakartum la azidannakum d'accord naa ko waaw waaye du yow <laughs> jërëjëf nangul naa la biisu sama xol sedd na lool am naa mbégte euh, di sant baay Touba yëpp wax naa ko di ko jiital samay wayjur ak samay rakk euh, di am mbégte ci ñoom bu baax a baax di sant tamit ñi ma bokkaloon kër Serigne Saliou sama mbokki ndonga tarbiya yi maa ngi leen di jéggalooti bu baax a baax a baax a baax te di leen siyaare mhm. di leen wax ne luñ fi wax rek muy kàddu yoo xam ne dafa xeeboo di mhm. sama yëfi bopp la waaye luñ fi wax as tuut mu jub wala ñuy jéem a làgganti lu dun lu dëng rek na nga xam ne coobarey suñ borom la moo tax maa ngi leen di jéggalu di am mbégte ci ñoom biisu maa ngi nuyu waa parcelle gii nga xam ne dama fa xaw a am tuuti ay fan euh, lu ma am rek mën naa ne ndakaar fii foofu laa ko amee maa ngi leen di sant bu baax waa parcelle yëpp waaw xale yi sëñ Mara yi nga xam ne euh, ñoom asi ak gaa yooyu yëpp ñoom Maam Baye Fall euh, fàttewuma leen ñoom lës kafe gi bàyyiwuma kenn di sant bu baax sëñ Alpha mii nga xam ne moom lañu àndal di nga xam ne liggéey bi nekk ci daara ji moo koy jiite mook Pape Jibi euh, ak xale kër ga yëpp bu ma leen jiitalee ñoom ñaar rek daanaka wax naa ñu ci des di sant sécurité sëñ Mara bi ku ci mel ni ñoom sëñ Seex ak sëñ Moodu ñoom at bi yëpp ñooy ànd Tuubaa ak fépp ñoo may yóbbu euh, am naa mbégte ci ñoom euh, bu ma jëlee Moodu sëñ Seex rek daanaka lim naa ñëpp biisu maa ngi nuyu mais yéen kenn agressé wu leen ngeen am sécurité tout le temps que ñun dañoo yor njariñaa ah. ah, man du ma dox ku xamut ku jëmut fenn di ma rendi damay protéger sama bopp ba dimbale jaam yi même Paw Ndas affaire bi mu yor bëgg naa ci ah. mooy dama téye baax <laughs> ak ni mu ne day ànd ak yëm yëfam protégé wala ko ah neen confrontation day ñëw ah, traman sant naa sant naa ku ci mel ni kooku nga tudd <laughs> mhm. ngaaka belende mhm. waaw maa ngi koy béggee lu baree baree baree baree bare mook idi ak ñoom élage ndeysaan waaw waa waa waa waa groupe bi ba ci soxna si Fatel maa ngi nuyu ñëpp waaw label bi ñëpp ba ci ba ci Tafa hmm? euh, di leen beral ñoom seen cantuk bopp mhm. di nuyu bu baax tamit euh, ki nga xam ne mooy soxna Ayta wax nga ko léegi di ku baax ku nangoo sonn ci man mhm. moo waa cité bi yëpp waaw di nuyu tamit bi ngeen cité boobu tamit de mixta waaw puisque dafa nekk cité bu neex a jaamoo yàlla foofu waaw mixta men foofu loo fa ñaan yàlla yàlla nangu ko ah foofu. foofu ak li ñu ci waxoon fan yëpp. maa ko xam. xam nga appartement meublé foofu. loo fa ñaan yàlla. mais dafa foofu sëriñ si bëri doori nañ fa dem. waaye bàyyi dafa xam nga wax loolu merci ba maanaam jërëjëf tàggatoo bi ah jaajëf. <laughs> kontaan nañu baax yow beneen débat nga bëgg. bisu ay maa ngi koy nuyu bu a baax. mixta maa ngi maa ngi maa ngi maa ngi sant ñii ma bokkal palaatoo bi tamit. ah baal ma de Serigne Fall Gueye daf maa gunge. moom tàggul ku la ci ndaw ñi nga xam ne day ànd ak Serigne Khadim Gueye la bokk. exact jóge ba Kër Massar maa ngi koy nuyu du nuyu kilifaam Serigne Khadim Gueye jànkatu xasida bu mag ci Touba koo xam ne sama kilifa la di ma conseil saa nu ma man ñi ma wër a baax nañ man maa dérégle rek mais ay kilifaam ay jàpp. naan ma dégg de ah ah. naan tega de loolu fexe na ah, non nante la léegi Serigne Fall maa ngi lay nga ko lay invité nii ci plateau yi. <laughs> biisu biisu sant naa bu baax a baax kon ñii nga xam ne ñoom la ma yàlla booleel. di am mbégte surtout DJ If moom it ku jàpp ci samay affaire la ak DJ Ndëmba ñoom samay xarit lañ ndax lu yàgg la du tey moo duggee mii nga ma booleel ku am solo la ci réew mi waxuma ko ngir dara man man ak moom dafa am fu ñuy laale na fu ñu bëggul ku koy tagg de man nag danaa ko tagg nit ki du li nga bëggul puisque chaque jour moom ñu def ko loo xam ne bëggu ko mais yàllaa ko nattoog ñun na jéem a dëkk ak ñun puisque noonu lañ mel mais gërëm nañ ko ci ay kàddoom yu dëggu ak li nga xam ne man wóor na ma ne noonu la dafa dafa defar rek la parce que nit ñi boo leen bëggee defar foog nga xaw a mel ni luy dënganteeg ñoom waaye ku ko xool xam ne yàlla kese moo nekk ci moom biisu am naa mbégte ci yow. Hmm. di la jaajëfal di la sant nag man plateau bi xam nga lu tax ma ñëw fi. binnee ma biisu da lay invité dama doon naan café waaye dama ne tri teg kaas bi na biisu ñu ne ma waaw ma xalaat ne biisu taalibeb sëriñ saaliw la mënumaa gis ci yow lu ñaaw ndax nekkul ci yow li yéem a indi mhm. te wóor na ma ne ndax Serigne Saliou danañu woon lu leen waaye defal man la ko defal waaye lu leen waaye def man la ko def te yëg naa ci yow sëriñ Saliou nag nga baal ma waaw waaw ndax jamono jii dañuy daj sëriñ bi ba noppi dañ koy yëg te dane woon day dugg ci kër xool la gën mu jël ko kon sëriñ bee la tànn moo tax gëm naa ne fa kastal la du yomb mm. waaw am naa mbégte ci invité bi. DJ euh, moom ndeysaan dafa dafa dafa dafa baax dafa dafa baax dalay woote nag teg la perfection boo xam ne force suñu ñëw te nag li ci doy waar mooy émission bi kumpa la fu ñu lay invité te xamoo loo fay wuti. dëgg la dafa métti ma ne ko big léegi nu ñu def nangootuma jël téléphone. ba tey kon. nitu kër euh, sonal nañ la yow it ci appel yi. Mm. daf may woo fukki yoon ak juróom ngir yàlla doo sax woo invité ma ne ko bii taf dépassé naa fu may woo invité. yow yaay wax ak jërëjëf munoo fexe fi ba suba ma woo ko mu a ma bi taf dimbali ma ngir yàlla. Mm-hmm. sëñ bi xam nga rek ma ne ko bi taf. Mm-hmm. yaay invité yaay kale. pare ma diw la ñu am comme émission invité ñu nekk biisu Malika dafa am ñu fa dëkk Basiru Yum. Mm-hmm. ak Tafa Yum. ay seex la ña nga Malika. ñooñu dañ may ñaanal saa su ne jërëjëf Basiirou Youm ak Tafa Youm. maa ngi leen di siyaare. ayca Modou ñu bàyyi la nga tàggatoo. waaleykum salaam xanaa. <laughs> waaw. salaamaaleykum kenn mën a tàggoo lépp moo tax maa tàggoo lépp. waaw jëlal yëpp jëlal ba sam jëlaat. kër li mu yor seconde la. maa ko yóbbaale sëñ bi sëñ bi yóbbaale na ma jërëjëf. <laughs> jërëjëf sëñ Modou. non mais waaye Modou mais Modou euh, euh, euh, lan la ñuy def parce que gars yi. gaa yi moom jàpp nañ ni que profil lañ teg gars yi ñëpp internet bi yëpp sa numéro téléphone la ñuy laaj numéro Modou wax ko à haute man de. numéro wax ko même ma wooyee di ma saaga si. accepté non non mais ni non non non nii moom. Euh, lu lu lu 77 558 25 21. 77 558. 25 21 sama magasin dama ko bind. 25 21 numéro bi laa yor bi téléphone amee ba léegi. jaaykatu or la nag. jaaykatu or nëbbatuwuma dara mag ak or ak jamaa. jaaykatu or man bu def ma pub man du def sax su pub. non non non euh, laa euh, waaw gars yi yëpp loolu la ñuy laajte Moodu borom ah, ah. cerveau Moodu borom cerveau mu bëgg wax mm-hmm. mooy nit su bëggee am liberté. Mm-hmm. il faut mu utilise xelam. surtout bañ topp li ñëpp topp. Mm-hmm. nit da ngay mën a xalaatal sa bopp jëfeel sa bopp mhm. bul compter ci baay bul compter ci xarit bul compter ci kenn mhm. Mhm. feek yaa ngi ñu ngi lay dimbali ki lay dimbali booy wàññi booy xool sa noon mooy mooy sa nim sa noon numéro un bu fekkee saa yoo amee soxla ma dimbali la maay maay sa noon bi njëkk su ma la bàyyi woon rek nga wuyot nga dem ak sa xel ñafeel sa bopp nañu bàyyi wéeru nañ bàyyi jël suñu lépp teg ko ci kudul yàlla. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. jeunes yi il faut que ñu am métier. soo amee métier da ngay mënal sa bopp. même boo amee bac plus trente te amoo métier boo mën a defal wóorul ku nekk da nga war a am métier këm ni yow yow yaa war a mën a génne sa affaire bi yàlla du ñëw di dimbali kenn yàlla dafa la jox xel xel kenn mënu ko jënd ci prix dafa cher. bu la ko yàlla mais gratuitement utiliser ko. Mhm. pourquoi may toog rek di xaar yow loo def rek ma topp la. Mhm. man dama war a jariñ dëkk bi. sëriñ yi naan démb démb démb li fi maam defoon li fi diw defoon. Mhm. mais jéemal def ni ñoom. dëkk bi avancé. nit ku nekk li may wax sànq lekk ci benn bool. xale bu nekk war nga ñafe ba bu ëllëgee ngay lekk ci taabal wutal sa yaay kër gu baax wutal sa paap kër gu baax. lépp neex. pauvreté dafa war a deñ yàlla du ko ñëw di ko dindi France dañu pauvroon doon lekk ay muus di reyante Italie noonu Italie bi ñuy dem nii da sama benn xaritu italien boo xam ne amoon na ay quatre-vingts ans juróom-ñetti fukki at dafa ma doon wax man dàll sax dàll cuir sax xaw naa ko togg lekk ko ndax xiif Corée du Nord xaw ma Corée du Sud mook Sénégal ñoo départandoo léegi ils sont tous milliardaires presque raw nañ nañu bàyyi toog naan yàlla dina ñëw yàlla dina ñëw wax kon suñu njiiti suñu njiit yan yan njiit suñu président yi njiit ñi yor réew mi les présidents yow population yi waaw mais xam nga président tant que nooteel bi ñu tubaab yi noot nanguwuñu ko dindi du ñu dem tey rek maa ngi wax ak sama benn gaay sama benn xel ma ki li gën a liy développé doomu at li développé dëkk en Afrique lu yomb la te c'est le commencement muy fonderie yaa ngi nii kat boo amee milliard Maldives nga jëm di. xam nga luy fonderie lépp luy dox ci àddina loolu la soo demee Italie ñun moodu moodu yëpp ci fonderie yàlla ñuy liggéey. Hmm, tout le monde tout lii ak lii lépp lu nekk ci àddina. fonderie lay commencé. Hmm. la moo tax aw senegal amul fonderie benn laa fi gis hmm. xaw ma Sébikotane te loolu bu amee ñëpp liggéey. te tubaab yi man dama amoon jabaru tubaab xam tubaab bu baax dund naa lu neex ci tubaab yi mais tubaab yi du àddina du doxa dox ba ñu jàngal ñu ni ñuy riche ni ñuy liggéey ñoom dañ koy jaay gis nga Afrique bis mu naroon développé tubaab yi créé guerre sax rey ñu parce que tant que pauvre amul Richard du am te corona bi bi mu amee ba léegi milliardaires yi dañu gën a bari ku bëgg na gëstu ñi amoon dañu gën a am ñi ñàkk gën a ñàkk te àdduna dem na boo xam ne foo xam ne suñu demee ba mu ba ñàkk di am ba ñàkk famine am xiif di am ñu am ñi dañuy sacrifier ñu amul nañu ñafe bañ bokk ci ñi am Afrique dañu war a jóg liggéey ñafe tubaab yi bàyyi ñu mu metti depuis quatre cent ans esclavage quatre cent ans ñuy noot suñu maam yi di ñu sodal yàlla dafa ñëw dimbali ñu hmm? ñeenti téeméeri at ñi ñuy violé di ñu rey di ñu jàpp jaam di ñu takk yàlla toog fi mu toog di xool ni jox naa leen xel utiliser leen seen xel tubaab bi dañu utiliser seen xel te civilisation lépp looy wax ñu ne dafa tubaab bi Afrique bii la commencé. jaa merci beaucoup. <laughs> jërëjëf Modou dañuy gërëm euh, ñi nga xamante ni ñu ngi woon nekk si ligne bi yëpp di setaan. Mhm. Euh, ñu ngi gërëm ñëpp ñëpp ñëpp euh, sama waa kër ah waa Pikine ñëpp maa ngi leen di gërëm bu baax a baax a baax. Eh, di ko jiital si Papa Ndaw yaay Boy Ndaw ñoom ñëpp ah eh, borom Kéemaan sëñ bi mi ngi doon ñoom ñëpp ñu ngi doon setaan ci émission bi ah eh, sëñ xaas gis na gars yëpp ñi ngi doon setaan ah apparemment gars yi ñëpp ñu ngi doon setaan <laughs> wax dëgg yàlla borom jinne yi sëñ Xaadim ah euh, sëñ xaadim jinne waaw ñoom ñëpp <laughs> ñu ngi seetaan euh, prince comme ni ma ko waxee léegi papalaay mhm. ah euh, ñoom ñëpp ñu ngi seetaan bu émission bi ñu ngi doon seetaan xëcha ñu koy jaajëfal bu baax a baax a baax moom it mi ngi wax léegi kontaan non xëcha yow la war a woo wax na dëgg ah aadamo ah, ñoom ñëpp ñu ngi siidi Sidi Ndaw sama Sidi waaw moom moom sama sama Sidi la côté boobu waaw borom jaasi ji moom it ñoom ñëpp ñu ngi seetaan dibiteri ubaa waaw joli Euh, waa Italie ñoom ñëpp ñu ngi doon seetaan Mariétou Camara waa Atlanta ñoom ñëpp gaa yi ñu leen di jaajëfal bu baax a baax a baax ah euh, waa Mauritanie aussi Hawa Ba ñoom ñëpp gars yi ñu ngi doon seetaan ah euh, Tarba Tarba yow yow war ngaa ñëw semaine prochaine de. fan émission Zem surtout. ah wax Prince Mbacké ñoom ñëpp gars yi ñi ngi doon seetaan émission bi ah euh, ñu leen di jaajëfal ku lim rek dangay ngay daal di juum Mouhamadou Moustapha waaye dañuy gërëm euh, euh, sponsor yi nga xamante ne ñoom la ñuy àndal à chaque fois ci émission bi bokk na si jum yaa jàll na léegi wave ak li nga xamante ne moom mooy au royal nouroulage kër kër xaadim ci service ah au royal uh-huh. nouroulage ak ñi euh, nga xamante ne yaa ko joxee de numéro bi ah Nourou la Jus au Royal. Euh, ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa Sen Gold. ah sama sama sama jeune tailleur nag moo génn fii ci sama yére bu yànj bi. Mhm. waaye basin bi ma sol waa Frus Ndëgër xam nga ci lañ bokk léegi ci émission bi ñu leen di gërëm bu baax a baax ci laama boutique am na noblesse bi ak li nga xamante ne ñoom ñooy tissu yi. fruits de guerre basin yu yanj yi nga xamante ne bii maa ngi ko waroon sol depuis ci koor ga mhm. ah, suñu club de fin bi mais tey la ko yàlla dogal ah euh, euh, euh, sama tailleur moo fi moo moo fi génn pap wax dëgg yàlla ñu koy gërëm bu baax a baax a baax di remercier aussi ki nga xamante ne moom mooy alaaji as ah ci caa meef ñoom ñëpp ah euh, ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax Mouhamadou Moustapha. aja merci beaucoup Kër Khadim euh, multiservice bi nga xam ne moom moom may jox accessoires yu bëri numéro bi 77 397 97 61 merci beaucoup ci montre yeeg yëpp waaye Moussa ah Moussa Moussa tamit bu Bawol shop moom à chaque fois jox ma chemise yi na ma demal Baba Ndaw depuis Kaolack joyeux anniversaire moom mi nga xam ne mi ngi fêté anniversaire am donc ñëw na sax parce que mi ngi jot na Massamba Teranga Firdaw si am na ko tudd Bijou da ngeen a moom itam bu Sénégal set ñu ngi lay nuyu bu baax a baax ah euh, Adama Serigne Cheikh Tidiane maa ngi koy nuyu moom itam bu baax a baax a baax euh, Aboubacry Samb moom moom moom ah Aboubacry moom dina ñëw incha allah moom dina ñëw ah. euh, jëwriñ Gina aussi ñu ngi koy gërëm bu baax a baax a baax sama benn jabaar aussi waaw setaanul moom euh, <laughs> Pape Sène borom service Pape Pape Pape Sène borom service des mines ñoom ñëpp ñu ngi leen di jëfal di leen gërëm bu baax a baax a baax euh, maa ngi la koy wax léegi sama yére bi Pape Bey moo ko ñëw ah, mu yaañ ba bëgg dee mu defal ma ton sur ton bu yaañ bi verte bu baax bi ah ci basin Frusnager bi nga xamante ne laa ma boutique ñoom waaw Omar mi ngi nuyu bu baax a baax a baax a baax c'est pas des on, les gens pour que je porte ça. Modou tu tu rêves toi. <laughs> maman depuis Blaise Diagne Binta Dial sama jarbaat la nday seen nday seen ah seen doom foofa na nday seen sàmm moom itam maa koy nuyu bu baax baax di nuyu ñëpp ayta euh, moom itam ayta wiiri sama xarit la moom daf maa lakkal donc merci beaucoup à toi yow itam. ñuy jaay laa tëdd nag su la neexee. <laughs> ñuy jaajëfal Uba borom dibiteri Uba ah euh, fële ca fond de terre en face euh, pentola bi. Mhm. ex pentola sax la ñuy wax. Euh, Uba ñu koy jaajëfal bu baax a baax di nuyu gars yi fa nekk yëpp yëpp yëpp di ko wax nam nañ ko ah ci plateau bi namm nañ ko bu baax di gërëm aussi euh, suñu partenaires yi nga xamante ne nee naa leen à chaque fois envoi bu ngeen gis ñoom ñoo ci gaaw waa macha allah cargo nekk fii ci Pikine nekk fële ca Gambie nekkaat fële nga xamante ne moom mooy Turquie euh, macha allah cargo ñu leen di jaajëfal bu baax a baax a baax xam naa ni d'ici samedi prochain incha allah lépp lu jëm ci sponsor yi rek dina wàcc. parce que xam nga man sama dara leerul. redémarré nañ nag xam nga redémarré ba sonn donc mais c'était bien quand même euh, ne leen di jéggalu bu baax rek ah Aïssatou kaas na kaas kaas kaas ba sonn mais nee naa li ma mën a lire rek laay lire ñu bàyyi ba samedi prochain incha allah euh, nga xamante ne ñëpp tontoo fay dina ko teg ci table ji ñu leen di jaajafal bu baax a baax a baax di leen jox tig daje euh, samedi prochain incha allah d'ici là restez scotchés sur les programmes de la 2STV et merci aussi à l'équipe technique merci beaucoup